mesdames et messieurs téléspectateurs 2STV bonsoir ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ñu ngi leen di siyaare ñi ngi leen di màggal di leen masawu waaye itam di leen jaal li nga xam ne moom la ñu bokk ñun sénégal yi alors vous savez très bien depuis presque une semaine ou bientôt même euh, ñi ngi dund moment bu difficile lan moo waral lu ni mel xam ngeen ni une légende de la musique africaine j'ose même dire une légende de la musique du monde ñu gën koo xam ci euh, Thione Ballago sec mais plus connu sur le nom de Papa Thione tur boobu la ko àdduna ñëpp di waxee loolu cër la boo xam ne yàlla jagleel na ko ko cër la boo xam ne sénégalais yi itam ku ci jug ne Papa amaana mu mag la wala sax yow nga mag ko wala mu doon doom sët nijaay ak loo mën ci doon ci àdduna Papa boobu ngay wax. alors moom yàlla def li gën moo ñu ko joxoon ndax ci boppam moo ne wax euh, euh, kulli nafsin saa yi xatil mawti ah, bakkan bu ñam dund dina ñam doye te loolu itam dañu koy nangu mu jëlee ko fi dimanche boobu nga xam ne nekk na c'était une journée difficile c'était vraiment une journée compliquée une journée vraiment triste kuy képp kuy sénégalais képp kuy africain képp ku nekk ci monde bi ñi ko rendre hommage bëri na au niveau de la 2STV pendant une semaine chaque jour ñu am lu ñu ko jagleel mu nekkoon xarit ci borom kër gi di père El Hadj Ndiaye waaye di ko jaale itam euh, ki nga xam ne et toute sa famille mbokk yi xaritu téléspectateurs yi gis ngeen ni mu demee jour dimanche boobu mu metti lool si fa mu metti loolu ci ñi nga xam ne moo di sénégalais yi mu metti loolu itam ci melomaan yi surtout les melomaan parce que artiste la boo xam ne ci ay woyam daraan jàngale artiste la boo xam ne y avait une partie humour bu euh, ki nga xam ne moo di Papa Thione doon dund ak ñun ñëpp boo ko gisaan da nga daan ree waaye boo daan déglu soom danga nga laan jàngale donc de par ma voix la 2STV moom ci boppam mi ngi jàllewaat kullu kullu sénégalais képp ku nekk ci monde bi de par ma voix 2STV yi mi ngi jaale bu baax a baax tout la famille Seck euh, et tous les Faramareen plus particulièrement ñi nga xam ne ñoom ñooy ay rakkam ay doomam ay magam toute la famille ñi ngi koy jaale bu baax a baax a baax a baax waaye itam di ko jaale ñun suñu bopp yëpp képp ku nekk ci milieu culturel euh, di dund musique di dund art d'une manière générale alors avant ñuy démarrer li nga xam ne moo di confrontation vous allez voir tout de suite même au niveau ci plateau bi nga xam ne moo di plateau 2STV euh, de plateau confrontation Bijou Ngoné et Big Taf toute une équipe daal di jagleel euh, sénégalais yi jagleel àdduna bi plateau spécial hommage à Thione Ballago Seck et vous avez bel et bien vu l'image ñi ngi fay gis ay rakam ku ci mel ni père euh, Ousmane Seck yéen a ngi fay gis itam ki nga xam ne moo di père Kéba itam mi ngi fa accompagner ses fils ku ci mel ni euh, Mandiaye Seck Bambali Seck et peut-être vous aurez l'occasion de voir un de ses fils peut-être Wali ou euh, Sidina Ali on verra bien parce que ça sera très difficile waaye ki nga xam ne tamit ci orchestre Ramdan ñu gën koo xam ci Papis Ndiaye di ngeen ko fa gis moom itam euh, di ngeen fa gis beaucoup de personnes beaucoup de personnes di nga fa gis Père Jim di nga fa gis aussi ñeneen ñoo xam ne ce sont des proches de Thione Ballago Seck plus connu sous le alors mbokk yeeg xaritu téléspectateur gis ngeen plateau bi déjà euh, ni mu ni mu ni mu toogee waaye c'était c'est ça sera un plateau difficile Bijou Ngoné mi toog sax ñu bëri ngiy xool est-ce que elle sera la mesure de de gérer cette émission on verra bien elle, est, elle a toujours été forte mais cette fois-ci euh, sama euh, grande sœur mais xanaa rek ma toog sa côté nan mi sax dina xaw a difficile waaye on est de tout cœur avec vous on est de tout cœur avec toute la famille waaye moom Papa Thione dalaloon nañ ko fi defar ko privilège parce que c'est une légende dem këram toog def ak moom confrontation boo xam ni bëri na woon jàngale confrontation boo xam ne y avait beaucoup d'humour waaye confrontation boo xam ne y avait beaucoup d'informations je vais aller directement avec la complicité de la régie mesdames et messieurs téléspectateurs de la 2STV ñu xool quelques parties de cette émission qui était vraiment vraiment vraiment instruite et juste après ñu daal di dem nag continuer plateau spécial hommage à Père Thione Balago Seck la régie c'est à mais nag euh, wax dëgg yàlla situation oblige mhm. euh, ba tax na tey damay bàyyi Papa Thione mu nuyoo ah ko waa Sénégal nuyoo waa 2STV parce que dañ la seet tey ci émission confrontation new style style bu particulier boo xamante ne Papa Thione rek moo ko am. waaw Bijou merci beaucoup kontaan ci déplacement bi de façon comme je l'ai toujours di 2S sama ma kër la. su ma fàttalikoo man may artist bi njëkk a enregistré studio 2000 booba temps xam naa ne maanaam yaa ngi nàmp biberon. <laughs> Eh, loolu ban année la. yàgg na yàgg na loolu loolu yàgg na booba temps ñoom eh, ñoom El Hadj ngi soog a jóge Suisse foo ko fekk mu sol jean lay sol rek xam nga madame Ndiaye ndeysaan nekk xale bu tuuti <laughs> ah. maa fa jëkk enregistré man ak ndem si yàlla si Issa Sissoko mm. ak euh, Pape Bass euh, euh, ndeysaan bi nekkoon super jamono ak Jimi Mbaye waaye Jimi Mbaye dama dama defoon benn ba sélection ndeysaan nii rek ak benn tubaab bu tuddoon Sepp Mayer je pense moom itam génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm comme suñu grand Issa Sissoko yooyu jamono ndeysaan euh, musique bi amoon na fu mu féete woon El Hadj Ndiaye nag amoon ci benn pacc boo xam ne euh, il était incontournable parce que lépp looy def il faut que boo ko deful felentam il faut nga def ko ci këram si je suis incompris c'est c'est pas de par mes chansons mm-hmm. mais peut-être c'est de par mes revendications mm-hmm. de par ta communication. de par ma communication. qui heurte parfois. Euh, waaw mais de façon li sama papa jàngal mooy euh, gone soo bëggee mu dégg li ngay wax ba jàllal ci digg bi n'est-ce pas bon am na ñoo xam ne ils m'ont bien compris. Mm-hmm. et puis fii xam nga ba Sénégal li ko yàq maslaa bu bari. kaas bi dafa toj mhm. nee leen kaas bi toj na point barre xam nga projet bi mhm. dama bàyyi la musique sénégalaise de A à Z mbalax meeg tama yeeg cooli yeeg leket sax dugal naa ko ci mhm. tur ko ko tàkk tur ko ko tàkk nga di ko dégg bu baax mais ñi woy ñëpp ci musique bii la la ñu et pourtant on disait qu'elle inexportable man j'ai voulu prouver le contraire. est-ce que ko def. non du yéex ko def c'est projet bi tam mu ngi soog a jot. xam nga tam euh, yàlla lu mu na mu mu am. Mhm. te ci moment ba ba mu koy namm lay amee. projet bi mu ngi soog a jot. mais est-ce tamit projet bi tamit Big Taf. tey moom Papa Thione ku ne xam na ne que Papa Thione légende la. Papa Thione dootu fi prouver fi mu ne nii euh, à 64 ans wala du 64 ans. juumuloo de doom. ah ah 64 lan la war mën a prouver. dara amatuma kon Papa Thione ce que projet bi tey jotul woon nga jël jox ko par exemple. Euh, euh, jeune talent yi nga xam ne ñoo fi nekk exemple ku ci mel ni Wally ku ci mel ni euh, Sidi Diop ku ci mel ni ay Pape Diouf ku ci mel ni artistes yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñu nekk artiste jeune wax dëgg yàlla nekk seen diggu nand Papa Thione dépassé na jamonoom a projet bi joxoo ko ñooñu. nga coach leen nekk ci ginnaaw. est woon gën a gaaw. man na xaw ma ne ko yow nii nga soxare ah. ah. bisu. Pape Diop loolu soxal la question la bisu benn bisu boobu. bisu boobu noonu nga xam ak bisu. non non non non eh. càkkati génn génn yow ma ne. yow man dinaa defar sama projet pendant cinq an doo ko jox booy ñoo xew di. joxuma ko kenn sama bopp laa koy jox. mais papa yow amatoo looy prouver. defuma ko pour prouver. léegi da nga ko def pour lan. dama ne. Mhm. man je prépare ma sortie. Mhm. waaw. une sortie bi préparation bi yàggul. moo tax papa coon nga wax. Mhm. j'ai fait quarante cinq ans de musique. lépp lu xale yi way. way nga ko pare. fekk nañu répertoire la fekk nañu ma way ko xoolal ba toog fa. kon léegi lu. xanaa kay. dañuy xaw a changé tuuti paroles yi jàdd fa nangam nangam nangam nangam Thione Seck woy na tout. loolu kenn werante du ko. d'accord mais ah. bu fekkee ne man damaa ngi def sama projet pour def une sortie honorable ah, en def ko en pompe taw yu ko ba mu dang dugal ci nawle Afri Afri africain yëpp nga naan ma jox ko xale yi ma <laughs> lu ma xale yi jox man. <laughs> mais Pape Thion tey yow yaa war a mais Pape Thion xam nga dama ko wax léegi. yow euh. Euh, plus parolier que toi au Sénégal ça n'existe pas. tumeur a tumeur ça n'existe pas j'ai dit. ma ne waaw d'accord France la ñuy wax noonu. waaw tumeur neel tumeur. waaw tumeur plus parolier que Pape Thion au Sénégal tumeur. waaw donc Pape Thion tey jii. amatul dara lu mu mën a prouver biir Sénégal ci way bi yow wax nga ko léegi ci sa répertoire ci la nit ñi di waaye mais Pape Thion tey bibliothèque nga man héritage la ñu soxla ma ne man weesu naa bibliothèque amul beneen mot bu nekk ci ginnaaw bi bi pour pour juste création d' emploi lay doon jox ngeen jox euh, lu ci mel ni sa doom yeeg jox ñi nga say xarit dañu ñu woy ma ne hmm. bu leen wàcc yoon wi Papa Thione <laughs> Papa Thione prépare sa sortie honorable ñan nga invité ci ci ci ci projet bi ak ñoo bëri trop bëri na ay sénégalais ñi nga tollool jamono <laughs> mais non ñi nga tollool jamono loolu laa bëgg a xam déjà ah. yow ñu ngi soog a jàkkaarloo absolument dégg naa ñu lay woowee big taf. Mhm. xaw ma foo taf ak loo taf. d' accord man ngay wax. d' accord dama la. waaw. y' a quatre quatre quatre quatre cinq mois. Mhm. Sénégalais yi woy ci projet bi ñu ngi woon ci trois cent cinquante deux et quelque. Mhm. d' accord léegi romb nañ ko di dem. xam nga lan mooy sama problème. projet bii ak diisaay bi. Mhm. yàlla rek laay ñaan mu may ma. Mhm. ñu bokk ko fekk ñu ñëpp ba ñu ne ah léegi nag mu nga waaj a jeex parce que durée bi sept la. d' accord léegi man li ma bëgg xam taxaw càkk ci gin gin. d' durée bi sept ans la. xam nga tax mu nekk sept ans. Mhm. Bijou Ngoné woy na. Bijou Ngoné a droit à trois clips. léegi boo waree jël un mois de promotion. def ko ci bu Bijou Ngoné. boo ko defalee artiste bu nekk ça va durer sept ans. d' accord d' accord. ñaareel ba. Mhm. nombre de clip yi. Mhm. bi ñu koy mujjee quantifié mu ngi woon ci neuf cent soixante six et quelque. neuf mais mais fooy jëlee moyen boobu yëpp. ma ñëw rek. Mhm. ok léegi bu fekkee ne danga ma laaj ñan laa invité. damay commencer par. Euh, langue yi nga xam ne moo existé au Sénégal reconnu par l'État du Sénégal. ku ci nekk seeni langue ku ci nekk j'ai voulu laisser personne sur la route. Mhm. bëgguma kenn ko ma ŋàññi. Mhm. alors ethnie boo jël te am te ñu koy lakk fii ci Sénégal. Mhm. jël naa seen ñaar ñetti ñeent woykat. woy nañ ba pare. moo tax neexaayu projet bi mooy maanaam mën nañ teg par exemple ne mois bi yëpp. mooy les grandes nuits séeréer pendant tout le mois. te yow da nga def plan de com ba pare. man dinaa ko def te te yow ñëwoo toog. <laughs> waaw mais mais père père père. bisu bisu man ci projet bi ñu def ci projet bi. ma yeggale waaw mais père léegi noonu noonu càkk te jiw jiw. <laughs> xaaral ma yeggale d'accord léegi allez-y par exemple nii euh, ñaata euh, kii langue ethnique moo am Sénégal. Mhm. mat mat na neuf neuf léegi nag boo jëlee langue bu nekk nga woyandoo te ñëpp ay diwoo la ak man am na yoo xam ne mosuñu maa gis am na yoo xam ne bi biñu ma gisee ba ñu xam ci projet bi star nga nag non man xaw ma star laa xam loolu non ok mais woy nañu parce que mosuñu xalaat ci seen àdduna ne que dinañu def diwoo non dinañ ma gis Mhm. day def jiw maanaam li ñu daan fàccu fàccu. Mhm. Mhm. face à face bay def jiw ak man c'est comme ça. ok léegi ku ci nekk maa lay guider. léeg-léeg nga traduire li ma bind. mais mot bi nga indi yow ci sa la langue dafa gudd. man maa lay man maa lay wax répéteel ma moo bi ma xool ni ma koy demee ndànk ndànk ndànk ba mu xaj ci longooru musique bi. et ça a pris du temps moo tax mu yàgg. Mhm. moo tax mu yàgg lool lool lool lool. bu demee noonu. Mhm. mënoo lu dul def ko ndànk ndànk balaa muy am erreur. sama naataango yi ngay wax. waaw mooy ñi nga tollool jamono. ñoom ñëpp ku ci nekk. Mhm. kenn ci pare gu mu muy Ismaïla moom pare na ay version mais man ni ma ko jële ku ci nekk dama lay jox sa cër. Mm. Ismaïla Lo albumam dafay ànd ak neuf artistes yoo xam ne kenn xamu leen mm. moom mooy nekk seen parrain mm. ok Baaba Maal ñëw na fii toog ne na ma yow rek lay xar su ma defee signe je suis prêt moom itam dama koy tànnal neuf artistes moom mu nekk seen parrain Youssou Ndour waxi noppi keneen ak keneen ak waxi noppi ñi ma ñi nga xam ne ñoom laa euh, maasandoor ba ki laa moom euh, def na benn parti mhm. mais ñooñu ñëpp dañ ciy dugg temps yëpp sama communication xam nga mooy lan. Mhm. damay woo Omar Pène. Mhm. Kiné Lam Baaba Maal Youssou Ndour Ismaël Lo euh, suñu jigéen yu baax yooyu. man ne leen man de ci sama gis-gis dama jàpp ne boo déggee daaj. comme ni nga koy waxee. jullit bu dund 63 ans. Mhm. bu ko rombee lu mu ci teg bonus la. Mhm. te bu déggee daaj dina xam ne moom mu ngi ci suuf si. Mhm. ndax dund jullit mooy 63 ans. ndax ngeen ngi mi def. 63 ans la dund. man loolu laa gëm. ma leen nag ku nekk bind dara ñu bokk woyandoo. mu am ay version yu bari ñu bàyyil ko xale yi. tey tey Papa Thione euh, ku ci mel ni Wally Seck wax dëgg yàlla euh, ban ban héritage ban œuvre nga jox Wally venant de toit ban œuvre moom la Wally yor venant de toi benn kuy sa bàyyi Thione Seck ñaar euh, nga fekk orchestre boo xam ne mu ñoom ak sa papa vingt ans ñi trente ans ñi quarante cinq ans ñi nangam nangam. ñoo xam ne seen loxo màndi na ci musique mm-hmm. Mm-hmm. nga am chance ñëw ñu bàyyi la ak orchestre boobu man mi xam répétition ni mu méttee mm-hmm. li nga ciy daj ñaata ak balaa gars yi di comprendre mën a jouer sans erreur fermer les yeux non il faut du temps moom bu fekkee loolu yëpp suñu borom yombalal na ko ko destin la ñu ko koy nongul nag ak yéene ndax ku ne boo sañoon nga am ndono. tey jii un Thione Seck disque d'or euh, lan ngay def pour changer loolu. Thione am na double disque d'or ak This is la peste. Mhm. des mhm. na disque d'or ak Sey. tararaan tan tan boobu ak mhm. Africando. am na disque d'or bu ko d'honneur biñ joxoon président Abdou Diouf. je suis le seul artiste africain bu ñu ko joxaat. tey dañuy ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy sa discographie ah. waaw euh, parce que lu ci mel ni euh, wax dëgg yàlla yow chauffeur bi ah 1980 chauffeur bi ah euh, sëy mooy le pouvoir d'un cœur mi 88. le pouvoir d'un cœur pur. d'un cœur pur waaw. waaw 88 daali léegi ñu ma daali 95 ah. Hmm. Basilar. euh, favori en mille par Syllard aussi bul euh, orient orientissime ah. orientissimo wala orientissime non non bu la neexee nga wax orientissimo bu la neexee nga wax orientissime. ok parce que ñaari album ñaari album yu génn anglais yi ñoo ko tuddee orientissimo. ok français yi tuddee ko orientissimo. ok ak Jaaga en 2010 nga xamante ne. moo moo. yaa chanté avec le waaw jaaga waaye tey caaxaan yow. ki la leen sagale. <laughs> waaw. xoolal ah, mm. mu ne ci laa leen ci la ñu sagale. ba tey d' accord tey jii ci jaaga boobu nga ñu sagalee nga wax ci jaaga ñun ni ñu mën a jàpp ci jaaga. Ah. am ku ko seedeel ndax wax dëgg yàlla tey Papa coon tey jii kan moo ko mën a wax moom mooy kan. man mii. Ah. ah sa xarit. xanaa papa Thione papa Thione de mën naa wax boppam wax dëgg yàlla ne ma ko xam ne man may kat nangam nangam nangam nangam mais mais bon xanaa nga nga basé wu xëy na ci ñaari livres yi nga xam ne moom la ñu bind. Mhm. ci papa Thione. Mhm. ah confrontation tukulóor kuro ñeent borom jigéen ñi. bu kuro ñeent borom jigéen ayca man gars yi man bye bye. bye bye Big Taf ay ca waxal. pour la première fois ma toog ak papa. parce que lii nii bibliothèque la. da nga may fay nag yow. waaw am problème. waaw allah. Eh, eh, dafa ndànk. Ah. Eh, waaw ay nuyu ma mon ami El la ak sama jigéen Mariam Ndiaye. dafa ma arabtu sax moom. xam nga bu ñu waree bu ma waree ak waa groupe am ku ci mel ni yow ku ci mel ni Ismaïla Lo ku ci mel ni ñoom ñëpp day ñëw di ma arab naa ma xam nga da nga yabaate fexeel ba boo demee. na nga man moom. c'est pas la ndax man nga fi fekk. man faramaaren bi aussi. asalaamaaleykum mbokki téléspectateur u 2STV yi ñu ñuy seetaan yéen ñëpp. toog seen biir kër ñu ngi leen di nuyu di leen wax jàpp loxo tey confrontation comme ni ko tàmm di amale àjjuma ju jot la seule émission qui pense à vous et vous incite à regarder la télé euh, tey nag ah gis ngeen extrait bi nga xamante ne Mouhamadou Moustapha jox nañu ko balaa muy dellu si fii si plateau bi tey man maa ne ko Mouhamadou Moustapha faa nga toog dend ak man nii <laughs> nañ dend rek nga daal di déroulé. Mm-hmm. du dëgg euh, tey euh, wax dëgg yàlla ñu ngi waxtaanee ndaanaan. Mm-hmm. ah xam nga dama tàmm à chaque fois di wax dañuy invité artiste artiste yoo xamante ne dañ leen di ràññee ci seen originalité ak seen créativité waaye naa ni tey. nit ki ñuy waxtaanee bu ñu nee originalité ak créativité euh, defe naa ni euh, euh, bu ñu waxee yaakaar naa ni du ñu dépassé ci moom waaw wax dëgg yàlla nit la koo xamante ne muy suñu suñu wayjur suñu kilifa ah suñu xarit wax dëgg yàlla mu génn àdduna tey ñu fas yéene toog waxtaanee li nga xamante ne bokk na ci ay œuvre am ah, gis ngeen semaine bi yépp la 2STV euh, li mu def ci li nga xamante ne moom mooy euh, bi Papa wàccee ba tey ah dimanche plateau télé yëpp daal koy changé def ko ci programme am mais taxul dara jeex ndax li may wax rek Papa euh, daanaka bu ñu koy waxtaanee fii ba suba du ñu pare donc plateau bu ci nekk indi nañ benn touche boo xamante ne ça n'a rien ak plateau bu ci nekk gis nañ 11 13 li nga xamante ne Kheucha def na ko waaye tamit gis nañ démb ñu invité ay xaritam. ay nitam yoo xamante ne euh, buñ ne ay àndandoowam euh, ñu mu doon àndandool euh, kooku Père Bécaye daal di leen invité démb ñu waxtaan ak ñoom ah sottante si ay xalaat waaye tey Mouhamadou Moustapha ñu indiwaat beneen crème ah crème boo xamante ne bokk na ci Papa ba tey bu ma nee crème bi ñu indi tey bokk na ci racine ay racine garab bi la racine bi mooy garab gi Papa mooy racine bi. waaye branche yi nga xamante ne euh, tey jii garab gi jur na ko moom la ñu teg fii ci plateau bi am na aussi nga xamante ne dinañ ko dugal léegi ci appel vidéo xam naa ni Mouhamadou Moustapha daf ko xaw a fàtte muy Mapenda nekk fi waaye dina dugg appel vidéo euh, waaye à tour de rôle di ngeen gis li nga xamante ne mooy lu ñu fas yéene waxtaanee tey euh, jëmale ko ci jëmm ji nga xamante ne wax dëgg yàlla moo fi jóge muy jëmm ju baax Mouhamadou Moustapha. Bijou maa ngi lay nuyu. di nuyu téléspectateurs yëpp ñëpp dinañ xam ni tey confrontation dina xaw a différent ak yi ñu daan def euh, gannaaw loolu damay njëkkee di jaale àdduna bi yëpp Papa Thione laay wax yem fa parce que ñoom la ko ñëpp di wax di ko jaale yow mi ma bokkal plateau bi ça va être difficile pour vous je bien mais yàlla nañu yàlla may xolu mu ñun ñëpp ak yéen ñuy seetaan parce que xam nañu fi mu toll ci yéen ba tax na li ko Bijou waxee rek duñu ci jaaraat plateau yu bëri jaar na fi mais tey on a jugé nécessaire indi famem muy baobab mu nekk racine bi te lu ne gis nga fi ci baobab bi tey ñoom la ñu dalal pour ñu mën a waxtaanee œuvre vie de Père Thione mi nga gën a xam ni moom la ñu xamee ci Papa Thione Bijou Ngoné. Mhm. Mouhamadou Moustapha damay dem nuyu ñi nga xamante ne ñoom la ñu dalal plateau bi euh, damay def sama ndeyjoor ba sama càmmoñ ah, euh, euh, nuyu. ki nga xamante ne moom mooy sama pap mhm. sama xarit euh, ñu koy wax Keba ah di rakk ci ki nga xamante ne moom mooy Papa Thione di doom en même temps bu ma ko sañee wax ci Papa Thione euh, ñu koy nuyu bu baax euh, Papa Keba ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax ci plateau bi. jërëjëf Bijou jërëjëf Sénégal jërëjëf àdduna waa diaspora bi di nuyu aussi waa 2S di nuyu yow di nuyu Big Taf di nuyu sama sama grand mhm. sama doom Bambali Mandiaye sama doom Papis Ndiaye nga xam ne moom moo coon 40 ans presque. Mhm. ñu koy woowee Messi di sama xarit nag bëgg ma lool. Mhm. waaye ma toog tamit aussi ak si jàkkaarloog Ousmane sama sama kilifa. Mhm. ah di nuyu ñëpp di xam ne di wax ne ñu ngi siyaar daal ñu ngi siyaar. ñu ngi siyaar ñu ngi ñu ngi rafetlu lool bu baax. télévision yi doxalee. c'est normal moom foofu la doyam yegg. la doyam yegg nit kee c'est normal di nuyu site internet yëpp ah. ak télévision yëpp wax dëgg yàlla di siyaar ñëpp di nuyu ñu seetaan nag. Mouhamadou Moustapha bu ma jógee ci keebaa damay dem nuyu Pape Ousmane ah euh, moom it muy rakk ci euh, euh, wax dëgg yàlla ci Papa Thion di comme ni ko Kéba waxee di suñu kilifa di suñu xarit moom it déplacé ko métti lool waaye tey fexe na ñëw toog ci plateau bi ah fan ñu fas ne waxtaanee li nga xamante ne moom mooy moom fi mu jaar ak Papa Thion ba tax mu mel ni Ousmane Seck bi sénégalais yëpp xam Papa Ousmane ñu ngi lay nuyu dina la bu baax ci plateau bi. Bijou maa ngi lay fay nuyoo ah di sant yàlla tout d'abord nag pour ma julli ci yonent bi salaahu salaam eh, gërëm suñu waajur yi mais di gërëm aussi suñu sëriñ ñëpp Cheikhul Khadim ko jaarale ci Cheikh Mountakha mi fi nekk waaye may nuyu sama sëriñ bi nag Cheikh Bass Abdou Khadre di nuyu kilifa diine yi ci réew mi yëpp di nuyu ñi nga xam ni tamit euh, ñooy kilifa aada yi di nuyu ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk fii ci 2 mu nekkoon kër Thione Seck waaye di nuyu aussi euh, Big ñu di koy wax Mouhamadou Moustapha ñu naan ko Big <laughs> donc boobu moo dàq euh, di nuyu aussi suñu grand d'abord Tafa Goudiaby mhm. xam ni yàgg nañu lool ak moom mhm. macha allah mu yàgg ak coon mhm. mais di nuyu aussi euh, Papis Ndiaye nga xam ne presque ñoo ñëwandoo Ramadan benn année la ñu rawante euh, moom it moo xam ni muy koo xam dafa bokk ci famille bi macha allah mais di nuyu aussi sama rak Keba xam ni maa nàmp jox ko nàmp euh, yoroon ko Ramadan ba tey ji mu yor Keps Band di nuyu bu baax aussi Cheikh Bombali. nga xam ni moom it euh, suñu doom la te it euh, ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi. Mhm. moom it di ko ñaanal mu mhm. yeggali bu baax euh, topp ci doon ki baayam. Mhm. waaye di nuyu Mandiaye Seck moom it nga xam ni macha allah ci famille bi la bokk. moom it mi ngi dox di jëm ci fii ay tànk baayam rek donc ñu ñaanal leen. di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre. partout dans le monde. Mhm. voilà voilà voilà. muy fierté euh, Pape mhm. Ousmane comme ni nga ko waxee euh, bu ma jógee ci Pape Ousmane damay nuyu ki nga xamante ne moom mooy Père Tafa. Père Tafa ku nekk xamoon na ko ak ki nga xamante ne moom mooy Papa mu nekkoon son manager ah euh, doon gérer communication ak yu ci bari man personnellement Papa Thion présenté ki nga xamante ne moom mooy Père Tafa. Père maa ngi lay nuyu dina la dalal ci plateau bi nga xam ne yow nag tàmm nga koo setaan tàmm nga cee participer waaye de loin mais tey ni nga ci ñëwee wax dëgg yàlla neexuñu. Euh, waaye it lu mënta ñàkk la. Bijou maa ngi fay di nuyu Big Taf di rafetlu sa duo. Mhm. vraiment de choc. Mhm. di vraiment yéen ngi def liggéey bu rafet. di nuyu Sénégal di nuyu diaspora bi di wax ni que contexte bi fi ñëwee tey gënaluñu donc euh, mais c'est le Sénégal de la culture a perdu un grand monsieur donc muy un baobab qui est moom la ñuy rendre hommage tey à donc di nuyu sama sama xarit yeeg sama rakk yi ma bokkal plateau bi ñu ngi lay nuyu bu baax euh, Père Tafa di la fay euh, damay dem nuyu ki nga xamante ne aussi suñu kilifa la ah Mouhamadou Moustapha ci Ramadan euh, wax dëgg yàlla muy suñu mag suñu xarit. waaye di di rakk ci Papa di doom ci Papa euh, di suñu kilifa ñun ah ñu koy wax euh, Papis Ndiaye ah euh, sénégalais yi gën ko xam ci Papis Ndiaye Messi Papis Ndiaye bu xam daan Papis ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax ci plateau confrontation. ñu lay fay bu baax <coughs> ñu ngi lay fay bu baax bijou di kontaan si invitation bi di nuyu comme ni ko Ousmane waxee ma famille bi nekk si plateau bi. Mhm. di nuyu sama mag borom kër gi El Hadj waaw di nuyu waa Sénégal waa diaspora bi ak ñëpp ñi nga xam ne bii ñu ngi ñuy suivre tey jii si télé bi waaw di kontaan trop nag li ñuy euh, grand tafa wax léegi ne occasion la boo xam ne bii bu ñu sañoon mu yéex a yéex a ñëw. Mhm. waaye yàlla mooy dogal ba tey jii ñu toog di waxtaanee koo xam ne nag c'est une partie de nous tous ñi toog fii. très grande partie de nous tous donc ma lay remercier si occasion bi ñuy jox opportunité bi ñuy jox pour loolu waaw di kontaan trop si invitation bi. naa ki fi tax euh, ki tax ñu toog fii moom moo toll noonu ba tax na euh, euh, duñ ci yem yaakaar naa ne semaine bii ba ba muy jeex it ci ci ci ay œuvre Papa ak lu ni mel kese la ñuy fas yéene waxtaanee te xam naa ne du yem ci semaine bi waaye bu ma jógee ci ki nga xamante ne moom mooy Papis damay dem nuyu Bambali. Bambaly maa ngi lay nuyu eh, di la ziar di la dalal ci plateau bi bu baax a baax moom it muy doom ci ki nga xamante ne moom mooy Papa Thione ah, eh, wax dëgg yàlla ñu am fierté aussi dalal ko ndax eh, ci la bokk ba tey mi ngi ci ñi nga xamante ne moom mooy branche racine bi ayca Bambaly ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci. waaw ma lay fay euh, sama mag ji Bijou. Mm-hmm. di nuyu képp ku ñuy seetaan à travers le monde ñu nekk ci diaspora beeg. sous région yeeg bàyyi ñu kenn. Mhm. di masawu ñëpp nag parce que mën naa ne papa coon papa coonu askan wi la. àdduna ñoo ko ñàkk ba tax na ñëpp laay masawu. waaw di nuyu nag ñi nga xamante ne ñooy samay kilifa yi bokk ak man plateau bi waaw sama papa Ousmane papa Keba ah, sama papa Tafa sama papa ah, grand papis. Mhm. di nuyu sama grand frère sama mag sama kilifa moom tamit muy Mandiaye Seck. Mhm. di nuyu yow di nuyu sama xarit sama copain Big Taf waaw vraiment euh, di nuyu ñëpp ma kenn ah, di masawu ñëpp na vraiment ndax ki waral émission bi ki waral plateau bi mën naa ne nit ñi ñëwee fii sax gaa neexuñu mhm. mais yàlla suñu borom mooy dogal ba tax na dañuy sant yàlla rek ñaan na ñëpp ñaan te xam ne ku baax moo fi jóge mhm. ku ñëpp bokk moo fi jóge mhm. waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp Mm-hmm. jërëjëf Bambali euh, euh, ki fi jógee nag wax dëgg yàlla xam naa ni que rafet nañ njort ci moom euh, waaye damay dem nuyu ki nga xamante ne nee naa leen mooy sama star ah sama star wax dëgg yàlla Mandiaye ah, dama lay bàyyi nga nuyoog waa Sénégal. waaw salaamaaleykum bisou maa ngi nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu monde ci ak diaspora bi yëpp. Mm-hmm. ñi ñuy seetaan à travers. di nuyu sama papa yi nga xamante ni ñoom laa fekk ci plateau bi ku ci mel ni euh, papa Papis Ndiaye euh, papa Ousmane Seck sama mm-hmm. kilifa di nuyu euh, papa Keba ak papa Tafa Goudiaby ak Big Taf di la nuyu yow bisu nga nekk nit ku baax koo xamante ni mën nañ ci famille bi la bokk. Mm-hmm. waaw di jaale nag senegal yëpp di jaale àdduna ak li ko wër. ndax euh, ki fi jugee lu rëy la ci Faramareen mën naa dama mës a toog ak moom. Uh-huh. mu ne ma xaa ma ma ne ko naam mu na ma. Uh-huh. yéen ñépp ku ci am téeméer. Uh-huh. da ngaa war a ñëw ci man. waaw loolu maa ngi koy fàttaliku. waaw waaw di ko ñaanal nag fi mu fi mu fii mu jugee yaa fee mu jëm yàlla na ko gënal. jërëjëf. jërëjëf euh, euh, Mandiaye Mouhamadou Moustapha. Euh, dama lay bàyyi nga nga nga doxal mais xam naa ni que am na benn élément boo xam ne Karajo bu fekkee yemb na rek euh, euh, bu fekkee aussi Mapenda mi ngi ci ligne bi mën nañ ko mën nañu jël li nga xamante mooy nuyoowam ci sénégalais mhm. ñu gis ko ah mais en attendant. Euh, <laughs> ndeysaan su ma nee Karajo sama xel day dem ci fi xew fan yi waaw fi xew fan yi Karajo waaw fii laay euh, jot nañu ko moom itam mais nee na dafay xaw a métti ci moom lool lool lool lool lool mu mhm. toog ci ci ak ki nga xam ne mooy Père Adama Sarr mi koy wax mhm. euh, di tey rek na ne bi tax bëgg naa loolu waaye su ma toogee foofu damay ragal ne man en personne du ma du ma émission bi mhm. donc dañu koy comprendre moom tamit Père Assane et puis préciser li ci mel ni famille Thione itam ñoom moom sénégalais yi naa ne danañ leen ko baal. waaw Alioune sax man maa ko baal. waaw waaw ko baal parce que doon ñëw wax mm-hmm. dëgg yàlla daanaka ñoo doon ànd ñoo ànd sax. Mm-hmm. li ma defaru boobu may egsi mais. Mm-hmm. Euh, mais man maa ne ko franchement parler. Euh, yi ñu jot a wax nii bu fekkee yii la ñuy waxaat ci plateau bi day xaw a métti. ah émotion bi day xaw a bari te xam naa ne que tey sénégalais yi ñu ngi xaar ñu waxtaanee euh, la personne du Thione en quelque sorte. bokk na ci aussi projet yi nga xamante ne mi ngi ko doon def ab fan lañ fan lañ ci war a dem. Mm-hmm. ah ak ñi nga xamante ne moom mooy ay njabootam ci yan tànk lañ war a tegu ba tegu ci fi nga xamante ne mm-hmm. euh, euh, moom la Papa Thione nekkoon mm-hmm. donc Karajo bu fekkee ni que élément bi pare na léegi léegi rek euh, ñu nga may ñu ko ñu xool ko ñëwaat léegi parce que am na témoignage ku ci mel ni El Hadj ah ak Baba Maal ak Ismaïla Lo Karajo bu fekkee ni que benn ci élément yooyu pare na ñu daal di koy setaan ñëwaat léegi léegi sur le plateau. muy nit koo xam ne mais vraiment très sincère en amitié. il a eu de très bonnes relations ñoom Oumar Penn ñoom Baba Maal après et cetera et cetera nii laa ko xamee nii la ñu duggee ci industrie musicale et on s'est jamais plus séparé sauf maintenant. Uh-huh. mais en tant que musicien professionnalisme bi nga xamante ni moom moo nekkoon ci moom naka la demee woon seen relation. Eh, Thione il avait de l'inspiration man euh, je l'ai trouvé avec ses chansons hein. Mm. la plupart des chansons il les avait déjà chantées. fekk na déjà mu woy ko ba pare et donc dégg ay woy laay mbub et je sais qu'il avait beaucoup de choses dans la tradition mm-hmm. il n'écrivait pas musuma gis coon bind chanson mais day dugg studio il improvisait il chantait bon pour man dafa jàng woyi par cœur di ko di ko di ko togg c'est des choses peut-être qu'il avait déjà mais suñu daan dugg studio il faisait six à huit morceaux une nuit mu jeexal. Mhm. li ci des yëpp nag ay waxtaan la rek. ay ay ay ay maye mhm. ay. on a passé toute notre vie comme ça. Mhm. tey coon jóge na fi. bàyyi na fi héritage. héritage boo xamante ni yaa son fils. bi nga xamante mooy waali ñu koy ñaanal yàlla na réussir mission bi. c'est pas facile. mais boo amoon conseil yooyu jox waali lan la. maintenant euh, ce que je dis tout le temps aux jeunes artistes. particulièrement à Wali. Ah ouais. Il a le pain vraiment sur la planche. Mmh. Quel que soit Alpha, il faut qu'il récupère ñetti yëf li ci papam bàyyi. Mhm. La sincérité donc mooy honnêteté bi. Mmh. Avoir le courage comme son père et beaucoup travailler. Mhm. Il n'y a que ces trois choses qui peuvent le sortir de l'impasse. Mmh. du moment wu négocier. oui parce que Thione tu sais euh, moi j'en sais, je sais beaucoup de choses. Mmh. des choses yoo xam ne nit mënu ko wax. mais Thione était criblé de balles Thione était très fatigué Thione a eu une fin terrible difficile. difficile et il a pu résister résister résister résister. Mmh. criblé de balles, je te dis, ouais. dans tous les sens. La prison, euh, malversation dont parlent les gens, euh, am na amut euh, gor, il y des choses yoo xam ne. Mhm. tu ne peux pas le supporter. coon nag tey xibaar bi métti na lool diis na trop ba fi nga nekk fii da ngaa ndax dëggal du dëgg parce que tamit yàlla bu defee nit nga am nga am coofeelam ngeen nekk lu yàgg di dund di def du dëgg samay xool photo bi nii. voilà day mel ni boo si matin am naa mais après da ngay xool nga naan ah mais est ce que waa ji dem na wala demul. Hmm. effectivement dem na. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun yàlla si boppam moo ñu sàkk may ñu dund saa bi soxla nag jël ñu voilà bu soxlaa ñun ñëppay ñàkk coon nag mu doon nit koo xam ne ku dëgg la woon ku tabe woon ku am diine la woon. moo répété ko ku am diine mm-hmm. ku sell ku sell yàlla dafa def ne man Omar Pène Youssou Ndour Ba Mat keneen laam keneen na keneen ak keneen dañuy attribué ne on nous appelle les ténors de la musique sénégalaise. c'est ça ma nekk on nous appelle les ténors mais duñ condamné man de personnellement duñ condamné parce que am na ay ténors am na ñuy fi jut ñoo ñooy ténors mais dafa fekk yat bi si ñun la dal nag yàlla yàlla jagleel ñu ko ba tax na aussi euh, seen liggéey rafet na rafet boo xam ne dootul fay. te mu jëw leen pousse bi mu réer ci yéen. fa tabaarakalla gis nañ ne yéen a ngi koy transmettre à la nouvelle génération sant yàlla parce yàlla ko teg si ñun mhm. bu baax. bu mu defee ne ñun aussi en tant que xarit yooyu yàlla boole ñu ànd ñu bëggante soppante te yàlla tax. coon comme tu le sama xarit la si ñun ñëpp nag. Mhm. mën naa ko wax sama baat ca kaw ñàkk naa ko ma jege trop. moom ci gënoon jege moom laa ci gënoon yab. moom laa ci gënoon yab ku ku ko jege woon la ba pare di ko di ko daraay di di di di di jéem a dër. di jéem a dër di ko tooñ mais su ko tooñee noonu la quoi dafa dama la dama la vraiment daal def na ma choc boo xam ne bii waaye nag waaye boo yeewoo nag da nga naan ah moom de moom daf moom day rey sa pap rey sa yaay rey sa jabar rey ku la ku la jege. Hmm. ba pare ne la santal nga ne alhamdulilah bi alamin. ci wàll nag. Sénégal dafa ñàkk koo xam ni kii nii bon peut xamuñu ko sax mu dem xamuñu coon ba mu dem su le plan artistique mën nañ ci wax lu bari. waaye sur le plan humain aussi mën nañ ci wax lu bari. xam nga nit ki su dee koo xam soo nekkee koo xam ni ki nii li nga gëm ni lii soo ko waxee yàlla sunu borom du sa mere dana xam ni dëgg nga wax mu ci fi nga koy woyee wala fu ñu la posé question. wala suñ la laajee sax si nit ki nga wax li nga sa akulaay taalaak li nga xam ci moom te dina di ko yéene mu am jàmm mu am salaam lépp di dox si jàmm ak salaam kooku wax naa ni bon Sénégal yi peut-être ni woykat bi rek la ñuy jàpp waaye coon noonu la doon dundeek nit ñi dëgg la man nag moom comme nañ ko waxee personnellement sama xarit la mhm. sama xarit la yàlla moo ko def xam nga yàlla mooy dogal loolu mhm. ñii ñëpp samay xarit lañ parce que ci nekk si ñoom am na sabab boo xam ne moom la ma yàlla booleeg yow mhm. suñu diggante nag yàlla rafetal ko xëy na du ñun waaw ñun sabablu nañ ko mais yàlla moo ñu jàppale ba suñu diggante bu ñu toogoon di ko def taarix def naa ni nouvelle génération yi ñu dul musicien sax war nañ xam ne diggante ay doomu aadama yu bokk jamono nii lañ war a mel mm. su ma demee bay xalaat ni un jour su ma amee possibilité dinaa def musique moderne mm. coon la mm-hmm. daf daal ñëw mu fekk ma kër ga ànd ak Doudou du Seck mm-hmm. ne tey damay joué ji bala balafon musuma dugg balafon ma ànd ak moom ak dossier ñu dem balafon toog moom muy joué ak waa baab toog fa ba 4 di du matin 5 heures du matin mu génn ñu ànd jël boobu clando yi ñu ngi soo commencé. ñu jël suñu clando jaar fenn ndekki suñu ndékki ñoom ñu delloo ma. comme suñu kër ñoom ñu continuer. du seek mooy mujj a dellu si Dakar. parce que man comme maa ngi jàng école des arts la woon. loolu c'est vers les années de 60 76 77 tout récemment coono avant may dem Podor ni mi ngi may tooñ mu ne ma waaw xanaa aj ba gis nga affaire yi may commenté maa ngi teg sama caméra di invité ay nit di waxtaan ak ñoom xanaa dinaa dinaa la invité ma ne waaw dinaa ñëwi mu ne non dama lay programme lundi bii di ñëw ma ne ko doo ma dugal ci damay dem Podor dama am réunion <laughs> ma dem sànq maa ngi koy wax sama sama sama famille ma ni man su ma yëgoon dem seeti coon peut-être mu doon la dernière fois ma gisanteeg moom mais nag lu mel ni day bette donc mën a prévoir parce mbirum yàlla la mm-hmm. mais en tout cas le Sénégal a perdu quelqu'un boo xam ne bii sur le plan musical Ismaël lu xam ne li may wax mm-hmm. c'est un excellent musicien mm-hmm. qui a une oreille musicale mus musuma dégg dégg coon mu même bu sonnee mu woy ba faussé hmm. mukk ci àddina waaw baat bi du faussé du du génn gaam hmm. il chante juste boole ci nag il est très mélodique fi muy harmonie yi muy jaar presque moom ak kii ñoom ñoo ci niroo comme c'est des c'est des gens yoo xam ne sont pleins d'harmonie et de mélodie waaw peut-être man ak Youssou ak euh, euh, ñoom Omar Pène on a la voix mais ñoom c'est surtout les mélodies lool moom mooy neex alors que la musique si ça n'a pas d'harmonie n'a pas de mélodie du musique lu foofu ngay xamee que ni nit ki li mu def ci xolam la koy defee mm-hmm. waaw parce que mélodie ci xol lay jógee jërëjëf jërëjëf jërëjëf gis nga témoignage yooyu nga xamante ne def nañ ko Mouhamadou Moustapha alors Bijou mu nekk euh, témoignage yoo xam ne Euh, ñi ñu woowee les ténors de la musique sénégalaise ñoom ñoo ko def ci moom donc c'est tout à fait normal parce que ñoom am nañu vécu ak moom. Mhm. waaye nag euh, bu ñu paree foofu bisu dañuy ñëw ci plateau bi parce que ñoom bokk na ci ñoo xam ni euh, ñi toog am nañu lu bëree bëri lu ñu war mën a wax ci Papa Thione waaye comme ñoom li ñu koy waxee rek xam naa ni dañuy démarrer ci per Ousmane parce que moo fi doon kilifa ak père Tafa mi nga xam ni moom il la toujours été à côté de Thione Ballago Seck père Ousmane faalewaate ki nga xam ni ñun ñëpp ko bokk amaana da ngeen gën a jege waaye àdduna bi ñoo ko bokk boo gisee tey eh, ni ko ñëpp di waxee nga ñëw toog ci plateau ñu ne la ci lan ngay waxtaanee ñu ne da ngay rendre hommage Thione Ballago Seck sa mag yàlla jële ko fi qu'est-ce que ça vous fait réellement. Ah, xanaa li ma mun wax mooy que ni ah, mbir mi boo ko jàngatee ba ci biir da xam ni Thione def na lépp lu ko war ko wax. Mm. li ko waroon yëpp def na ko jël na kenn ku ci nekk. Euh, fortune bu ñu nee fortune nag dañuy foog ne mooy xaalis mais jël na kenn ku ci nekk jox la loo xam ni euh, moo gën milliard ci poos te loolu mooy way na wan nañu nan la ñuy waye wax na wax nañu naka la ñuy amee fulla ba loo mën a may mën a way aussi sa intelligence ak sa fula daf la war a yeggale ba nga mën a atteindre sa objectif te loolu mooy au nga di ma may jën tout le temps nga fexe ba wan ma kaay ni ñuy nappee mm-hmm. man jour bi may euh, rejoindre Ramadan carrément dafa yàlla dafa dogal jour boobu tafaa gujaa bi la fekk parce que boobu nekk naa ak Mapenda ba mu yàgg ma ne ko maps mu ne ma ko man il faut ma dem Ramadan parce que Ramadan aussi dafa bokk ci ñun li nga xam ne ñun mooy suñu conservatoire quoi bu ñu nee école des arts pour ñun ñun demuñu conservatoire demuñu école des arts demuñu fenn jàngiwuñu fenn ndax dañuy kuy wàlliyaan xëy na sa fa nga dëkk dañoo tëggul. Mhm. ñun coon moo doon suñu lépp ginnaaw yàlla pourtant day wax dëgg yàlla moom magul ci famille bi mais yàlla moo ko defoon loolu quoi. waaw jàngiwuñu lenn fenn. Mhm. utiwuñu lenn fenn. utuñu benn benn benn benn benn benn bagage boo xam ne rek vraiment ci biti lañ koy utee quoi lépp daf fi nekk kenn ku ci nekk tamit boo nekkee ak moom même bu waxul nga dégg sax bu jëfee nga gis rek nga suivre di nga xam ni yow fii nga war a teg sa tànk donc loolu moo gën ay milliards. kenn ku ci nekk boo góor góorgóorloo lu mu néew néew néew néew ñu ne kii ci famille Thione Seck la bokk moo xam rakkam la moo xam doomam la moo xam sëtam la moo xam jarbaatam la moo xam dëkkandoo sax bu ko def référence tu vas réussir. Mhm. loolu yàlla moo ko def joxoon na leen crédibilité bi nga xamante ne moom la ñu soxla woon. voilà je crois que loolu doy pour mën a wax un peu. vraiment ci ci Thione quoi. damay ñëw ci ci ci moom Tafa. Mamadou mhm. euh, Moustapha mhm. parce que sànq euh, euh, gis nga interview bi ñu def sànq. Mhm. bi ñuy toog Père Tafa mi ngi toog. si si wet bi. Père Tafa gis nga façon bi nga xamante ne nga nekkoon manager am seen début yéen ñaar seen àndandoo balaa ñuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy projet bi. waaw Conde je pense que bokk naa ci mujjee rejoindre le staff du Ramadan parce que damay rendre hommage à certains pionniers. yoo xam ne ils ont cru. au projet Ramadan donc ku ci mel ni Ndiir Père Ndiir. ku ci ak euh, Jim Fala fekk. Jim donc euh, ñu ñëw constituer un staff autour de Thione on a travaillé de façon harmonieuse vraiment Thione vraiment daf ci kontaan. mais xam nga Thione il y a l'artiste il y a mhm. connais les deux parce que l'artiste Euh, mooy euh, c'est un poète un auteur bu mag compositeur parolier hors pair mm-hmm. boo xam comme nu ko Baaba Maal waxee sànq il a la justesse de la voix et il est, harmonique Thione mm-hmm. donc euh, mais l'homme Thione c'est quelqu'un à chaque fois suy waxee Thione on passe à la religion pour léppam yàlla la donc Thione léppam yàlla Thione n'a jamais mené un combat pour lui il a toujours travaillé pour l'intérêt général malheureusement nit ñi xamuñu ko mais coon musul xëcc dara pour moom. Uh-huh. donc mu nekk nit ku sincère ko am fit parce que Ramdaan ba mu koy teg mais il a eu un parcours parsemé d'embûches metti lool lool lool lool mu gëm ko avec ñi mu àndal ñoom dund nañ ay ay ay ay ay moments yoo xam ne moo ko évoqué fii. Uh-huh. ça a déjà par bu mu soxlaa matériel dafa jëm jël seen kayitu kër wax ko papam ko am rek papam ñaanal ko te am naa ci yaakaar. madame il a emprunté de l'argent jënd ay instrument liggéey ba delloo remboursé dette bi mu ñëw papam ne ko xamoon naa di nga ko def mu continuer bon an di di di di soox coon kenn jàngalu ko way c'est là qu'il a révélé au grand public mm-hmm. c'était en 1972 mooy grande nuit Jeanne d'Arc bu ensemble instrumental di accordé di def balance coon ah du sax yaakaar di way loolu ko laay boobu remarqué mu approché ko jox ko rendez bu Sorano doon eh, orienté ko ci papam papam ne ko dégg naa la ko mais amul kenn ko ko jàngal way moom da doon tëgg mu jëkk ci commencé way donc il a laay boobu ne ko man ak yow mënuñoo bokk fu ñu mu yóbbu ko Starband bu laay bi commencé am ay contrat ak Sorano di génn eh, baabaab doon kaas muy indi Mapende pour mu koy remplacer donc finalement bu laay moom quitté ba coon ñëw carrément intégré Baobab mais ñu bëri xamuñu ni stade baan la nekkoon bi ñu fa jógee Pape Djibi Ba ñëw mhm. ba Pape Djibi Ba ñëw du Sow ñëw donc mu nekk un grand monsieur de la musique man je l'ai côtoyé il est juste une réussite incommensurable et c'est quelqu'un su la jox dara euh, euh, du ko fësal da koy nëbb nekk nit koo xam ne mu suma gis ku ñëw posé ko problème mu neenaan la su ko mënul ci saa da wax ñëwal ba sangam nga ñëw mu la ku la ko jox mu ne demal ci kees bi gaa jox la wala mu réglé ko en partie mais je n'ai jamais vu coon nit ñëw posé ko un problème coon renvoyé ko musuma ko gis donc sa générosité était sans faille mm-hmm. donc mu nekk koo xam ne Sénégal xamuñu ko ah en fait euh, c'est j'ai après le décès les gens ñu ngi découvrir coon te coon et lu mu gën a neex ci coon à quelques jours de son rappel à Dieu il été blanchi par la justice ouais le 5. bu bu muy def appel bi ñu bari que ne wóorul mu ne non non non ma def ko donc y a eu des faits yoo xam ne qui ont qui la au soir de sa vie yu mu def yoo xam ne nitu yàlla dëgg rek moo koy def. Mm-hmm. xoolal son son fameux donc tout renvoie à un homme je n'ose pas dire que c'est un saint mais c'est un homme pieux donc ñi ñi ku baax ku tabe kuy ragal yàlla. mais parfois dans dans sa vérité le fait que d'être incompris les gens dañuy mujjee. waay di di di ko di ko caricaturer autrement. c'est vrai seul Thione Seck comprenait Thione Seck. on a eu la chance de faire partie de son cercle restreint. Mm. on le connaît trop bien. nekk nit ku baax ku ñamee njaboot ku seetaanul kenn ñu ne am na fi jaar ñu. dëgg la euh, euh, tey Papa Kiba euh, yow nga nekk rakk ci moom daanaka ci sa ci sa carrière lu ci bari. daanaka papa Thione moo doon jël décision yi man xam naa ci dara euh, euh, parce que demoon naa sax ba di la ci tooñ. tooñ naa ko ci mu ne ma ay waaye duggal lu sa yoon nekk sa yoon nekk. mais tey euh, naka la doon comporté woo ak yow en tant que parent en tant que daanaka moo la doon ménager. waaw xam nga ñun bi ñuy bi ñuy bi ñuy juddoo màgg xam-xàmme yàlla dafa dogal nag li nga xam ne moom lañ doon lekk. maanaam euh, kër kër ga ba bàyyi nga dund. Mhm. yàggul ci diggante boobu mais mais waa kër gaa nga fa yaay nga dund. Mhm. ci lañu xam-xàmmee ci dépense bi nga xam ne dem nañ ba xam ne coon sek moo koy joxe. ñu gën a nekk xale. ñu gën a nekk xale. donc loolu dafa nekk loo xam ne duma ko fàtte jamais dans ma vie. nag dama am chance man mu gën ma cee yërëm. waaw ah, dama am chance mu gën ma cee yërëm. xam nga ma am ci chance tamit ci confiance bu garaaw boo xam ne daf moo ko jox te boobu temps yoruma lu suukar màdd. ku la ñeewantaloon la. waaw c'est normal parce que xam nga xam ne comme boo dee comme ni buñ la woowee caat c'est comme ça euh, maa ngi nekk maa ngi fàttaliku bi mu ngi nekk xale bi may boobu maa ngi jàng école 3 boobu coon nekkul Sénégal boobu mën xaw ma sax la mooy tukki wala boog avion xaw ma ci dara mais je me rappelle bi ma ko fàttee dafa yàgg nag. xam nga bi may jàng école def def naa ay CM1 xaw avant sem 2 non bien avant loolu sax ñu envoyé benn ensemble bu beige te ni maanaam pantalon ak chemise bu beige dama jékki-jékki ñu jox ma ko dama con moo ko yónnee moom sax bu doon dund xam naa fàtte ko loolu mu nekk lu ma marqué may màgg ak moom te boobu man fekk man presque du ma gis du ma gis coon presque du ma gis parce que boobu may nekk xale. Mhm. mais loolu moo tax xale. c'est important pour looy def na ko xool parce que loolu toujours mi ngi bopp bi te boobu maa ngi am def naa ay dix ans est-ce que am naa dix ans te tewul maa ngi lay fàttali lii tey ensemble bees bu rafet boo xam ne dama ko bëggoon loolu parce que rafetoon. Mhm. ma am chance aussi euh, fekkee as ci moom mu am fulla am fayda. am diini bañ ko ko yab baaxoon lool baaxoon lool baaxoon lool jullite lool nag wax dëgg yàlla c'est vrai li grand Tafa Guèye bi di wax léegi papa wóolu ko woon yaay wóolu ko ñëpp wóolu ko mu teel a nekk responsable c'est vrai que li di wax coon du taaw mais yàlla mooy def loolu donc li ma ci mën a wax bari na xam naa ci kanam. mais xam naa daal ku euh, ku ku cher. Mm-hmm. ku baax ku jullite ku ku ku ku diiñoon. Mhm. surtout dignité bi surtout dignité bi dem na daal dem na dem na. Papis euh, euh, euh, tey ñu gis li nga xamante ne témoignage yi Keba def may ñëwaat ci ci homme bi mu doonoon. ci dignité bi ak caractère bi nga xamante ne forgé na ko ci waaram daan ba mu nekk ci orchestre bi ci yéen ñi nga xamante ne yéen ñu njaboote yéen ñu jiite tey mu nekk ci yéen dangay gis dëggu gi ba tey ci liggéey bi ak bëgg liggéey. bi ñu Papa bi nga xamante ne tàggatoon na ko en euh, en quelque sorte ci orchestre bi ba lépp lu mënti xew rek euh, ak nu mu mënti xewee da doon fonk liggéey bi defoon ko loo xamante ne doonul def doonul woon égoïstul woon ci ci ci boppam bu ñu waxee mu ne ndax yaa ngi xalaataale musiciens yi. waaw euh, Bijou je crois temps bu gàtt bi ma def moom parce que j'ose dire que temps bu gàtt la. su ma basé woo si bi may ñëw Ramdaan le Tafa di dem musul dem sax nag parce que à mes à mes débuts dëgg yàlla intervenir na sama digganteeg moom ba tàyyi moom mi mhm. tant musicalement en conseil que tant non Thione le il a des idées ba ak euh, ba semaine bii mu ñu wanee ginnaaw temps bu gàtt la par rapport avec le travail qu'il a déjà fait euh, mais l'homme en question comme en question laay wax le côté artistique je crois que ñëpp xam nañ. résultat baa ngi mais euh, pourquoi quelqu'un comme Thione Seck chante dans les textes comme il chante pourquoi il a ce grand côté humain ça il faut pas le chercher dans la musique il faut le chercher dans le vécu ak moom comme j'ai toujours dit euh, yàlla daf ma may chance ma comprendre wëlbatu ko am beneen chance mu def ma confiance euh, li ma gën a marqué si moom ba yàlla def sax nag man bu ma ko amoon cinq pour cent je crois qu'il m'a aidé à développer mën a jël ay coups ona man man ak wër nañ àdduna bi man ak moom mhm. du tukki yëpp a neex am nañ ay date am nañ ay événement du yi ah, Sénégal yi dégg du yëpp neex mhm. toll nañ ay moment crise instant bi lañ koy wax mais crise jaar na fi bataille je l'ai vécu avec lui liñ naan nag aussi kenn ku seen yàlla daf lay may capacité de perception boo xam ne booy euh, liggéey ak nit yaa koy activer parce que man le vole patron j'ai jamais voulu prendre parce que ku coon sekk nekk sa patron je crois que di nga liggéey nag. waaw di nga liggéey mais tu vas pas bénéficier moo tax man euh, vole yooyu dama ko teel a tëbal on a entretenu des relations vraiment de grand frère petit frère euh, ma jël si moom loo xam ne bi dama marqué à jamais quelqu'un boo xam ne du ne du jàmbat du ne on a vécu des moments yoo xam ne tey jii ñi ko fekkee ñu ngi may dégg à travers le monde tukki nañ joué ba pare def honorable concert mu woy ah en Europe ñëpp kontaan fans yëpp kontaan ñu ne ay ca ay ca ñu dellu hôtel vite fait on rentre on retourne sur la base Paris ñëpp préparé ñu dem ba yegg ci euh, avion ci euh, aéroport bi pour jël avion gisuñu promoteur gisuñu organisateur gisuñu sax ñu ñu doon gunge y lui bi mu ne papis non on essaie de voir ak Ousmane Camara on essaie de trouver une solution ñu dem ñu laajte billet bi ñu waxee somme bi parce que yooyu bu amaan il se mettait jamais devant da daan jékki-jékki rek nee dama papis dama laajte billet yi ñu ma daan tooñee ivoirien hmm. comme yow tu parles anglais c'est machin dama hmm. bi ma demee Ousmane Camara ñu yegg si ñu defal ñu total bi j'avoue xam naa ne yoru ko maa ngi hésité si diggante guichet ba ak fi mu taxaw ak Kiné naka lay naka la lan lañ koy wax jour boobu lu ma marqué la si moom bi ma ko ko waxee pour dire que day bàyyi xel da daan bàyyi xel lépp dafa mën a njaboote dama dama ñëw ne ko ah grand y a problème ah bii suñu billet yi benn baaxu billet yi ñu jox benn baaxu donc montant bi lii la mu nekk une somme buy jé avoisiné léegi ndax ay billet d'urgence la ñu waroon jënd tout de suite man xam naa ne somme boobu yoru ko mu ne ma kaay tey jii j'ose parce que il ma ma nettali loolu parce que il faut vraiment ñu xam l'homme mu am lu mu récupéré si ki ñëw ne ma lan moo manqué ñu compté mu ne ma jëlal xaalisu diw ak diw non non diw non. jëlal xaalisu kee. Mm-hmm. jëlal su ma ne ko muy grand man dama ne la bàyyil ma wax a gaa yi mu ne ma déet xam naa ñi ma njaboote dem jënd billet yëpp ñëw rapidement avant l'heure ñu dem bi ñu yeggee Paris. Waly Timéra ma ko koy jaal par la même occasion Waly Timéra dañu yegg si rek mu kar téléphone dal na ma Waly Timéra dina la woo mm. pour musiciens yi seen cachet yi kii yoon noonu ñu remboursé ko rapidement euh, loolu lu ma marqué la si moom ak crise bu fi romb boo xam ne ànd nañu joué defe naa Ousmane sax mu ngi joué nañ soirée yoo xam ne fii à Dakar yoo xam ne <laughs> cachet sax mu nuñ ko génnee si total bi suñu génnee frais mais day taxaw ak jim ñuy joxe di joxe di joxe am na benn jour boo xam ne moo fàtte ma benn billet deux mille cinq cent la ma def nii <laughs> période yooyu man euh, je me suis investi à comprendre où puissent ses forces en fait bi ñu demee ba gën a rapproché wu ba gën a rapproché ba nga xam ne mun sañ naa ko poser yenn question yi j'ai découvert que derrière yu yaa y a une grande spiritualité loo mu ne yàlla loo xam ne yàlla et Papis pourquoi mu difficile woon à cette époque est-ce que du tey euh, euh, dignité bi nga xamante ne nit ki meloon na ko loolu moo taxoon euh, ak bañoon a laajte bi bañoon a jàmbat <laughs> loolu mun naa ne man man difi euh, difficulté def naa <laughs> Ousmane wax na ko ba tàyyi man musuma nangu gis difficile am xam nga lu tax parce que dama daan comprendre li nekk ci suuf le fait de vouloir vraiment réussir la chose mhm. pour loolu damay dugg tuuti ci musique bi gisa nga coon benn benn euh, notu musique buy def tarantant tarantant musique bi di tourner pendant quatre heures de temps il insiste que place boobu saa yu ñëwee not bi nekk fa. Mm-hmm. am na soirée yoo xam ne mu ngi si dëgg man maa ngi si fen damay dama doon tey exprès bañ ko jouer pour voir c'est quoi problème pour un chanteur de son niveau. Mm-hmm. ma ne lu tax mu bàyyi ma man xel ne il faut un temps ne ma ki fi nekkoon avant yow kooku ki fi nekkoon avant kii. lii la doon joué kooku xoola da ko daan def. no yow ah, aayal lu la neex mais. jox ma il faut ma dem au fond. Mhm. en fait li mu doon jàngale foofu euh, ñi ñi ñi def musique classique euh, xam nañ ko c'était de respecter les arrangements respecter public bi bi fecc gis na coon loo improviser lu mu neex neex ba dugg ci xol man maa ngi nii je benn jour laa ko këf. bett ko rek def benn mélodie. Mhm. wëlbatiku setoo kili Ousmane def naa dina ko fàttaliku wëlbatiku xaalis bi ñu ko mayoon yëpp sànni loo def day day kontaan. bu neexee quoi bu neexee bu neexee. dimension mais rajo bu fekkee numéro ah. téléphone bi mën nga ko afficher parce que am na ñu bëgg dugg. Euh, euh, bu fekkee mën na afficher numéro téléphone bi am dimension artistique parfois ñun ñi nga xam ne ay doomam lañu am na ñu bëri fekkee wuñ léegi la mën a dugg à travers YouTube mm-hmm, mm-hmm. di di ñëw euh, recherche su texam mm-hmm. yow mi nga xam ne côtoyé nga ko naka la daan mën a fonctionner di bindi xeeti bind yu ni mel gis nga puzzle fu ma la mën a jox man li ma fekkee parce que il fut parolier bien avant man may ñëw daan daan mais là où je mis en en observation c'est Diaga album okay. Diaga Maria Chantal on l'a travaillé à deux. Mhm. à deux man ak moom piano voix. am na si morso yoo xam ne avant ñuy dugal clavier yi aéroport la ñëw ne ma eh kay kay wala jàppal ma lii. mu ne ko mais sans clavier mu ne ma non xam naa la. jàpp ko parce que man xam nga man dama koy fàtte. bu ñu toogaatee un mois wala deux euh, un mois et demi plus tard mu ne ma li ma la dénkoon ma ne ko lii la woon mu ne ma waa non gàmm bi laay changé di ñëw ok. Euh, coupe du monde bu mujjee bi fan la man temps boobu ma ne ko ah Sud Afrique non non euh, coupe du monde 80 ma ne ko Argentine genre yooyu 78 ma ne ko Argentine ma ne mais grand yi looy coupe du monde da nga bëgg woy football mu ne ma comme sànq takk kii gin waaw takk te gin moom la euh, euh, pour pour di création xam na li muy woy yëpp dafay def comme kuy tabax kër. day teg les fondements wut ay moom. du mës a pare constance. du mës <laughs> xam nga bind tans tans tans defar ay veeram teg moo xam ki mu bëgg woy yàlla xam na ne jaaga jour bi mu bi mu yàkkee woy bi dama toog mu ne ko grand kii ne ngay woy kon te te projet bi boobu mhm. daanaka pare na xamal la pour woon la rek ni inspiration di ñëwee. Mhm. mun na toog nag si studio bi musique bi di daw ba pare ku mën a nekk studio nag ku mën a nekk studio parce que euh, day ñëw sant la dara si tu réussir le projet avec lui tegal ko loolu une fois mu am tapis boobu li mu posé posé posé ay affaire am yëpp mhm. teg yi ay affaire am yëpp texte yi day ñëw day taw tey tam ay man si li ma fekkee. <laughs> alors euh, ñu ñu ñu ñëw ci euh, ñoo xam ne peut-être euh, gëm naa ni muy Bambali ak Mandiamé kon dañu ñëwoon fi damay dem damay dem damay dem. ci mhm. Bambali automatiquement. Mhm. moom bu ñu koy gis moom dañu day moom sax da ko wax ne man coon laa fan. moom ci ay ay maa ngi jégalu sax ah, sànq. xel day fàttu. Mhm. dama nuyu fàtte sama rakk. muy Bambali. rakk ju jox cër la. waaw rakk ju baax dafa yaru moom ku ñàkk ñaan. lu ma ko digal dafay def. Mhm. lu ma ko tere dafay bàyyi. Mhm. géntoon nañu ko xamoon xamoon nañu balaa ñuy. kii di jàmm bari rek mm, macha allah macha am na solo alors euh, Bambaly mooy li ñu li ñuy wax chaque fois moom ci ay paroles am man coon laa fan man ma penda ma jur mais coon mooy sama papa. waaw euh, moom tout temps moom moom loom la la wax ñu bëri boo ko gisee sa complicité bi mu am ak jaaga parfois doo ko gis ak famille bi nga xam ne moom la gënoon a jege. Mhm. Euh, Bambaly coon nekkoon sa papa ci vécu yi nga am su néew ci moom boo ñu tudd mën a dikkal as akus rek lan lay doon. waaw man comme ni ma ko waxee woon Papa John ba ma ko commencé xool bëtu papa yàggul. ndaxte man depuis bi ma nekkee xale ba sama papa sax bu ñu doon jël di ànd ak ñun këram. boobu dama ko doon xoolee. bët yoo xamante ne man en fait comprendre ma. waaw koo xamante ne mooy maanaam dama ko bëgg quoi. Mhm. comprendre nga. Mhm. ba ma li ma lay wax yàggul sax ci la réaliser ne en fait kii sama papa la quoi en xam nga mhm. mais tellement que fi ma ko teg bët yi ma ko doon xoolee li ma doon sentir man bu ma koy déglu wala su ma ko gisee nii ne ko jàkk xam nga loolu yàlla moo yàlla moo koy def ndax ba ma nekkee xale ci harmonie ngay woyee sax musuma woon sax xalaat wooy ma nekkee xale maa ngi nekkoon kër ga maa ngi doon jàng école nekk ak sama papa nekk sama yaay xalaatuma woon way mais moom rek laa doon déglu mm-hmm. kër ga nag dama fa doon nekk di woyantu bu ko defee jànk yi di daw di naan sama yaay sa doom ji da nga koy dégg muy muy muy way baat bi dafa neex fekk na man Thione Seck laay doon déglu ba ma nekkee xale nga doon rek mhm. daan woon sax déglu sama après par la suite euh, bi ma duggee ci musique mën naa ne fépp fu ma doon dem bu fekkee dama bëgg def dara loo xamante ne sax nit ñi dinañ xaw a apprécier damay woy woyam. waaw. xam nga naxante ba génn ci. waaw genre yooyu noonu. parce que boobu amoo expérience mosoo joué soirée. Mhm. tam moo yëg ci kaw seen di woy. le fait que musique bi ma doon tourné sama bopp nag tout le temps ma dem ba def ko arme maanaam fu ma munti dem bu ma xawee cóole tuuti rek. fekk ko jabaxal ko. Mhm. yàlla dogal nag par la suite man ba ma ko commencé fréquenter bay wax moom. li nga xamante ne ute na ak diggante papa ak doom muy côté showbiz musique ba ñu commencé di ci waxtaan ci lu bëri ba mooy proposer dara wala ñu ciy waxtaan di échanger. Mhm. Euh, mën naa ne daf ma ne déglu naa la bu baax mais yow ba léegi bàyyeegul la nga way parce que boobu mën naa ne au début ak 2014 ba may débuté je dama débuté ak album. sept titres mu déglu ci quelques morso album bi génn bu yàgg ba na album bi génn na ba def ñaari at moom am ci benn morceau boo xam ne mu ngi ko doon soog a déglu mu woo sama yaay ne ko dama déglu sonwu Bombali mais moom ba léegi bàyyi guñ ko mooy par la suite euh, bi ma convoqué ba ma dem këram ñu toog mu ne ma yow su ma sañoon nii nii nii pourquoi mënoo nekk ci benn groupe même bu fekkee da nga nekk ci benn group di awu sax wala kii pendant benn un an xam nga deux ans ba nga nga am expérience carrément parce que déglu naa la. mooy demal jàng des que dem nga dem nga dem jàngiwaat. non waxee ko ci cadre. Mhm. ay non des na. Mhm. performance mais dafa doon expliquer mooy maanaam ci cadre expérience moom. Mhm. parce que gis nga moom tey jii xëy na peut-être moom lu mu la ti wax. téere la. ndaxte. yàlla dogal na ne man missionaire laa ko jàppee addunaam yëpp daf ko ñafe addunaam yëpp daf ko daf ko xeex mm-hmm. d'après man ci li ma jot a seetlu euh, musique nag moom du ko kafe moo waral indi loon yi dafa compliqué ñu bëri di ko wax ba ñu musiciens yu bëri di wax non yii metti comme Papa Thione man loolu dañ ma koy wax <laughs> c'est parce que xëy na peut-être dégg-dégg boobu noonu mm-hmm. moom laa ko jëlee. yàlla moo koy def euh, bi ñu commencé waxtaan ci jom ci showbiz ba mu ne ma su ma sañoon nga toog benn deux ans boo xamante ne wala un an boo xam da ngay nekk ci benn groupe expérience bi gën a kii gën a yokk ma ne ko amul problème ma toog benn trois ans boo xamante ne nekku moon ci groupe sax mais wayuma ma clip génnewuma son génnewuma dara par la suite. Euh, ba benn moment li ma gën a marqué jour bi ma papa coon ma pare nga pour tey jii su ma la jëloon pour nga defar ma première partie penc mi ma doon loo xamante ne jaaxal na ma parce que déjà bon instant boobu noonu j'étais j'étais pas assez prêt pour xam nga song yooyu noonu mhm. surtout devant un public ñëw rek def li ngay def noonu ah <coughs> ma ne ko waa ba tey man pare na mu ne ma ah d'accord léegi yow répétel say morso comme ça premier janvier la tombel ndeysaan mu ne ma comme ça jour bi nga ñëw jouer nga defar ma première partie mais répété ak sama musiciens yi fexe ba répété ak ay morceaux mais boobu li ma dimbali woon mooy ki nga xamante ne mooy sama papa Jean Charles Jean Charles nga xamante ne moom jot naa xam sama papa coon bu baax après jot na nekkal ak sama papa tamit Assane Ndiaye xam nga moom moo ma as doon assisté ci répétition yi moom ma ci dimbali woon ba ma demee ba yëg penc mi ba defal moom première partie ba pare may waay may waaje a wàcc am kenn ku ne ma non Papa Thione nee na nga biisaat beneen comprendre nga mhm. ma wayaat ma wàcc dajeeg moom ci escalier yi ndeysaan mu yëkkati xaalis bu bëri na ma am suba dinaa la woo am lu mu la wax ma ne ko waa baax na incha allah par la suite ñu dem ba ma woo ma ma ñëw enregistré ci albumu CEDEAO en cœur bi. Mhm. aussi tamit bëri na ci yoo xamante ne vraiment ngeen baal ma mais mënuma sax wax par détail détail détail ndaxte mhm. dañ fi yàgg. Mhm. comprendre nga mais c'est juste que man li ma ci jot a jàngat mooy koo xamante ne papa joo xamante ne na xeebul kenn xeebul kenn koo xamante ne addunaam yëpp daf ko ñefe doon bañkat man loolu jàng naa ko ci moom. bëgg réussir bëgg relever ay défis loolu jàng naa ko ci moom ba tax na sama papa jooju daal mën naa ne mënuma wax lépp ndaxte kon dañ fiy yàgg hmm. ah, vraiment mënuma wax lépp daal mais yàlla na ko yàlla xare aljana yi gën a kawe ci aljana yi ma nga fa hmm. waaw ndax manqué nañu trop hmm. macha allah waaw sama papa jooju ma Ndiaye euh, euh, euh, yow coon nga ñoom sax si say say xeetu way moom lañu gis mu doonoon sa papa nga bëggoon ko loolu itam jege ko ba say lii bii parfois da koy wax sax ne ko yaay sam star parce que coon laay gis ci yow. Hmm. Euh, euh, mu nekk des moments durs gi bi ñuy gis période dëj bi sax nga waxoon dafa metti ci yow nga dund ak moom moment yu bëri peut-être am na projet yi xam ne doon nga ko waajal pour sa papa yow ak sa papa coon nga dëmmal ko moment bi ngay toog di xool ni gis na solina la naka ngay dundee lu ni mel. waaw bi taf mën naa ni am na lu bari loo xamante ni eh, fekkee naa ko mm. ndax man ma nekkoon sët boo xamante ni mën naa ni maa gënoon jege sax seen yaay mm-hmm. ndax man bàyyi yaruma yaay yaruma yaay nogoy moomu yar mm-hmm. bu bu musaana ñëw ci kër gi fekk sama maam toog man bu xale yëpp musaana génn sax di may mag ñi ñu waxtaan man damay toog sama wetu maam ndax moom bésul bugg sax may sori buntu kër gi mu yaay nogay su musaan papa coon musaana yegg si wala sam papa wala papa Keba wala Mapenda mais sentir sama maam xol bi dafay sedd ndax doom yi mu jur xam na ni ay doom yu baax kese lañ papa coon mu nekk papa joo xamante ni papa ju baax la woon papa ju ñàkk ki ñaan la woon ku yërëm doomu aadama nit ku yërëm xale su mhm. ma mësaan a ñëw ci kër gi ma fekk mu toog damay egsi am na benn xaritam bu mu daan bu fa daan nekk rek ak moom mu ne ko haa kii mooy manjaay mu yaay nogay manjaay moom sët la rakk la doom la ndax man maa ngi dégg mu mu naan waa ji moom mën naa ni sax suñu rakk la ndax sama yaay ko yar te nim ni ko sama yaay yare noonu noonu la ñu mhm. li sët yi di bari bari yépp maa ngi koy ñaanal fa mu nekk yàlla na ko fi gënal mhm. su may wax sax sama xol dafay dafay dafay kii waaye yàlla na ko yàlla xaare àjjana yu mhm. gën kawe noonu lay demee yàlla na ko na ko malaaka yërmande yi teeru. noonu sax lay demee. waaw waaw noonu lay demee. Eh, eh, eh, Karajo bu fekkee ni que numéro téléphone bi mën nañ ko afficher rek ku ci mel ni Ousmane Camara ah depuis États-Unis mi ngi naan Papis Ndiaye wax na lépp li Papis Ndiaye wax lépp bisu dëgg la bu fekkee ni que aussi numéro téléphone bi mën na afficher ah ñoom ñi nga xamante ne dañoo bëgg a dugg ñu dugg bu fekkee Mapenda pare na aussi. ah ñu daal di koy ñu daal di koy dugal waaye nañu may ñu euh, euh, élément bi nga xamante ne def nañ ko ak ki nga xamante ne moom mooy Pape Djibi Ba mhm. waaw élément boobu euh, Karajo bu fekkee pare na ñu daal di koy setaan ñëwaat léegi léegi sur le plateau. di leen jàll ci lii nga xamante ne moo dal ci réew mi ci génn ko àddina Thione Seck sama xarit sama doomu ndey kon El Hadj Bécaye Mbaye na nga jotal sama njaal ci réew mi. te xam na ñàkk nañ ko baax con sëg lu ma sam jox na ko réew mi waaw école bu mag baa man ak moom dañoo yàgg ci jamono Abdoulaye bu ba léegi ñeent fukki at dara mësta ñaaw plus de quarante ans d'amitié dara voilà euh, foire internationale bii li ma lépp jox na ko Sénégal moom Thione Seck kon yàlla na xam sedd di ko jaal Mapenda Seck di ko jaal Assane njaay di ko jàll euh, euh, euh, Waly Seck sunu doom di ko jàll Laminaar di ko jàllit maanaam artistes yëpp waa jël jàllit teg ko ci le président de la de son excellence monsieur Macky Sall gardien de la constitution protecteur des arts et des lettres di ko jàll di ko jàllit madame fay Sall la première dame madame Faye Sall di ko jàll Sénégal gépp te xam ne ñàkk nit ku baax un monument nit ku dëggu ñu ku baax nga xam ne lu ma sa téere kon ay yàlla na xam sedd coon day sama gànduwaan sama xarit li lay wan loolu CEDEAO yi yor projet bi nga xam ne sumb na ko di CEDEAO en bu yàggal bi ma ñëwee Sénégal toog nañ ca këram ñu toog di waxtaan yëg ca kaw man ak moom ak yàlla ñu toog di waxtaan rek ci projet bi li lay wan ne coon ndey ji seex la woon danoon nit koo xam danaan dajale ndax Sénégal benn bopp rek kenn mënu koo xaar ñaar te loolu moo lay wan ne Thione Seck wax dëgg yàlla nit ku yaatu woon lépp lu mu mës bokk ndoog doomu aadama yi te di gërëm it journaliste yi nii ñu ko taxawoo te xam ne loolooy Sénégal waaw kon muy Bécaye na nga sama nuyoo jotal sama njaal ci réew mi te xam ne ñàkk na ku baax un homme de valeur yàlla na xam sedd ci barke Seydina Mohamed yàlla na ko yàlla yërëm te yéexu na ci barke Seydina Mohamed ku baax. ku ñemee dëgg ku dëggu léegi di ko jaar Sénégal gépp am na benn morceau boo xam ne ko daan leen ko baaxee boo xam ne maa ko fentoon man ak Thione Seck ca jamono yi ngi wala man ak Pape Mboup orchestre ngéwél Pape Mboup Thione Ballago Papa Djibi Ba géwél gi neex na xaritoo doomu yaay la saxoo di waxtaan ci yokkute réew mi xaritoo doomu yaay la saxoo di waxtaan ci yokkute réew mi saxoo ànd gi mooy mooy li am solo saxoo ànd gi rafetal mooy li am solo buñ ci saxee dal Sénégal am na tànge xaritoo doomu yaay la saxoo di waxtaan ci yokkute réew mi papa mbuub coon balaago papa jibi baa ngéwél gi neex na papa mbuub coon balaago papa jibi baa ngéwél gi neex na yàlla na koy xam seet ndeysaan li maag coono ko woyoon ca jamono ngéwél ca àdduna ndeysaan yoo xam lu yàgg na dëgg la te dara ma sa ñaaw yàlla na nga xam sedd ci barke Seydina Muhammad wallaay wallaay jërë ngeen jëf El Hadj Bécaye Mbaye jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Karajo ci élément boobu ah euh, élément bi sax lañ ko waroon a teg. Mhm. ah euh, ci ci li nga xamante ne moom mooy plateau bi. ak Père Bécaye mhm. euh, Papa damay rebondir parce que. tey jii ci plateau bi yow yaa gën a apte pour wax ci ki nga xamante ne moom mooy Pape Djiby Ba ñu wane ko léegi léegi léegi euh, euh, si élément bi mu yónnee ñu ko euh, ci li nga xamante ne moom la wax ci Pape Thion. Pape Djiby Ba ci année 73 d'ailleurs premier album bu Star Band génn. Mhm. moo ci woy Chéri Coco. nga xam ne Thion moo ko njëkk a woy après dem mais Pape Djiby Ba moo ko moo ko moo ko joué Star Band après Thion. Mhm. def ko album. Mhm. il a il a fait des du Stade Nantes. moo fi tegoon tànk ah oui moo fi tegoon tànk ba ne ba 76 il était là. waaw mhm. ah, mu nekk un chanteur bu mag a mag a mag temps boobu moom moo woy Sénégal Jambar moo woy Buuro Buuro Daali. Mhm. vraiment dem bu mu demee ba presque bu muy ñibbisiwaat ci la woy Balia nga xam ne Balia aussi a fait fureur. Balia Balia mhm. d'ailleurs sax Assane Ndiaye reprendre ko. mais mu nekkoon chanteur bu mag a mag a a vraiment. rendre ko ci hommage. waaw qui a bercé ñun suñu jeunesse suñu enfance donc euh, vraiment ñu ngi koy ñaaral mu continuer parce que gis nañu ba la il a la foi. Mhm. et c' est quelqu'un ko xam ne mën na encore dem parce que comme le vin plus que muy gën a yàgg il se bonifie. <laughs> ouais ouais <laughs> mhm. euh, euh, parfois bu génnee àdduna ñu bëri dañ naan yëgoon nañu ko da doon tàggoo peut-être peut-être est-ce que vous aviez benn pressentiment que coon ci jamono ji ñuy toll mi ngi mel ni ku ñuy ku ñuy junj wala ku ñu ku ñuy ku ñuy tàggu ne bës dina ñëw ñuy toog di ko def lu ni mel. waa xam nga loolu. Mm-hmm. Euh, Moustapha. Mm-hmm. loolu peut-être ñi ñi ñi ñi jegewul coon dëgg-dëgg ñoom la lool di jaaxal quoi mais je pense que ñiy toog ci plateau yi macha allah waxuma sax xale yi ñu tuuti comme Bombali ak. Mandiaye ñoom seen seen at sax xëy na. néew na lool pour ñu xam. Mhm. mais Tafa Goudia bi Papis Ndiaye Kéba Seck man mi mhm. xam nañ coon même succès bu dee ba muy jeex ci moom sax déggoon nga mu way xam naa dinaa am sa xewe ji. Mhm. bu boobaa ñu naan. amoon na fi temps mi amoon na fi temps gars am ñu daan ko wax déedéet. mu naan leen si si dina ñëw. <laughs> dina ñëw day moom prévoir na lépp. parce que aussi coon. il faut ñu fàtte euh, que ni dafa yaru ci ñaari wayjur yu baax yu jullite. exceptionnel. wallaahi muy alaaji Cheikh Seck ak soxna Nogoy Ngom ñooñu nga xam ni Mandiaye wax na ko léegi ñun Mandiaye euh, presque man sama yaay man yaruma ko quoi sama yaay mës na ma pes ndax Mandiaye parce que Mandiaye nee na xamul ndeyam xamul baayam man rek la xam. pour te dire que te munuma nii ma leen yare yéen ñëpp noonu laa koy yare boo xoolee amul kenn ku sama yaay jur wala sama papa ku réew mbaa ku amul diine macha allah coon boo ko xoolee xam nga ni def nañ ci moom diine ba nga xam ni papis mi ngi koy wax léegi papis même bu santul sekk papis xam na coon mm-hmm. dafa gojaay bi bu santul sekk moo ñu gën a xam coon parce que <coughs> non seulement dañoo Tafa Gueye boo duggee këram benn photo nga fay fekk comme waykat nekkal xaritam népp lépp dee ko jox milliard photo coon moo fa nekk jeex na am keneen du fi dugg te pourtant tout le temps léeg-léeg am ay différence mais toujours de xoolal boo xam da nga naan seen yoon bu mu ci nekk ndax ñoom ñaar xamante ne mhm. donc coon boo sincère dëgg ci la lay gën a la lay gën a bëgg parce que au moins dina xam ne am na ko ko comprendre parce que ki comprendre mooy ki sincère comme moom mais boo sincèreul coon daf lay jaaxal alors que moom man xam naa ci moom dëgër bopp goo xam ne ni mu mel non moom leer na ma ne kenn mënu ko changer te ñi nga xam ne ay sociologue lañu aussi ñu xam nit xam na ñi nit bu dul naafeq day mel noonu parce que coon du tricher ci li mu gëm moom la gëm mm-hmm. waa lool nag pour nga <laughs> mel noonu Sénégal day difficile parce que Sénégal dañoo di comme loxo sax. waaw dañ ko doon wax sax dañ naan eh, ah, bëgg nañu maslaa te maslaa foo ko mm. fekk. mooy la plupart di jog nga ci dëgg gi. ni mm. grawul nañ ko nañ ko ko teg na ko ah, waaw. coon nag wax nga ni balaa ñoo lu bari naan mi ngi doon tàggoo est-ce ngi doon tàggoo loolu nga ma mm-hmm. ngeen pressentiment boobu. mësuma mooy li ma la wax rek. mais est-ce que pressentiment bi Big Taf di wax yomboon na am. koo xam ne euh, euh, bi mu commencé carrière am ba tey coon mi ngi way de est-ce que kooku yomboon na ñu gis pressentiment. il a resté intact non mooy li wax ni moo tax boo xamul coon. xëy na disparition bett na àdduna. mais man xam naa ni bett ko ñii fi toog ñëpp. xam nañu si attendez parce que émission boo def. Euh, ci ñeenti at yu mujj yi. ci ñetti at yu mujj yi xaw ma ñeenti at yu mujj yi. Mhm. boo ci def ci interview yëpp tudd na ko ci. mais kañ la woyoon sax yi ci biir suuf. loo wax mu ne surplus laa nekk di duñu woor mhm. moom mi ngi xalaat boppam. <coughs> coon dama la dafa yaru avant mhm. muy nekk star di waykat. alaaji sax Sekk def na ci moom diine ak ngëm yàlla xam ne lu am yàlla la. boo ko xoolee moom noonu lay dundee noonu lay doxee Papis mi ngi expliqué. voyage yu métti xam nga ak sir man man def naa fa douze ans xaw te grâce à Tafa Goudiaby mhm. dañu jël euh, ki ci ligne bi tonton euh, euh, Ousmane kiiwuma la sax mm. doguma la waaye nañu jël ki ci ligne bi 88 628 14 13 allo asalaamaaleykum maaleykum salaam waaw ma soxna si noo tudd ak ñuy woowee Dieynaba Diop di wootee Gambi ñu ngi lay nuyu bu baax tur bi naka la Dieynaba Diop Dieynaba Diop waaw ñu ngi rafetlu bu baax sa woote euh, lu waraloon woote bi. xanaa nekk fan si Papa Thione. macha allah rafetlu seen plateau bi. di di ko méttit lu trop nag. ba loolu xewee ba tey mënuma am suma bopp damay nekk di xalaat. xalaat te di ko ñaanal. yal na ko mm-hmm. yàlla may jannatul firdawsi. amiin. di ko ñaar jaale doomam ci Wally Seck mm-hmm. parce que yàgg bu mu fi jógee suñu indépendance fii la ñëwoon Gambie joué fi mm-hmm. mm-hmm. di ko ñaanal yàlla yan na yàlla teg loxoom seen kaw ñoom ñëpp amiin di ko jaale famille bi yëpp ak Sénégal lépp jërëjëf di rafetlu nag plateau bi jërëjëf jërëjëf jërëjëf di nuyu waa Gambie yëpp ndax wax dëgg yàlla euh, euh, Gambie moom réew la boo xamante ne ñu bëgg faramaareen yi lañ ñu mm-hmm. bëgg euh, Papa Thione ki njabootam ak képp kuy faramaareen rek mm-hmm. wax dëgg yàlla euh, Gambien yi ñoom ñun on est redevable envers vous euh, jërëjëf waaye tamit dañuy nuyu ces technicien ah ñoom Seydou ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi message ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax ak surtout waa Balago TV ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi yónnee élément mm-hmm. waaye bu ci xajee rek dinañ ko daal di dugal Ousmane fi nga nekkoon ah jëlal c'est waxtaan bi lañ bokk. 88 628 14 13 allo. allo oui. oui. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa bu baax a baax a baax biis ñu bu baax a baax baax ñu ngi lay fay. noo tudd ak foo ñuy woowee. ne ñu daal fi Gambie. ah. ma ne maa ngi ah. bi naka la. Abdoulaye Ndiaye. kontaan bu baax sa woote. di leen mastaw li nga xam ne ñun ñëpp loolu lañ bokk. jërëjëf. di suñu papa jooju nga xam ne papa Thion nga xam ne lii ñun ñëpp la metti. Mm-hmm. waaye nag kulu nafsin saayixatin mawti mm-hmm. di ko ñaanal yàlla rek suuf seddee ko. Mm-hmm. metti na lool na wante ñu bokk mu ñu rek macha allah. jërëjëf jërëjëf. sant yàlla rek sant yàlla bu baax. ay ca jërëjëf jërëjëf. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. bi Bijou pour pour euh, dolli Ousmane. Mhm. Euh, si li mu wax noonu li ngay wax ne que wax tontu na déjà ne que à travers woyam il tout. prévu ouais. il avait tout prévu. Mhm. parce que woy ñu dégg. Mhm. waaye xanaa kuy woy nit ñi dégg fàtte woo sa bopp. déedéet li ko dëggal mooy en dépit de woy yeeg yépp yàlla bu jékki woon jaaxaraan li mu wax yépp par rapport ak nit ak existence am terewul saa yu xëyee loolu mu ngi si projet bu bees. Mm-hmm. loolu nag ku gëm yàlla rek moo koy def. te amoon na projet bu bees boo xamante ne sax ci ci ci dee la woyan de daanaka bi génnul nii. ak man la ko def. waaw bi bi génnul nii. Euh, de sama dernière communication ak moom ak moom dama ne ko yaa ngi si maa lay yaa ngi Ballago TV xam mais yow. di nekk journaliste. waaw ma ne ma ma ne ko léegi journaliste mu ne ma non Ivoirien il ma pousse affaire bi mu dem. Mhm. ne ko waa certes mais en temps dafa benn gab bàyyi ndax projet CEDEAO bi dafa lourd trop te nekkatoo fa artiste. Mhm. nga fa wala initiateur xam ma ne ko léegi yow qu'en est de toi. Ah. yu metti nga ko doon laaj mu ne ma waa léegi waxal rek ma ne ko dinaa la yónnee quatre morceaux mm-hmm. xoolal de pour te diir ne que euh, du mu sa pare mu ne ma non def ko cinq mu ne ko pourquoi mu ne ma parce que j'ai cinq textes téléphone Papi Sané laa wax moom mu ne ma parce que j'ai cinq textes yoo xam ne wóor na ma ne musique bi ngay indi ñu koy nuyu bu baax moom Papi Sané aussi waaw waaw waaw waaw ku yàgg ak moom mm-hmm. waaw depuis depuis man mujjee moom ma ko paas voilà mm-hmm. voilà xoolal xoolal ku ku mel noonu te pourtant moom moo lay wax si dee ak ëllëg ak euh, est-ce que demain absurde ba pare saa yu yeewoo mu ngi entamé lu bees donc namm na nag namm na man si ni mu ni mu defee benn continuité boo xam ne personne n'est éternel mais ku sañoon même sa ginnaaw la vie dont euh, euh am loolu nag Euh, njaboot gi tey la waxuma sax ñoom Ousmane ndax ñoom joué nañ seen euh, seen joxe nañ seen seen seen participation. mais est-ce que seen participation jeex na tey. non du non est-ce que amul beneen brèche boo xamante ne. non tey jii la brèche la la brèche la brèche ñoom ñi ngi fi ñoom ñi ngi fi. Mm. te ñi ngi doxal xam nga tey dañuy am wax dëgg yàlla euh, ñoom ñi fi toog nii dañuy am fierté à chaque fois. Mm. ñoom ñi ngi doxal parce que bu ñu nee showbiz ñoom génnuñu ci seen bopp. actuellement ñun fexe nañ ba musique sénégalaise yemale lañ ko ci quelques personnes. Mhm. du dëgg euh, euh, donc xaw ma loolu suñu ñàkk xarañte la. Mhm. wala mais ñoom fexe nañ ba bokk ci buuxante bi. Mhm. donc loolu xam naa ne jeune génération bu bees bi façon style bi ñuy defee la. waaye tey jii est-ce que ñoom Papis dafa nekk. brèche buy tëju ñoom est-ce que du luy ubbeeku encore ñoom walla sas beneen buy tegu ci seen kaw. en fait en fait xam nga en en termes de euh, y a quelque chose qu'on près réussi Afrique. te loolu moo ñu lool euh, challenge boo mu nekk nii suñu kanam euh, Tafa xam na am na orchestre yu existé depuis cinquante ans am na orchestre yoo xam ne c'est ay Sexteto Habanero ay Aragon j'étais tout petit bébé may dégg ñuy teg disque yi euh, à chaque patriarche comme Thione comme Youssou Ndour comme Baaba Maal normalement il y a avoir une suite logique boo xam ne bi du ne rek ci descendance bi de du ne rek parce que ma njaay euh, doomu coon la déedéet ñun nag on a la chance ak coon yàlla def il a été il a joué le rôle de <laughs> de professeur ba pare parce que looloo tax tey jii nga am Kéba am Ousmane Ousmane mais ñoom tey jii li tax may wax ñoom aujourd'hui il ils existent Kéba il existe il a des projets en cours Ousmane on travaille ñun Ousmane wax dëgg yàlla euh, euh, ils ont ñoom ñëpp ay de longues années seen kanam mais dañuy obligé toog place wu euh, professeur pour ñi sans quoi yaa y aura un grand problème dina am gab boo xam ne bii danaan paf et ça va pas euh, plaire à xam naa loolu. moi je vais dire plutôt barrière le vrai héritier de Thione Ousmane Seck. dëgg la parce que Ousmane Seck dafa importé ba importé ba dara des qualités ay défauts Thione da ko am. Mhm. <laughs> non si si si il aimait tellement son métier que moom moom orchestre moom moo fay jiitu. ak ak 88 14 13. balaa ñuy ñëwaat si benn phase mu doon allo. allo oui. oui. bi je m'en lay ziar. delloo ziar bu baax sëñ bi noo tudd ak. mbaa yaa ngi si jàmm maa ngi tudd Alioune Mbaye. Alioune Mbaye. maa ngi wootee Dakar. ñu ngi lay kontaan bu baax di jégalu bu baax nag parce que tàmm di wootee ay rajo télé ak yooyu franchement. dëgg la dëgg la. man naan gëj naa ko def sa fait plus de quinze ans. dëgg la. waaw mais coon euh, moo tax ma woote. macha allah yàlla xam na ni xamante wuñu mais mm-hmm. xam naa ni man maay soppeem numéro un. d'ailleurs bi mu gaañoo ba léegi ñu ngi woote ñu ngi ñu bëri ngi woote ma ko jaale. parce que xam nañ sama diggante ak moom parce que yàlla dafa def man li ma gën a marqué ci moom mooy jikko ci mm-hmm. sincérité bi. Mm-hmm. avant le côté artistique. waaw eh, dama ko doon mas naa ko benn jour nag parce que dafa am benn way bu ma ko bindal bu ma ko bindaloon man man aussi damay composé allo. Mhm. Mhm. yow rek la ñuy mais dama mais dama ko tuddee l'incompris. l'incompris. voilà Thione mhm. c'était un incompris. waaw eh, xam naa nag dinañ ko comprendre yaakaar naa Tafa mi koy wax sànq. dëgg la am am na aussi ku wax sànq yaakaar naa Bambali la mu ne Thione missionnaire la effectivement Thione missionnaire la. missionnaire nag en général day nekk benn génie. Mhm. parce que am na daje ci yow loo xamante ni que mënut a daje ci benn nit. léegi bu jëlee rek côté bi ko nit ñi yëpp xam ne muy côté artistique. coon boo xoolee à 14 ans commencé na way. Mhm. boo xoolee jaar na ci Pa Bira Gueye léegi naa pa bu sévère la woon musicalement. Mhm. doon ànd ak Doudou Seck doon ànd ak Doudou Sow groupe la woon. mais boo xoolee moom moo ci fële te groupe boobu yëpp ay naanaan lañu. Mm-hmm. ci biir groupe boobu ci la ko laay mbub CP. coon au lieu que mu dem vers laay mbub laay mbub moo ñëw vers moom laay mbub moom moo ko approché. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. laay mbub yóbbu ko Star Band donc jógee ci Biraage yi dem Star Band ñëw Baobab. donc boo xoolee orchestre ñoom ñoo nekkoon mën nañ ko wax ay université la woon. tey jii musicien bu fi nekk Ousmane fekk moom mën na ma seede tey jii Ousmane Seck bu tegee kasetam bi mu defoon en quatre vingt dix dina xam ne que dafa évoluer trop na mais con mooy koo xamante ni que dafa li ñuy wax dafa xëy rek nekk ca loolu boo dégloo son mi defoon en en en soixante-douze ak léegi da nga naan yooyu sax moo dàq. Mhm. te tamit amul kenn ku ñu par exemple kii con kii lay roy amul kenn ku nirool. te tamit li nit ñi xamul xëy na amul chance def vraiment feu et flamme international mais moo fi gën a am tamit style international parce que dafa am style oriental plein d'harmonie donc nag yàq na nit nag am musicalité boobu noonu mm-hmm. ba pare ab aay ci texte ba pare li gars yi xamul dafa aay ci arrangement mm-hmm. Mm-hmm. voilà donc daal vraiment c'était un génie man moo tax vraiment euh, mën nañu sax gudd dafa na man nañ sax gudd na fan mais coon tey jii xoola par exemple euh, il a tout fait pour convaincre xoola boo xoolee bi muy def traditionnel mais coon au moins def na plus de cinquante léegi nag ñu bàyyi xel ci ban âge la amoon temps yooyu noonu ay années soixante dix sept soixante dix huit quatre vingt yooyu ban âge la coon fekk amoon pour bi de temps de textes yooyu noonu pour andi ba tey moowu génie bi coupé na. kii fan bu ko xam la. waaw fan bu ko xam la et puis dafa xam li muy wax. ba pare ku xam ku xam bu baax <laughs> li ñuy wax. donc je dirais si moom son côté artistique. Mm-hmm. et l'héritier spirituel de Thione Seck. Mm-hmm. parce que ils ont les mêmes qualités les mêmes défauts. ouais. waaw xam naa leen man yàlla def na chance. Mm-hmm. yàlla ma chance boo xam ne ñoom seen kër dugg naa fa bu baax. à part Kéba daal laa fa encadré woon. mais ñoom directement j' étais le manager Assane Ndiaye et tout donc. Euh, Keba mooy Mappa Ndessé. waaw ah, pour sûr. donc aujourd'hui je pense que Thione euh, ses héritiers au-delà de Wally il y a Ousmane Seck donc ensuite bàyyi na fi deux grands projets la CEDEAO en cœur et et Balago TV ça c'était ces ces projets yoo xam ne vraiment. ci projet yooyu dinañ ci ñëw sax xam naa ne ah, deuxième partie projet yooyu waxtaan. parce que projet yooyu. Mm-hmm. Euh, man xam naa ni wax dëgg yàlla. di tenir vraiment à ce que projet yooyu aboutir à quelque chose yow père toog nga du benn yoon du ñaari yoon mu woote di wax ci li nga xamante ne moom mooy projet bi surtout Ballago TV bi bi ci mujj rek euh, Papi Sané moom moo ko passe téléphone mu naa ma dama bëgg nga defaral ma li nga xamante ne moom mooy programme télé bi ma ñaata million nga may fay <laughs> donc euh, man moom wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, mu ne ma dégg naa la ngay wax naan showbiz daraay diine nekk ci moom bëggatuma dégg nga koy wax ma ne ko dinaa ko wax parce que showbiz léegi ak sa bos bi ngeen doon dund du benn. Mhm. donc yu bari yoo xamante ne man xam naa ni que euh, euh, barrière bi ñu amoon euh, fi mu ne nii nekkatu fi. parce que Papa Thione barrière la woon ci li nga xamante ne moom mooy li ñu doon def man xam naa ci dara parce que yu bari bari bari bari bari bari xew na fi amaana gis ngeen taxawaay bi nga xamante ne noonu la taxawee. daanaka dañuy dem def li ñuy def ba pare mais foot bi yëpp da ngeen di gis ni sénégalais yi euh, euh, di ko sottee ci kaw Papa waaye euh, ni ma koy waxee rek à chaque fois seul Papa Thione comprend Papa moom kese moom moo comprendre woon boppam et que xamoon na ne exactement nii lay demee waaw moom ku xamoon nii lay demee la waaw amaana ñun ñoo ko xamul woon waaye moom xamoon na ko. c'était na pour xam Papa Thione. moom moo ko xam. moom moo xamoon boppam. yàlla defal na ko sutura bu mag a mag a mag man euh, fekkee naa je ne fais pas de comparaison fekkee naa Laye Mboup. Mhm. bu jógee fekkee naa Nongolo fekkee naa ñu bari mais je sais quand même euh, déjà la façon dont mu demee rek euh, vraiment. Mhm. sonalul kenn. Mhm. il a surpris tout le monde. xam nga nit nit boo yëg feebaram. nga dem di ko seeti. ça te fait de la peine. Mm-hmm. Euh, pense qu'il est parti mm-hmm. mais Tafa loolu tey même jàkk ji ñu jullee fajar même chose li imam bi wax parce que comme bi Ndeye Fatou gaañoo sama doom dafa ñëw ay yoon am xamante ñu moom dafa bëgg jaamukatu yàlla yi. Mm-hmm. bu xamee ne ñii waa jàkka lañ. wala da di xam nga. ñu ñëw toog ñu waxtaan gis nga bi mu ñëwee ba ci imam bi. sëg mënu ma yëg nañ ko mais wax dëgg yàlla coon daal xam nañ ni sonalul kenn ndax ñun yëguñu fenn fu ñu nee coon dafa tëdd mhm. wala dafa feebar mhm. te nag ginnaaw dem mënta ñàkk walaay ku mën a dem te doo sonal kenn looloo gën ndeysaan ñu wax loo xam ne ci coon da naan mais attends xam nga buñ nee waykat wala artiste rek ñëpp dañ naan bandi bi mhm. nit ku tekkiwul dara jox la beneen image jox la mhm. mais ay nit yoo xam ni wax dëgg yàlla waxuñu kenn pour lu ko neex mais dégg naa ba tey ñu ne coon daal ñàkkul lu mu defal yàlla. Mhm. li moom maa ko wax te ñu xam coon xam nañ coon deful dara moom buggul ko ko jey bañul ko ko xas coon day encaissé ku yëpp. Mhm. moom li muy def yàlla yonent bi <coughs> du muy woy Abdou Diouf condition bu mu posé mooy dinaa ko def mais condition lépp lu ma xalaat bind ko dama koy woy c'est-à-dire ay contrainte changer li wala changer la mhm. moo toog ci ci avion bind ko ni mu ko bindee noonu la ko xalaat noonu la ko woyee la ko woyee il dit ce qu'il mhm. li mu gëm loolu lay def bañ na ko bu loolu taxoon mu dëgër bopp mais dëgër bopp googu yëpp boo ko toppee da nga koy weddi ba mu yàgg nga ni ay la yeewoon nag li mu wax dëgg la ko waaw xam nga c'est comme euh, ngi koy mi ngi koy wax ci ay biir waxam. xanaa euh, ñu jël ki ci ligne rek rek suñu paree ñu ñu continuer per Père Père Keba. ayca 88 628 14 13 allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, bijou na ngeen def man la Baye Sall. ah Baye Sall ñu ngi lay nuyu bu baax di rafetlu sa wote. waaw waaw Baye Zane ndeysaan Baye Zane c'est le manager de de de de Mandiaye maintenant waaye Papa Thion waaw Baye Zane waaw waaw. ñoo ngi leen di fay di nuyu ñu toog ci plateau bi di nuyu Papa mhm. di nuyu euh, Keba Papa Keba di nuyu euh, euh, sunu grand manager bi may fàtte turam. Moustapha Ndiaye Papis mhm. di nuyu Bambali di nuyu Mandiaye. Euh, bi jour intervention bi nii wax dëgg yàlla euh, di jaale tamit Sénégal yëpp euh, Papa Thione mhm. di ko jaale musique musique en général intervention bi li tax ma def ko mooy que keroog ci dëj bi journaliste yi ñu ngi doon may poser ay questions ak yooyu noonu mais mënuma ci wax parce que nit da ngay wax loo xam wala nga wax ci ko fréquenté man tey it euh, ku nekk xamoon na ni amoon na benn antécédent bu ndaw bu mu amoon ak euh, Papa Thione te que tey laa koy soog a regretter parce que fougue de jeunesse da lay jàpp nga def loo xam ne waroo ko def te tey nit ki duñ bàyyi bu mu génn àdduna nag après nga sekkoon nag moom lenn loo xam ne waroo woon ko sekkoon moom mu génn àdduna après ngay intervenir mel ni que da ngeen amoon ay relation yu particulier maag Papa Thion benn yoon boobu la ñu mës a am la mës a wax ma wax ñu jàkkaarloo ni waxante ci kàddu yàlla def li muy def man ma juum génn def sorti wax yow yaa taxoon maag moom ñu xuloo. Mhm. waaw yow juróom lañ xuloo sax maag yow tamit. waaw waaw juróom lañ xuloo mhm. waaw voilà te lépp mu tënku woon tamit ci àdduna tey suñu papa dem na. Mhm. te que suba mën naa ko dem fekk ji. te ba tey man maa ngi fi nekk gum euh, bien vrai que ni ne gisante nañ après loolu. Mm-hmm. toog waxtaan man jaay moon toog amoon nañu toog kër gi yow am nga lu la ci leer mm-hmm. euh, mais que man regretté naa li tax mu demee woon noonu parce que ci témoignage yi ñi ngay dégg ak ni ñuy waxee ci nit ki kon nit ki benn incompris la woon mais que sant nañ yàlla nag ci bi ñuy defee erreur ñun ñu koy reconnaître mais que man tey damay lancer benn message pour que ñun ci suñu musique bi ñun ñu nekk mm-hmm. mooy que tey ñun ñoo ngi ñoo ngi musique nekk ay xale di waxante lu ñaaw di ko defante te suba man mën naa dee mais man bugguma mukk ma génn àdduna ma amoon ma amoon ak nit ay problème euh, ñëpp xam ko ci internet bi. waaye alhamdulilah ba ba ba réerootu leen. te fa ngeen doon fa fa ngeen doon répété sax récemment chaque répétition mu tooñ la. dëgg la alhamdulilah. loolu amee moo tax man tey jii nii man erreur bi ma dal nii may bañ sama dëj mu mu mu am ku ko def ma yeewaat jug. <laughs> bugguma kenn koo xam ne nii que tey jii suñu mënul am jàmm nii rek toujours buñ bu buñ bàyyi ba dëj am rek ñu koy jéem a am. Mm-hmm. Mm-hmm. nañu nañu ut jàmm nii ci bi ñuy dund ñu rendante hommage ci bi ñuy dund ñu waxante lu rafet ci bi ñuy dund. c'est très important. alors caméra yi nag dafay tàkk après nit yi wax wax yu fort yoo xam ne nii doo da ngay wax ndax kii kii kii kan la. man loolu doon wax amoon na am na fulla de aka amoon fulla <laughs> papis voilà kooku amoon fulla <laughs> tey mënu ko mënu ma message bi suñu paa yooyu nekk Bambali ak Mandiaye seen génération man mën naa leen ko lancer parce que ñoo bokk même génération mhm. mooy que su rafetee léegi nii dina rafet pour que ñooy mën a ñëw témoigner sama dëj waaw Baye sax xanaa da ngay tàggatoo. <laughs> non non déedéet lii kenn dafa. déedéet coono ñun ñëpp la de Baye confronté wu ma damay sama Baye ba xam nga ne yow. sa pap bu deewee dinaa woote wax lii de bàyyi bàyyi mu sedd du dëgg. non damay bañ rek. tey bu dee mi ngi ba tey tey tey lan la dafa dafa jàngal àdduna yëpp. dëgg la dëgg la euh, ah. affaire bi li may wax nii waaw da ko non da ko jàpp waaye nag moom alhamdulilah xam nga lii. ba tey ay leçon la yoo xamante ne ñun ñëpp ci war a jàngat bàyyi bàyyi ma bàyyi la nga terminer après ma doon di ñëw. foog naa pare na voilà tey jii nii damay bëgg rek. Mhm. dëgg yàlla Euh, tey lii nii jàngat la ci ñun ñëpp ñun nañ ci jàngat di jéem a defante lu rafet nii ci bi ñuy dund. Mhm. ak di ko waxante. alors bugguma mukk tey nit seedeel ma ci télé bi benn affaire boo xam ne dafa ñaaw ma dee mu seedeel ma lu rafet. waaye Sénégal la. waa man non non man bugguma ko te loolu tey ji nii nii ñoo ngi dëj Papa Thione tey nit nit bu mën a wax rek ci ci sa rajo dafa tiit <laughs> waaye nekk nag ci heure tiit yow fi ne nii. Hmm. Eh, eh, eh, da war a gën a gën a gën a gën a gën a renforcer waat ki nga xamante ne tamit moom la fi bàyyam jóge du dëgg tey wax dëgg yàlla dañoo jël ma njaay teg ko sa loxo waaye luñ lu ñu mën la yow xam nga ne lu ñu mënal suñu bopp la. waaye nag dañuy bàyyi rek wax dëgg yàlla. mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Hmm. voilà pour ne pas aakimoo lépp waaye mën nañoo aakimoo lépp voilà loolu la ma waxoon ci studio bi bi may bi ñuy gisante. voilà ah, kon baax na yaa ngi voilà loolu ko fàttali ma wax nii. dama dama waxoon ci studio bi. ba pare wax tamit ay wax yu rafet. Mhm. ba pare ne ma ah tey yow yaa ngi ni yor sama doom du ma la vexee garaaw répété. dëgg la mu nekk nit ku baax. Mhm. te tey jii nii man moom ci sama fukk rek laay nekk di demee mais jàngat laa ci amal. Mhm. te jàngat bi man bien placé naa. pour wax ni jéem a jàngat bi nit ku baax voilà maa ngi jégalu nag ci intervention bi. non non ñu ngi ci am contentement bu baax parce que lii da ciy baax wax dëgg yàlla Karajo bu fekkee ni que mbay si tamit mu ngi bëgg a dugg euh, parce que sama téléphone mi ngi mi ngi toj waaye mënumaa jël ñëpp bu fekkee ni que ñooñu mën nañ leen dugal ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, mën Karajo mën ngeen woote si Karajo rek ñu xool nu koy nu mu koy dugalee. 88 628 14 13 ngeen jëm cee woote waaye moom mi moom moom Baye Sall ndeysaan euh, wax dëgg yàlla euh, euh, keroog ci humour bi nga xamante ne Papis Papitoon mi ngi ko amoon parce que au-delà de l'artiste qu'il était nit koo koo xamante ne dafa dafa dafa dafa bëri woon humour plein d'humour voilà plein d'humour mm. li nit ñu ci bëri xamul woon Euh, ba ci jour bi nga xamante ne moom la Baye Sall di expliqué Baye Sall mi ngi koy tooñ naan ko Pape Thione yaa tooñ hmm. yooyu yëpp ñu ngi ciy waxtaan ah, ci répétition ah, yooyu yëpp muy nit koo xamante ne nit ku oyofoon nit ku hmm. baax euh, am na ay éléments yoo xamante ne xam naa Karajo après dinañu ko jox bu fekkee ak éléments yooyu yemb na aussi Karajo ñu setaan ko ci nit ki nga xamante ne humour humour bi nga xamante ne Pape Thione mi ngi ko doon dund euh, léegi-léegi ñu xool ko sur le ñu ñëwaat ayca karaajo dafa mel ni am ayca waaw. maa ngi leen di jaale loo xam ne ñoo ko bokk Sénégal yeeg askan beeg àdduna beeg Orange wu rawatina Gambia ak Polo maa ngi jaale suñu papa Papa Thione Seck mi ko a di ko jaale suma xarit yi nekk ci réew mi di yàlla na ko yàlla xaare benn billet bi mooy lii bu nekk yow xamee woo cent euros cinquante ak dix ak vingt fi mu jógee yàlla ajal nañu wàcc waayam yàlla na saram yàgg suñu loxo papa con balaa wasek maa ngi koy jaale képp kuy médecin di jaale euh, bépp doomu aadama bépp jullit na papa con coono àdduna la coono Sénégal la lépp jaal si nañ di jaal si yàlla na yàlla nangu seen njaal ndax ñaa xalañu loo ci xarit ci wàllu balaa wasek maanaam da vidéo bi pour la 2STV contentieux. waaw parce que euh, Abba moo jël sumay saayir ya dévalori dévalorisé ko. may nag ay kaja. bu ñu jaar nag di fukk suuf. wax dëgg ne. wax dëgg ne. léegi Pape nga ne da ngay génne benn son. léegi nag euh, damaa bëgg a wax Sénégal bi Abba jógee dëkk ba. waaw ñëw na cëpp ci Dakar. waaw ba bàyyil mu sedd bul wax. mu njëkk dal. Baba xam nga li lépp yaa ko teg sa bopp. ak añ ba mu dëkk añ. maa ngi jégal ba maa ngi jégal. léegi ba waay ak lam ci jëkk wax. <laughs> non kii fëttal na muy mu rëy. <laughs> nuyu nañ leen. ndeysaan. waaw Youssou jigéen a ngoog. di nuyu coor mag yëgalee yaa tax a teg brique Sénégal kii. mais yaakaar naa ni. xaw la woon. xam naa la. nan nga ko yaa ngi dend ak coon yéen a ngi ci làmb ju mag. waaw ñu tuddee ko El Hadj Mansour Mbaye gis nañu coon ci guddi El Hadj Mansour ak lam fa way mu dellu si waat y a vingt ans en arrière ah moom ak Maal mais tey ñëw nga ci làmb ji nag lan nga ciy xalaat. waaw làmb ji. Euh, li ma ci xalaat moom mooy comme ni ci ñëpp di xalaat sport la foo agré la ba pare nag sunu xarit sunu doomu ndey muy Gaston Mbengue organiser ko jël drapeau bi tuddee ko ki nga xamee ni que moom mooy El Hadj Mansour Mbaye El Hadj Mansour Mbaye kooku foog naa ni ci démb li ko coon wax nekkuma foon loolu rek moo ne Mansour amul sens interdit fenn. lépp lu mu xewle fu ñu mën a ne ak ci lu mën a ne dañ koy bàyyi ñëw taxaw ci bés boobu rawatina nag muy un grand. ak tuuti petit poids. du ma ko laal du ma ko jege. parce que yàlla moo ko cëral ndax lu yàgg dëgg la yàgg na fi ci politique bi ci culture bi ah, ci ci këri diine yi te ba léegi foog suñu borom tegoon mu nga fa kon ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér ah moom gaa nekk na sax mag mu am ñam. waaye yal na ñambowu baawaan ba ci njabootam gépp ba laaxal lu ñu nii. mais combat bi nag lu ngeen ci wax. déet man nag du wax ci combat ndax. kon Youssou Youssou Yékini dama ne. dafa am benn déclaration boo xamee ne que. Yékini non non déglu wax la. dafa wax dafa wax benn mbir bu am solo. boo xamee ni que ça repose une question. dafa ne moom bii mooy dernier combat ak Balla Gaye man ma ne waaw bu ko Balla est-ce que du demandé waat moo tax ma la bul wax. <laughs> am na solo na yeneen yoo xam ne sax xam naa ni euh, am na am na yeneen yu yu yu yu garde itam lu jëmoon ci Balago TV ah ba tey 88 628 14 13 salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo maaleykum salaam soxna si maa ngi lay siyaare. maa ngi leen siyaare mbaa yéen ngi jàmm. tur bi naka la ak fan nga ñuy woowee. man maa ngi wootee France man Dikko njaay laa tudd. d'accord mais ngi lay déglu. waaw dama woote pour jaalee pour ba euh, bi. Mhm. dëgg la ñu ngi lay déglu. waa dama woote rek pour jaale. Mhm. di wax yàlla ko yàlla yërëm te xaaree ko aljana. amiin Papa Thione ku baax la macha allah. Mm-hmm. te li muy ndey ndeysaan dama koy déglu toujours tout le temps damay déglu ay musique am. man fii laa nekk ci France. Mm-hmm. ba ma amee fukki at ak juróom laa fi ñëw mais am naa trente six ans mais toujours toujours damay déglu musique Papa Thione tout le temps parce que bu ma koy déglu ci sama biir xol bi lay dugg. te moom ay musique am day yeete di yedde donc li mu gaañu vraiment daf ma métti trop torop torop torop te maa ngi jaale famille bi yépp mhm. et puis toujours je pense à jabaram ak doomam incha allah donc vraiment metti nañu torop torop torop trop torop jërëjëf mais bu may wax sam fee sam fee mal ça se voit jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, euh, mm-hmm. di jàllale aussi euh, ki nga xamante ne moom mooy grand cher mm-hmm. ah, bu Ismaïla Lo ñoom ñëpp ñi ngi wax dëgg yàlla envoyé ay message mm-hmm. bokk na ci aussi ay ay njaboot xam nga Papa dafa njabootee woon papis ñi nga xam ne daanaka ñi mu ñi mu gënoon a njaboote sax daan mën naa ne juru leen parce que bu ma xalaatee ñi nga xamante ne ñu ngi may message bokk na ci Papi Sané maa ngi la koy wax léegi waaye bokk na ci xale yi nga xamante ne ñu ngi doon liggéey ci Balago TV Euh, ñi ngi may wax naan ma Bijou balaa Papa Thione balaa muy def lii ajjuma daanaka joxoon nañu ñun ñëpp ñun ñëpp kenn ku ci nekk joxoon na joxoon na la sa salaire donc kenn ku ci nekk ci ñoom fayoon na la. Hmm. amul kenn koo xamante ne ameel na la wala mu ne la xaaral ba suba ñoom ñëpp la wàccool balaa muy def li nga xamante ne moom la def euh, bokk na ci aussi ñoom Sachin Balago ah bokk na ci aussi euh, ñoom Bas. ah euh, ñoom ñi nga xamante ne ñoo doon nekk foofu yëpp ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikha ah Cheikha euh, euh, ndeysaan moom moo def mooy def interview yi foofu. Mm-hmm. parce que ba ma ko ci tooñ naan ko Papa Thione nee naa la bul def rôle journaliste fi ne nii bàyyi nga. Mm-hmm. li nga xam ne yaa ngi way yaa ngi ñëw ci suñu métier. tooñ naa ko ko fii ba may wàcc automatiquement le lendemain la xëy rek ne ma euh, dama bëgg nga wax ma li nga waxoon démb man Pape Thione man néew ma fii pour di xuloog yow ñuy jàllale ay baat. boobu boobu dégg na dégg na ko ma ne ko ma ne dama ne. arrêté lii ngay def nii parce que euh, Ouzin Keita bi ma jël ak Pawlish nga bëgg leen jëlaat pour la lekk mu ne ma yow yaa ci parce que dama bëgg invité nga wax ma yow fan nga teg ñii nga invité ma ne ko yaa leen njëkkee di. 88 628 14 13 allo. allo. allo oui. waaw salaamaaleykum na ngeen def. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi noo tudd ak foo ñuy woowee. waaw man la Mbaye si bu Ramadane. ah Mbaye si euh, euh, di jaajëfal sa woote waay yow de wax dëgg yàlla ci nga bokk ci njaboot gi la. Euh, sa woy jigéen ak Papa Thione ñoo bokk nday ak baay. ñu ngi lay déglu bu baax. waaw damay wax ci en tant que membre bu nekk ci Ramadane waaye damay wax tamit ci mhm. en membre famille. Mhm. wax dëgg yàlla di nuyu sénégalais yépp di leen wax ni leen am nañu naqar waaye wax dëgg yàlla yëguñu ko ndax ñoom ndax wax dëgg yàlla bokk nañoo ñu naqar bi te Papa mhm. Thione ñu rek moomuñu ko ñun dañ ko bokk sénégalais yépp di di jaale fépp fu waay mën a nekk rek partout dans le ndax monde entier ñëpp wane nañ ñu Papa Thione wax dëgg yàlla ñëpp ñoo ko bokk mhm. waaye di nuyu ñi nga xamante ñoom ñoo toog ci plateau bi Ah, di ci jiital suñu tonton Tafa Goudia bi mhm. di nuyu tonton Ousmane Seck mu toog ak tonton Keba mi toog ak Papis Ndiaye a di suñu chef d'orchestre mhm. ñoom wax dëgg yàlla wax nañu lépp waaye nag ah, am na loo xamante ni mënuñu ko cee bañ a ñàkk sànni di wax ni dañu ñàkk koo xamante ni dafa rëy trop ci famille yépp ku sant Seck ndax wax dëgg yàlla dafa yëkkati suñu famille dafa nekk suñu sagu famille def lu bari tey ci famille bi représenté lu bari ci famille bi tey li mu fi bàyyi waxuma la moom mais société la fi bàyyi boo xamante ni ñun ñun ba suñuy doom ba suñuy sët mën nañ cee jariñoo mm-hmm. ndax tey képp ku sant sekk wala ngay maanaam fierté nekk maanaam faramaare papa Thione moo ko waral ndax lépp ci moom la débuté mu jàngal ay raqam tegtal leen. ku ci nekk ci ñoom boo demee ba mokkal mu yëkkati group jox la nga dem ak sa bopp mën ak sa bopp yóbbu ñu partout dans le monde fépp foo xamante nii rek nit doon na rêvé pour dem fa Papa Thione yóbbu nañu fa. boole kook leneen loo xamante ni ñun juutu na suñuy judd képp ku mës a jaaxle wala lépp mu ma a xew ci fan bi dañu naan nañu dem ci Thione bu fekkee ni maanaam ku feebar la Papa Thione ay faj. bu fekkee ni dëj na Papa Thione la ñuy xaar pour mu def fa lu ñu fa war a def bu fekkee ni ngénte la Papa Thione la xaar pour mu def fa lu ñu fa war a def bu fekkee ni ku ñu war a maye la maanaam fexe ba maanaam famille bi ñu respecté leen ñu bokk ci réew mi am fi gëdd am fi cër. Mm-hmm. wax dëgg yàlla loolu ñu ko kii euh, maanaam loolu dafa rëcc ñu ñun ñun bisu ñun maanaam damay wax ci mënu ante ñun ñoo xam ñun li ñu ñàkk lu mu doon tey am na ñoo xamante ni tey ñu Papa Thione moo yoroon seen i location di leen ko yoral ñooñu nekkoon ay wëllëreem ak ki xaritam. Mhm. yoral leen seeni i kër yoral leen seen lépp ba ñu sàngoo si mu continuer di ko def tey ñi mu maanaam ñi fi nekk di dund korog dëgg ba boo ñëwee seet dafay daw ñii naan moom ma yoroon sama nangam moo ma doon fayal kër. moom ma doon fayal nàngam xam nga la heure bu ma mësaan feebar moo may faj nagu tabaski euh, dama juum xaru tabaski xam la ku musaana am dara papa coon yónnee la nag te kenn du yëg ku musaana feebar moom ngay xaar dama lay nettali maanaam semaine passée la ma woo. Mhm. fekk booba ah, sama tante na fi may <coughs> feebar moo woo ma téléphone ni ma paas ma sa yaay te sénégalais yi xamuñu maanaam papa ba mu dem bisu parce que nit la boo xamante ni daraan di mbalak lu nit ñi xamul sax ci moom mais ñi ko xam dëgg. xam nañ ni Papa dara daraan kas daraan foo daraan ree mais Sénégal boo dëggoo nag dañuy daal di ñu compliqué mm-hmm. léegi nit ñi foo ñi lan naan diw de moo ñàkk problème amul benn problème mm-hmm. mais boo dëggoo teg say di ci ëpp dañuy daal di jël compliqué man day je préfère man jël compliqué man bañ naa ko ba am na ñoo xamante ni sax am na yow bëri jarbaat Thione nga mais damay fier <laughs> parce que ni yaay yoo xamante ni buggul dara lu ñàkk lu mu am fulla fay da Papa moom la bëgg ku am fulla mhm. fay da Papa Thione respecté la bëgg la mhm. te wax dëgg yàlla dernier at yi nga xamante ni moom la fi def ñëpp fekkee mu jël artistes yi xale yu ndaw yi yëpp ci ne àndoon nga yow morceau ku mu gis sax boo ko gis mu la yow de woyagu ñëwal nga àndoon ñëwal nga way mhm. jël affaire yi teg ko tey studio ba boo fa demee ay projet ya fa nekk tey man ci boppam tëggal naa ko morceau yoo xamante ni way na ko kër diine yëpp te booba maanaam Fatick Ndiaye moomu toog noonu mën na ma seede boobu studio bi yaakaar naa mi ngi nekk jàmmalaay morceau yooyu am na neuf ans bërki démb Ndiol Ndiaye semaine bee passé laajte mu di ma ni waa toog yow sa morceau yi lan di ciy xaar ah, waaye yow nguur ak bër ma ni teer rek non mais morceau yi dinaa ko génne nangama ci ma ci sànq ndekete booba da ko liggéey pour bàyyi ko Sénégalais da ko liggéey pour bàyyi ko nit ñi nga xamante ni ñoo ko bëgg wax dëgg yàlla di ko ñaanal fa mu nekk yàlla na ko yàlla defal jàmm sama yaay famille yëpp mun ta lekk mun ta naan xam nga topp ci nit dafa mit mu naam lu koy jaale bu baax wax dëgg yàlla di ko jaale képp ku sant fekk waaye di ko moom jaale monde entier bépp waaw li may mujjee wax nag mooy waa Ramadan mention spéciale mhm. ndax ku mel ni tey tonton Almasar àndoon nañoo tonton coon ba mu rafet ñu ëlbatiku di ko jàppale ci doomam mhm. waaye doomam ah ñun ñi sant nit ñu bokk ak moom de ñu ngi koy ñaaral yàlla def yàlla suñu borom defal ko jàmm ndax ku xam ñu mu bokkal la jox leen cër am jom am fulla xam na ni am flambeau bii liggéey na ko ci ay at yu bari mu metti trop mu metti lool papaam daj lu ne dénk ko lim ko dénk Wally Seck fooyoo ko benn yoon xam na ni ko papaam dénk lan la te may yëgal Sénégalais yi leen Wally Seck woyagul barke Serigne lu Mbacké Wally Seck commencé gul après dese Thione Seck la ñuy xam kan mooy Wally donc di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm Ramadan yàlla defal leen jàmm may ñu gudd fan ak wér bisu. Mhm. nit ñi nañu xam lan mooy nit koo xamante ni dafa liggéey ci réewam ba am ci yenn dayo yi nañuy teel a accepté. nañuy am reconnaissance suñu mat ñi nañ leen teel a jox seen ak ak seen yelleef tey coon fekk mérité na avant mu fi doon génn ñu tuddee ko ay bërëb ci reconnaissance dina ci ñëw léegi waaw mhm. bi may tëjee nag mooy sunu mbokk yi nga xamante ni ay gën lañ comme man nañu bàyyi defe di am ñu jël seen téléphone di filmer nit koo xamante nii mu ngi nekk ci naqar bi jooy nga jël sa téléphone di ko filmer wala nit koo xamante ni papam dafa génn àdduna wala ni jaay génn àdduna mhm. nga ñëw ak sa si téeméeri ci ak juróom ñaar ñëw tiimale ko ko naan ko noo ko dundee nit kooku kay ni ko dundee xam nga ko ndaxte ku ci sa bàyyi génnoon àdduna wala sa njaay doo teel a yor ay téléphone di filmé bay dugg ci ay di filmé wala ngay dugg ci ay hôpital di filmé nit ñi nañ delloo seen ci yàlla te xam ne ñëpp ñëpp dañuy dem mhm. wasalaam wax ji bu guddee maa ngi jéggalu te xam ni xaj na xol laa doon waxee maa ngi nuyu ñoom bàmbaali moomu toog foofu ak mu njaay sekk ak képp ku sant fekk jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf euh, Mbaye waaye dañuy nuyu euh, ki nga xam ne mooy kani Papa Gueye Xaar suñu yaay di woon wax dëgg yàlla wóllëre ah moom ci fan si la bokkal ñoom ñëpp Issa doom yi nga xamante ne baana leen fa ñoom ñëpp wax dëgg yàlla waa kër ga yëpp West Foire ñoom ñëpp ñu ngi message Euh, Papa Thion daal ma noonu en quelque sorte. Mhm. Euh, dafa am dafa am. ci ci ci ci. Euh, Père Keba laa doon dégg ci partout humour bi nga xam ne xool nañ ko ci Papa Thione te amaana des na. ci ñoom ñëpp la nekk daanaka donc dañ ko gis ci ci ci ñoom ñëpp waaye mhm. moom dañu koy gis. moom it ci moom mi xam mhm. euh, tout le temps mi ngi mi ngi ko jël ba ci peut être défaut yi nga baal ma ci waxin moom gamaa ne partie humourum moom Père Père Père Keba boo ñu doon dikkat ci jamono yi nga daan passé ak moom mbalagante bi seen diggante qu'est-ce que ça vous fait réellement. waaw jërëjëf euh, Moustapha c'est vrai que coon da doon mbalak eh, yaa ngi koy gis léegi mbalakkat loon def na ko kii Moustapha mii def na ko ay Gio Gueye ñoom mhm. Jim Xule Vieux Gueye euh, Laminar Diop donc ñoom Pape Samba Ndiir ak yow ñoom Pape Samba Ndiir ñoom euh, ñu bare bare bu loolu sul wala boog bu toogee gars yi nii man ci laay gis sax muy saboté mhm. mais man su su ma daan saboté mhm. man day fekk dama ko fekkee d'accord bu dee moom Mapenda fi Mapenda toog ñu toog mën na ko saboté directement mook Assane Ndiaye directement coon dafa rusoon Ousmane dafa ma rusoon lool coon da nan maanaam bu ñuy xoolante dañuy sàcc di xoolante xaw ma nag loolu yàlla moo ko def mais man coon damay sàcc di xool moom day sàcc di ma na ko nag moom tamit ci moom ak ak yaayam coon daawul xool suma yaay chance boobu nañ am nag mais mais rek moo ma penda da nga naan c'est normal parce que moo euh, daanaka dafa la comme Ousmane mii toog nii mu ngi nii toog maa ngi jàkkal ak moom man lu ci ëpp man maa koy fekk dem sabote ko. wala ma ñëw fekk mu toog fii mu toog nii rek ma kott ko. def lu ma neex ba mu wax ko lu ko lu ma neex même téléphone. même téléphone. ñoom ñoo ñëpp ñoom ñoom ñëpp yàlla ah, alhamdulilah sant alhamdulilah sant bu baax nag. parce que ñoom ñoo ñëpp bu weesoo coon. parce que coon dañu rusante Abdoulaye Naar mi nga xam ne mooy magu coon. su ma la waxee su ma li ma koy wax day mu ree su ma ko waxul sax ma penda suñu waxee téléphone te bu jaaruma fa ma war a jaar. Mhm. su ma paree da ma xanaa yow eh, da nga fàtte pour moom su ma waxee day ree dama koy wax loo lu ma neex day ree. Mhm. Assane Ndiaye pare man nee naa dama koy kot. waaw song ko donc moom. noonu la meloon. Mhm. ah ma xanaa ma bàyyi la nga jël kii parce que ñoom ci lañ bokk. bisou 88 628 14 13 allo. oui. allo. Bijou. waaw. Bijou man la Paco Jackson. ah. Paco ñu ngi lay nuyu bu baax. c'est mon président. oui. Bijou maa ngi lay nuyu ziar. delloo ziar bu baax di la ko jaale bu baax a baax a baax. m maa ngi koy jaale Sénégal yëpp. Mhm. di ko jaale suñu papa El Hadj Ndiaye. Mhm. di ko jaale Ousmane Seck. di ko jaale Kéba. di ko jaaree sama grand tafa gujaabi di ko jaaree sama doom Mandiaye Seck ak Bambali te mënuma wax te duma tudd aussi Patrice Ndiaye donc euh, mënuma woon bañ a intervenir même su dee une minute rek parce que seen adduna yëpp xam ni su ma diggante ak Pape Thione mhm. waaw Pape Thione nag man mënuma dégg nit ñi di wax ay nen incompris wala lii wala lële Sénégal dafa nekk dëkk boo nga xam ne il faut ñu wax ko te dee dëkku naa fekk la nañ leen bàyyi suñu dee dund duñ ko waxa lu baax duñ ko seddee lu baax te xam nañ ni nit ku baax la mm-hmm. mais pour des problèmes de jalousie pour des problèmes de mesquinerie ah pour des problèmes de je ne pas qui la le meilleur qui n'est pas xam nga suñu ndëkk génne àdduna ñu ak ku bës la woon ak mais coon mënul bon coon référence la woon ñun ñuy ñun ñëpp di ko doon fréquenté coon daf ñu doon teg ci yoonu yàlla tout le temps dafa doon am mais capacité est-ce que yaa ngi julli yaa ngi matal waxtu yi xam man dama ko xam kenn duma ko nett bi Fatou Ndiaye boobu xam ne li may wax grand Tafa Goudia bi xam ne li may wax Ousmane Seck xam ne li may wax Thione c'était quelqu'un un papa poule Thione dafa bëggoon njabootam amoon yéene ci ay frères am dañ doon waxtaan xam nga Thione dañ doon waxtaan xam nga Thione c'est il faut ñu arrêter ay incompris la amul incompris ah da di jël ni taamu ko ah di wax lu leen neex su dee ñee dafa baax mais arrêtez naa fekk gi moo bëri ci réew mi son fekk nit gënu ko barke Seydina Mohamed dama ko fréquenté xam ko miin ko comprendre Aziz Ndiaye bi xam ne li may wax son musul dugg studio te woowu ma xam nga tey xam nga nit ku baax mënul am doom bu mu ne nii ku bon doo am yenn njaboot yi gis nga faramaare nii ah ñoom Ousmane Seck ñoom Kéba ñoom ay nit yu baax lañu du ñu sigg sax seen bët xool nit dañu am yar soo ko gisee sax ci xale yi ñoom bambal ay ñoom mbajaay waal yi da ngay xam ne ñii dañ leen yar Thione mhm. il avait de valeurs c'était un homme de vertu barke yonent bi man du ma wax lu ma gëmul ton dama ko gis muy dimbali ay nit ton dama ko gis ci ay situation te presque ñu bëree ko contrôle parce que lan kenn da koo woy ci réew mhm. tey dafa am mais nag woy ku nekk chance la waa léegi nii tey li bàyyam mën ci woy woy li bàyyam mën ci woy moo waal mën na woy mais coon da koy boot di woy mhm, mais tey li waa ji am ci musique xëy na papam amu ko. ko sax. yàlla la la nee na ma rectifier plus parolier que Papa Thione tu meurs. waaw. <laughs> am benn su la la moom. barke alquran li mu lay wax nii y'a même pas un mois man ak moom. Mhm. ma ne ko Papa Thione tey il faut ñu gise mi ne ma fan ma ne ko maa la invité restaurant ñu dem café de Rome toog ñuy waxtaan. mi ne ma ñuy waxtaan di wax ci àdduna man ko Papa yaa mën a woy non man ko man sooy woy fekk dafa woyoon benn woy boo xam dafa ma neexoon mooy Abibat mhm. xam mais dama koy tam bi ne ma su ma ñëwee soirée sax damay ni ko Papa Thione doo woy Abibat mi ne ma am nga sang jox ma sang mhm. xam nga et puis il mhm. ku baax coor il était tellement sensible ba nga xam ni xam nga mais daal yàlla nañu yàlla musal daal yàlla nañu yàlla musal ci pexe noo nekk ay nit ñu bon vraiment am nga li ma amoon daal li may wax mooy man kenn mënumaa tere wax li ma bëgg a wax parce man yàlla rek laa ragal comprendre mais daal Sénégal war nañ soppi mentalité yi soppi lu ñi nit soo koy bañ da koy teg ci lu la nit ki def moo tax nga bañ ko mhm. mais nit ñu baax ñu bëree ngi dem souvent dañuy dem ak lu leen metti comprendre mais nag bañ bañ bëkk waalee ngi fi ñoom Ousmane Seck ngi fi ñoom Mbanjaay Seck ngi fi gis nga yàlla lu mu xas ba rëdd nga effacé mu rëddaat nga effacé barki yonent bi yow lay effacé wasalaam biir bi bu may yàgg parce que sama xol a ngi fees. jërëjëf euh, euh, euh, coppati ah si ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di kontaan. Euh, euh, ci sa woote. ah euh, jërëjëf il a parlé avec le et puis nag. Ah, lay jooy na ba sonn. ah moom Paco Jackson. moom xarit Thion la woon moom xarit ak Papa Thion. xarit point bi nga nekkoon. humour mhm. humour bi c'est c'est très important. parce que dama dama dama si décrypter leneen. Hmm. ci sama cheminement ak moom. des fois mooy comme ni Kéba wax bu toogee ay xaritam ak ñoom Tafaani. loolu man fekkee naa ko. dañuy draayante ak ñoom joke yi ñuy draayante moom beneen façon humeur boo xam ne euh, du dara pour mettre des fois nit ki koy approcher à l'aise parce que nit ñi dañuy dégg coon dafa compliqué dafa mën a mer man fekkee naa ba tey nit ñuy ñëw si moom braqué wu sax. tendu des gens tendus donc dafa doon utiliser loolu pour euh, mettre à l'aise personnalité yooyu mu doon recevoir. pour li wax li Paco di wax ci studio chaque fois bu daan ñëw studio dina indaale une ou deux personnes yoo xam ne seen yoon nekkul si li muy liggéey. Mhm. mais ces personnes là dañuy entretenir benn ambiance boo xam ne boo koy set moom bu waxul sax ñooñu dinañ waxtaan te loolu nag c'est commun à tous les grands musiciens tous les grands arrangeurs ndéem si yàlla Abi fay au passage yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko il était comme sax àdduna bi foo wër ñu ne quelqu'un qui s'inspire à la hauteur de des Thione ak yooyu ils ont ce talent là de pouvoir faire rire mais c'est une générosité day tax day day day tax ñu recevoir la Tafa je crois xam nga bu baax li may wax. si moom baax amoon na suñ benn. voilà benn partition bu tuddoon Petit. nekk à mm-hmm. Paris. Mm-hmm. su daan créé morceau day Petit ñëwul. Mm-hmm. Petit pour Petit fecc quoi. waaw waaw waaw. waxoon donc da kanaa indaale rek répétition. loolu ci moom laa gis. mais mais euh, pour revenir à li li Paco wax léegi. Hmm. Abibatu bi mu koy créer dafa ñëw ne euh, Abibatu waaw ñëw ne El mbay Mbaye mën nga fecc Joola. ça nous a fait ñu ngi koy jaale. ñu ngi koy jaale waaw dof na ma ko koy jaale dof na euh, dof na moom moom moom moom. démb dama wax ak moom si benn ton sax bu xaw a dëgër. waaw bilaay ah. bilaay dama ne ko am na yoo xamante ne nag day mujj nduru ñàkk gëmu di yàlla. Hmm. waaw Alaaji Mbay Alaaji Mbay ndeysaan ku ko bëgg Mag Amet sama benn xarit Mag Amet Ñang ñoo ko doon def parce que Alaaji dafa topp tali bi di dem di dem def tànku neen ñun ñoo ko def bari nañ nag da ko bëgg da ko bëgg ko bëgg waaye studio bu la ñoom ñëpp ñu ngi seetaan waaye Bamba ah. ñoom ñëpp mooy njabootam bi rek waaw sa njaboot gi njaboot njaboot El Hadj ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi. El maa ngi fàttaliku nag loolu sayel la woon. muy répété euh, yàgg na de boobu wayewu ma nag dëgg yàlla boobu maa ngi gis Ousmane di way xam nga influence dafa am dafa moom moo am ba ci waal yi ba fekk Bambali fekk Mandiaye et influence day am quoi. Mhm. nit daf lay influence dara répétition boobu c'est c'est autant au ñoom Noël xam nga kon yàgg na ay Moussa Pathé. yàgg na bien avant boobu maa ngi nekk xale. Mhm. mais gis nga way bi sman mi aw na ko ci mooy bi way naan ah Thione Seck balaa ko non gis nga bi ñu waree agsi ci am sa am sa soxla lamb sa poos faj ko ci saase doon foofu mënatul dem xamatul foofu fan la war a duggee maanaam lu war a indi maa ngi toog na de muy seen doog damaa jékki-jékki rek dem jël micro bi mu xool ma xam nga ak ak bi eh. i ma ñëw rek xam nga daal di koy woyal loolu nga xam ne moom moo ko të te pourtant moom moo ko way mm-hmm. mu joué yàggu koo joué mais répétition la woon mu ñëw woyal ko loolu mu jàpp gémmiñ gi loolu tam du ma ko fàtte musiciens yëpp di ma tàccu. affaire bi mu nekk lu garaaw. waaw mu nekk non non non. alors moom moom moom euh, sànq Papis xaw na ko. Euh, xanaa ñu dem jël ki ci ligne bi suñ paree ñu ñëw ci Bambaly ak Madiaye allo salaamaaleykum. allo. bi. waaw ñoo ngi tuub bu baax a baax baa yaa ngi am jàmm. Ah, maa ngi sant bu baax man de musuma wax télévision te de laa bëgg wax rek. allez-y. ñu ngi lay déglu. noo tudd ak fa ñuy woowee. man maa ngi leen di woowee fii Dakar. Mhm. man maa ngi tudd Papa Gallo Niang. Papa oh. laa tudd. ndeysaan Gallo mhm. ah, nag moom bu wax ci moom dafa am loo xamee ni seq nañu ko maag moom. Mhm. ndax Thione maa ngi ko xam 1977 normalement. ca ngéwal bon sama wax nag lu bari. Mmh, tu dans la vie nit ki dafa am lu ñuy wax rek ci woykat dama leen ko bëgg wax mu jeex ma ma dem sama yoon. Mhm. ndax nekkoon naa ci showbiz bi pendant dix ans. Mmh. je en quatre-vingt-huit mais woykat bu bon amul ci àddina. Mhm. woykat liy génnee lu neex mu jëm ci nit xam ngeen kooku ku baax la. problème mu yi mooy ñu leen wër mais ñoom ci seen bopp musicien nit ku baax la ndax eh, man musique dugg naa ci xam naa ko def naa ci fukki at génn naa ci coon nag mbaaxaay mënu ma ko wax ndax je l'ai je l'ai téléphone ça fait trois semaines on a parlé mu ne ma ñang foog nga ñëw wax musuma fay télévision te li ma xam xaw naa bari aslëf mhm. Euh, benn laa mos seen télévision Kër Thione Seck la benn euh, koor RTS ñëw fa mën na ko mën sama waaye damay dem te a foog nga feeñ mën na ko bàllaago bugguma feeñ télévision mun na ma gàllo ñang foog nga feeñ teg ci sama biir kër te da ngay julli jigéen nga màkk yaa may giite mën na ko du ma la giite xam nga nit koo xamee ni bu ngeen ñëwee boo toogee këram mu a xaaral ba njul timis xaaral ba njul liggéey ku baax la alors sama wax day gàtt xaw lu ñu mën a wax mais gën coon sekk yombul gën ko dëggu yombul bu lu bëggee wax dëgg fekk ngay nelaw day teg sees ba ngay yeew wax li mu lay wax wala mu dem suba wala mu yee la mais du ko yóbbante kenn mhm. man xam naa ko et on am na yoo xam daal daal daa ma noppi peut-être dinaa mos a wax xaw ma kan maa leen di gërëm di di nuyu papis di nuyu euh, rakk yi toog foofu yëpp. Mhm. ñoom Kéba Ousmane. Papa Juba Gujaab yi moom <laughs> on se <coughs> am na lu ñu seqoon yëpp ci mbir bi maa ngi leen di sant di la gërëm di ko ñaanal yàlla. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Moustapha am na am na am na solo alors dañ doon damay ñëw ci euh, Bambaali peut-être ak euh, Mandiaye parce que sànq ñoom Papis sa ñëpp wax nañ ko que ni coon industrie la. te am na lu mu fi bàyyi loo xam ne yéen peut-être kon waali nekku fi yéen a ko ci teel parce que ay yéen ay rakkab yi nga xam ne moom yéen moo leen mooy seen kilifa lan ngeen yaakaar ne moment bii nii war ngeen ko mën a puiser ci ay ci ay œuvre déjà commencé woon ngeen ko mais ci jamono ji la koy gars yi di gën a soxla pour gën a marquer présence parce que ay rakam gars yi ne nañ yéen la ñuy gën a gis ci ñoom hmm. Hmm. waaw tout d'abord loolu mën naa ne dañuy sant yàlla ndaxte chance la hmm. une chance qui n'est tey jii nga bokk foo xamante ne mën naa ne di nga gis am exemple yu bëri di nga am wéeruwaay di nga am foo wéeru di nga am loo wone xam nga léegi-léegi dama koy wax ma ne ñun xëy na peut-être man sam bopp laa xam bu ma duggee ci milieu sax wala am dara lu xew ñu defalal ma ko wala ma dugg fenn ñu accueillir ma noonu man je me dis du du du du du bàmbaal yi ay woyam wala du jëmmam mais c'est juste que ñun dañu am ñoo xamante ne dañoo mat wéruwaay. Mhm. am ay baay yoo xamante ne dañ fay liggéey lu rafet ci dëkk bi loo xamante ne mën nañ ci wéeru ba tax sax ñi ñi accepté bi waaye du lu ñoo xamante ne dañ ko prouver xam nga loolu nag chance la chance bi nag boo ko amee yow yaay xool ni nga xamante ne moom nga koy exploité. Mhm. mais yéen jéego ngeen def pour exploite nii nii ah pour dire vrai xamuñu mënuñu mënuñu lu ñu way loo xamante ne ñoom way ñu ko. de ce fait boobu ba léegi mën naa ne ci ñoom rek la ñu sukkandiku suñu baay du yemu ci papa Thione kese ku ci mel ni papa Ousmane papa Mapenda papa Assane Ndiaye papa Keba xam nga mais comme ni nga ko waxee papa Thione moom bibliothèque la. ci ñun. am nañ chance bi. et que li bari ay way et mën naa ne ñun moom je pense que moom ñàkk ñu vraiment la ñu way. wax dëgg yàlla ñàkk ñu ko. man Ndiaye man même même question bi ah parce que yéen itam ñu bëri euh, gëm naa ni la majeure partie des mélomanes dañ leen di xaar yéen lu ci mel ni waali seen mag yow euh, euh, Bambali ba ci seen i rakk yi itam lu jëm ci ay œuvre Papa Thione pour gars yi surtout projet bii nga xam ne moom moom la moom la dëmmal vraiment. wéyaloon naa ak moom ci projet bi. Mhm. wéyaloon nañ mag moom am nañ sens boobu et mooy li Bambali wax rek dama koy dëggal ñun ñàkk ñu lu ñu way Euh, euh, li ñu war a way dafa bari te saa bu ñu ko bëggee rek saa saa bu ñu amee kàttan pour def ko rek dañ koy def parce que boo yóbbee tey papa Ousmane studio baa nga yóbbu papa Keba wala nga yóbbu papa Mapenda ba papa Assane Ndiaye wala nga xool papa Thion li mu wayoon tey tey kon ñun sens bi ñu am mën naa mën naa ni am na ay waykat yoo xamante ni sax ñu ngi fii di dund amuñu ko. parce mm. ñun dañoo war a ñafe. dañu war a liggéey ba sàngoo suuf parce que li fi li suñu papa yi def tey ñun defaguñu sax xaaj bi te war nañu atteindre objectif boobu encore une fois mooy li may wax à chaque fois. Mm-hmm. tey su ma xoolee sama grand frère Waly ni mu bëggee liggéey ak ni mu fonkee liggéey su ma ko xoolee des fois sama yaram dafay daw te li may wét ak moom di waxtaan ak moom sama xarit la nag. moom sama xarit la dañuy tëju man ak moom des fois di waxtaan wala ñu taal oto bi ma ak moom des fois wër biir ville te demuñu fenn loolu c'était juste que dafa am ay message yoo xamante ni mu ngi ma koy sànni man mii di rakam kon ñu tey Papa Thione defal nañu loo xamante ni ci Sénégal euh, bon pour nit am ko dina jafe. Mm-hmm. sant waaw sant yàlla quoi. xam nga dafa am euh, euh, sànq Mandiaye mi ngi koy wax euh, parce que yaa ngi gis ci commentaire yi ku ne est-ce que pourquoi pas est-ce que qu'il ne pas ngeen def benn bloc ñu ne par exemple lii mooy li nga xamante ne par exemple héritage Papa Thione laa ko mën a tuddee ah li nga xamante ne moom mooy faramaari ni booloo def benn bloc mën di mën a continuer li nga xamante ne moom mooy lu mu buggoon wala lu mu sabablu woon loolu question la pour internet yi waaye xam naa Euh, euh, euh, moom papacon en personne projet CEDEAO bi bi mu koy def. Hmm. il tenait vraiment à ce que xale yi def duo ak mag ñi comme terme bi mu ko daan waxee ci olof dama leen di tël. waaw hmm. dama dama leen bëgg a tël. waaw loolu moom moo ko daan wax ci li nga xamante ne bëggoon na ko ci projet CEDEAO bi 88 628 14 13 Karajo bu ñu jëlee bii rek ñu may ñu tuuti ñu daal di continuer waxtaan bi tuuti rek avant ñuy continuer 88. 8 628 14 13 allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. allo allo. allo oui. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk mi ñu ngi lay eh, déglu. ñu ngi noo tudd ak foo ñuy woowee. maa ngi tudd Omar Sène. ah Omar. waaw Ngone. ñu ngi kontaan bu baax sa woote man de Bijou mhm. euh, damay wax ci koo xamante ne. ku ma xam la mhm. ndax di euh, tax euh, ma xam ko damay wax euh, benn bés boo xamante ne rek Ousmane moomu toog mhm. ma koy fàttaliku benn bés boo xamante ne benn dimanche mi ma fekk kër Papa Thione est-ce que doo dégloog téléphone bi ah baal ñu dégloog téléphone bi te waa waa ñu télé bi su ko defee déggante bi gën a neex ayca euh, euh, euh, dafa mel ni moom dem na Omar bu fekkee mën nga duggaat rek Big Taf mhm. Mhm. alors mooy mooy mooy mooy li mooy li nga doon dikk sànq rek par rapport ak ci Papa Thione mooy parce que parfois bi dese bi am na am na photo buy gars yi ëpp lu ñuy génne ñu def papitoon ci kaw ranger toute la famille ñi nga xam ne ñi ngi ñi ngi musique park wax nga ko parfois dañuy gis ay artistes yoo xam ne dañuy déterminer mais seen orchestre ci Instagram Bamba laa ko euh, bi sax ki koy yor du doon racinam keneen mooy jóge fële nekk benn woykat daal di puiser loolu utiliser ko donc peut-être yi ñu ngi xaar lu mel lu ni mel ci ci ci toute la famille Faramaren pour ñu mën a reprendre lu ni mel bijou dëgg la euh, euh, euh, bokk na ci aussi li nga xamante ne. ñu ngi nuyu gars yi parce que artistes yi ñoom ñëpp ñu ngi bëgg a dugg. mais c' est très c' est très compliqué aussi. Mhm. ñu ngi leen di gërëm bu baax ko ci mel ni Demba Gisee ah Seydou Ba. ñoom ñëpp ah ñoom ñëpp ñu ngi bëgg a dugg. Mhm. wax dëgg yàlla am na aussi parce que fan yii Papa ki nga xamante ne moom mooy président Macky Sall jox na ko li benn raaya. Mhm. Ah, waaw c' bien beau. à titre posthume waaw. à titre wax dëgg yàlla. waaye am na lu nga xamante ne ay kàddu yu mu waxonte woon ak moom ah bokk na ci album CEDEAO bi que dina ko accompagner. accompagnement boobu ñu ngi koy xaar. loolu ñu ngi koy xaar parce que xam nga nag yooyu mooy waral yu ci bari nit ñi di mer. parce que waaw mer yooyu yooyu moo euh, euh, bijou bijou euh, pour pour pour ajouter li nga wax. sànq ah, bi. gis nga. une c'est bien une bibliothèque. c'est bien beau d'avoir une bibliothèque aujourd'hui on l'a mhm. sànq bi ngi par rapport ak internet bii wax man je crois que coon euh, bibliothèque la fi bàyyi mhm. mais bibliothèque nag yàgg na fi nit di dugg te du jël le bon livre wala du suivre chronologie wu lecture euh, bi mhm. donc ça c'est très très important tey jii euh, ki si bénéficier wu laay wax ki si bénéficié wu si waxuma génération ñoom Ousmane mais génération ñoom Bambalinki déjà man je con je conjugue déjà au futur euh, mooy Wally cest à une transition bu yàlla def boo xam ne bi euh, du ma ne du du du du de père en fils rek mais pour man exemple la boo xam ne bi man pour euh, moo inspiré sax à mon avis ci woon si CEDEAO bi. parce que euh, le fait de vouloir un jour dajale autant de jeunes talents autant de jeune talents pour ne comme ni nga wax bii jutal leen loolu je crois que euh, du pour production du pour rek ne bon d'accord def naa diw non non mais c'est pour créer benn éveil boo xam ne yi si jeune génération bi di ñëw nii ñuy xaw a am benn fougue parce que tey am na loo xam ne bu la maasee nu mu def foog nga siggi te boo siggee doo ko mën expliquer donc daf lay obligé qu'est-ce que tu fais tu tapes la euh, porte la plus proche pour t'éclaircir su mhm. fekkee ne intelligent c'est une invite à ça man bi may expliquer projet bi dafa euh, euh, dafa rëy trop si man dafa rëy man à mon avis dafa rëy bi boo ko waxee dama li nga wax la laa wax dama ne ko lii de bu si état jàppul hmm. ça va être très compliqué laa ko waxee ci émission bi c'est lourd c'est lourd. c'est lourd tey tey jii projet. balaa muy pare dina def sept ans. ne ko sept ans Pape ah. Thion. Hmm. Ah, parce que parce que yaa yaa Fadel Lo au euh, passage que ma koy ma koy euh, euh, di ko ko jàll di ko nuyu qui est en train de de de faire euh, qui a déjà fait un livre sur lui ba pare il a beaucoup travaillé sur la carrière de l'artiste Fadel il a beaucoup travaillé sur la carrière de l'artiste moom man moom parce que man <laughs> il me faut ñu mel ni ñoom Tafa ak pour xaw a sàcc un peu comprendre un peu yenn détails yi si waxtaan laa koy jëlee ba bërk de moo Ndiaye si benn télé am na nit ku woote wax Mapenda sax wax na loo xam ne man j'ai appris sur le coup donc jàng bi du jeex ex euh, un gars comme Fadel am na lu mu recueillir loo xam ne tey jii du pour moom dëgg la man pour man c'est pour les générations à venir du Ndiaye Rose am na même chose Prosper Niang am na même chose Abi fay am na même chose. pourquoi ñuy xaar à chaque fois. Ah. li mu doon wax ah. dañuy xaar ba ñu faatu. ñu doon di nekk di di di di di je pas di toog fii di def ay rétrospectives ñuy jële lundi ba vendredi wala lundi ba dimanche di def ay plateau hommage jëmale suba waaw ma ma ma ma jox la benn anecdote bu ndaw bu ma frappé c'est un mal sénégalais te loolu dama koy fustiger pas seulement par rapport ak woykat euh, dama dem Mali il y a pas longtemps sur invitation de Sidiki Diabaté ànd ak Wali mhm. bijou j'ai été euh, émerveillé par quelque chose bu ñu taxawee feu cortége moo ñu jëlee aéroport de bu ñu taxawee feu rouge. Ah, ñu def euh, policier bi intervenir noonu non ah Sidiki jàllale. ma dundee beneen dëkk boo xam ne gis na bu ñu nee woykat mu ngi ci koñ bi day gis sax ku ñëw naan ko mais écoute loo xalaat je pense pas que tu devais chanter ça. foo ko ne message bi war nga ko joxe. c'est-à-dire boo duggee ci koñ boo duggee ci koñ dañu dañ la naan y a un point ki s'arrête laa Euh, man rek fa ma fa ma fa ma fi ma màggee dañ ma repérer comme boobu awma sax le niveau qu'il faut mais y a un fu nit jógee ñu ne y a un dañ lay magnifier dañ lay aider fii nag au Sénégal malheureusement on prend un peu euh, ñun ñëpp ñuy liggéey suñu comme des personnes yoo xam ne ils se font abor plaisir man pour man loolu la ñu jàppee tey ji tey man damay déplorer la hmm. euh, amul benn famille bu riche ni en talent amul et dinañ dem malheureusement ils vont rien léguer à la postérité parce que cette famille là je pense que autant de talent ci famille bi gisuma ko fenn de mémoire de manager mhm. gis naa fi famille de musiciens famille Faye famille ñoom Omar Sow ñoom Ibou Cissé mais ñi ku ci ne vraiment leader bu mag mais pourquoi ils réussissent pas à faire benn jam te am na ñu ci gisul ku ci mel ni Mohamed. mu ngi fi. léegi lañ commencé diversifier. <laughs> léegi sax euh, avec les les les fils de Ousmane nga xam ne ñu ngi joué instrument. waaw mais mais mais Tafa pour dëggal. pour dëggal benn affaire aussi. ça marche boo seetloo. Euh, euh, fële. Mhm. seen xar yeeg ginaar yëpp. ñoom ñoom ñoom Benjamin. ñoom moom laa naroon wax nii moom la naroon wax nii ne la. les derniers arrangements de de de Wally c'est Benjamin. C'est Benjamin. Il a su rentrer dans la bibliothèque et lire, prendre le Benjamin livre qu'il faut. Ah, euh, euh, euh, lire, le livre qu'il faut. Sans complexe. Man, il vient, me pose des questions carrément. Ouais. Ne ma, voilà, defar lu nice ba pare ñëw ne ma mais puis loo xalaat. ma ne ko waaye laisse-moi tomber. Invite-moi mieux. Invite-moi mieux. Donc, c'est rentrer dans une bibliothèque et choisir le bon livre. Mm nag, ça peut marcher en tant qu'instrumentiste. bah il est temps que ça marche en tant que woykat te te loolu ñoom ñii nii li nga wax y pas surtout woy nag euh, dafa am rôle bu intégrant bu muy jouer si musique vocal rek dafa am woy bu intégrant te ñun nii nous les instrumentistes du yàgg ba ñu woy c'est pas possible waaw déedéet mais loolu Ousmane ci loolu Ousmane tontu ah. na way parce que man dama amoon benn vision bu ma gisoon mooy manjaay mii bi mu xasee bu bëgg ni dafay way bon ma xam ni peut-être du ko du du ma ko mun téye comme man xam nga. da ngay maa ngi way. te ñun tamit ussi suñu début ñun ñëpp dafa difficile. parce que tëboo tëb rek bëgg way mu yomb si yow. Mhm. man jaay yóbbu ko école des arts. dem ñaari yoon xaw ma ñetti yoon. <laughs> xam nga du la tere way quoi. Oh. mën nga nekk instrumentiste indi naa ko si Papis Ndiaye. Mhm. d'accord imagineel nga ñëw bokk ci famille faramaare mhm. ñu lay xaar pour nga way comme le Tafa gi daan wax xam nga kii <laughs> ñëw teg sa clavier yow kase da ngay fàttali Ismaël bi mu mhm. yor harmonica ah. yor guitare mhm. moom kase orchestre la originalité bi voilà Mandiaye ñëwul nga jël sa clavier nga teg wala nga yor sa guitare ñëw benn style la non seulement tu es chanteur mais tu es musicien da ngay arranger say morceaux comprendre nga Mohamed def naa la même chose mais parfois ñoom dañuy xëy ne peut-être dañ naan way bi mooy gën a gaaw wala mooy gën a. Ah. <laughs> xam a gaaw te pourtant Tafa wax na benn affaire boo xam ne ñu bari xamuñu ko si coon man. j'ai eu la chance euh, bopp rek. nekk dina téye guitare. li muy wax li muy mhm. musicien. ñun instruments du yàgg ba ñu way non. non si non peut être. non ni ma ko waxee la en fait yeggaluma. peut être niveau bi ñu toll nii à ce moment peut être. non bay way na muus voilà. waaw waaye <laughs> ah. waaye ma wax la. Hmm. kay ah. non non fi mu xaj na fi ma ni dama yeggalul moo tax. parce que dama ne tey ji ay option la. Hmm. am naa samay moromu pianiste yoo xam ne tey jii bu ñu toogee si piano bu ñu woyee peut être man mi sax baat bu naqari xanaa mais bu ma tegoon piano woyee nga ne non eh, yow xam nga lool mais ay option la yoo xam ne da koy teel a activé si hmm. yow parce que man pour man euh, euh, man je suis un traducteur de talent. et puis li ma gënal sax. mooy woykat bu ñu ne xamul dara. bu ñu ne kii woo woo woo. du dem parce que liggéey la. waaw ah. <laughs> yooy ngay def di leen gëmloo. donc voilà foofu laa foofu laa waxee. Mm. te te dans la vie d'un d'un d'un arrangeur d'un instrumentiste. y a forcément des chanteurs sax lay wax. des mm. chanteurs ñenn ñu mel nii coon dañuy marqué nag sa vie. réorienter sa pensée musicale. parce que man j'ai appris sur une base reggae sur d'autres musiques mais quand je suis venu au Ramadan je suis retourné à l'école beneen école je suis retourné à l'école mais euh, euh, à l'avènement de Wally euh, je suis pas allé chercher loin j'ai dans ce que moi j'ai fait ñu def nii aujourd'hui ñi fa nekk Ramadan ñëpp ma leen di nuyu au passage ñoom ñëpp ils sont dans la dynamique ba man tey jii bu ma joué wul mais wala bu ma créé wul tu sens la continuité dans la musique. Mm. mu morceau dina xam nga xam nga tey jii euh, euh, c'est pas à la porte de tout le monde. Mm. nga am orchestre bu mûr. comme ni ko Papa Thion waxee sànq dafa am euh, tey jii am na benn orchestre Ramdan la la la. très important xam nga am orchestre bu mûr orchestre bu gë. mais Papis Papis tey jii Ramdan ñoo gën a mature seen musicien Ramdan ñoo gën a mûr. Wally tey au fur et à mesure Wally di way Ramdan ñu koy mu koy forger. Mm-hmm. di forger ba muy adapté wu ba tey ngay gis li nga xamante ne moom mooy résultat bi ñëpp am mm-hmm, mm-hmm. du dëgg mais est-ce que tey c'est à la portée de tout le monde ñu mën a am orchestre bu mature bi nga xamante ne moom moo am euh, bijou Sénélec Sénélec la ba léegi 2STV bi mu ubbee ba léegi macha allah yàlla na fi yàgg il faut se comporter en administrateur. il y a des mutations aussi. il y a des mutations c'est normal gis nga Ramadane euh, man bi ma fay ñëw je fus une génération ñi ma fa àndaloon amul kenn ku fa nekk Adama Sarr la fekk. j'ai euh, euh, accueillir Ousmane Camara man ak Ousmane bi je crois ñu accueillir Ousmane Camara y a une autre génération de percussionnistes les instrumentistes ont changé bassiste Cheikh Ndaw très bon bassiste dem. ay génération waaw mais loo tax ñu ne dégg non non non mais li ma lay wax Papa nee na ma ci biir émission bi dama ne ko pourquoi doo bind waaye jox ko jox ko waale mu ne ma musuma ko laaj <laughs> lii la ma tontu ne ma musuma ko laaj mais nag xam nga mu ne ma xam nga faramaare la nag dafay bëgg prouver ah, ni que mën na ñoom ñii xam naa it mais mais li tax orchestre di am cent ans wax naa ko au départ ah. li tax orchestre di am cent ans du ne du ne euh, instrumentiste ñoo fay des ndax màgget am na mm, dëgg la euh, mais dafa am benn euh, mooy li ñu wax li lu Papa Thion liggéey ñefe na kook man man moom ñefe na kook man xam naa ko bu baax ba ma comprendre mais si je quelqu'un de généreux et su yàlla defee ma nekk fi je passe le flambeau c'est ce qui ce qui s'est passé aujourd'hui instant bii nii les gens qui sont là li ngay wax roode bi effectivement day day ñëw par force. Mm-hmm. au départ bi bi waa lii soog ñëw damay toog pa euh, Papa Thion woo ma. Mm-hmm. dama mais c'est quoi ça sa percussion yi gis nga lii dégg nga lii. Mm-hmm. mais je rectifie. Oh. te gis nga rigueur bi moom nekkoon moom man ñemewu ma ko teg ñii ñemewu ko de <laughs> tu t'imagines nga jouer soirée ba pare nii euh, ñu ne prip ne nit ñu génn. soirée bi ñëpp génn ñu ne ok tëj ngeen bunt yi répétition répétition <laughs> enchaînement génération bi Madia yow yow sañ nga ko def say organe ah. yow sañ nga ko def say artiste bi ñu tëj ko dañ la naan dañ la naan Bambali dof ah, na wala wala wala Madia dof na non mais euh, Kili ça s'est passé au Kili je crois tu te normalement ñu ne euh, quoi mu ne répétition ba cinq jëm cinq heures six heures mais def na lu grave en plein concert au CICES. Mhm. waa lay woy ñu digg moom si mu centre faux. boo juddoo bi. waaw reprend lépp. ba ba mu ne ko ma li ça se fait mu ne ma taxawal nee rek. Mm, sama papa def na ma ça se mm, mm. moom mi non ba pare dellu si si man ne ma ku arrangé morceau ma ne ko man mu ne ma. tabara dans temps temps dafa gàtt xam nga lool. essayer de trouver ban tabara dans temps temps boo juddoo. effectivement ki xam nga lan la wax noonu la ma ko loolu c'est c'est une possibilité mais comme que il est jeune et fougueux j'ai essayé de le mettre au devant cest dire pour mu dégg. décompte une deux trois tagadadan tantan il prend la note pour chanter mu ne ma Ivoirien d' accord naa man d' accord naa nga teg ma foofu mais moom euh, il faut nga tegal ko support boobu ma ñëw si waali su ma tegee fin non waa li lii mooy li ngay wax ne que seen faramaare waali jëlul loolu. il est fier. il est ko ñefe ba ginnaaw gi bu ñu ne tabadadan tantan mu ne boo juddoo facilement. gis donc. Uh-huh. sa une sorte de mais pour que joué Ramdan. dañ deux morceaux. Mm-hmm. Sakhi wala Mass Ndiaye. soo mënee joué ñaari morceaux yi mën mën nga joué Ramdan. ndeysaan. c'est des ah. nga ñu mën a tegal ak jongama ci gën a grave nag man xam lu ma gën a na ci coono. Mm-hmm. mooy daf lay forger ba nga xam ne yow dara du la jaaxal ci. wàll wi nga xam ne moom moom moom ngeen bokk. muy li nga bëgg. mooy sa métier moom nga bëgg a réussir dina fexe ba te ngay foor ba nga xam ni nga way devant mille personnes ak nga way devant cinq personnes benn lay doon si yow. man def naa Ramadane ñaata ak am nga sanoole benn morceau benn laajal Papis Ndiaye xoolal tafaaw ko jaar bi dem naa ba mujj gi boo tàccoo laajal keebaa mi boo tàccoo sax. no instrument yi joué am nga sa nawle parce que benn morceau way naa ko ñaata at. waaw est ce que ñeme nga ko def sa doom man Mandiaye ñeme ma ko def lool. Mm-hmm. benn morceau man Mandiaye tarbiya boobu tarbiya boobu boobu ñu def ñun. Mm-hmm. yaa ngi dégg say morom di génne ay CD mu leeral na yow ñii di génnee dàqu ñu la way. Mm-hmm. mais ñoom ñi ngi am public ñi ngi am xaalis ñi ngi dawal ay oto di la romb yaa may dégg parce que ñoom ñi ngi génne as kaset kaset kaset kaset te yow ñeme woo wax damay génne. def na ko Assane Ndiaye. way maa jël responsabilité ne Assane Ndiaye yokkal ma sooy mu ne yii ma ne def ko su wax Moussa Ngom Moussa Ngom bi daal Moussa Ngom ndeysaan. ndeysaan xam nga boo ko defee jeune génération bi dañ la même chose Ousmane dama dem ne ko mais. grand mu ne ma bii rek la <laughs> mu ne ma xam nga lu tax lu mu xamul sax moom. Mm. mu ne ma xam nga woy bi dafa kawe. effectivement suñ ne tap tandrr Ousmane angasanaaw ah, lay xam nga lan la ko jàppee euh, kii il va track du ko am parce que bu soo gis morceau boo xam ne bu ñu ne pipe nga woy si kaw woykat yaa ngi nii xam nañ mm. pipe nga yuuxu comme kii solo mm. mu ne ma mais dafa nice ba pare ça le mûrit man lu mu waroon woy woy na ko ci album bi <laughs> maanaam billaay léegi non c'est vrai li ko daal li daal coon un peu moo ko daal parce que con dafa dem gis nga ay yaay booy moo di moo moo nekkaat match après. Mm-hmm. match yaay sax yu yëpp c'est des chefs d'œuvre. incha allah xam nga con de grands arrangeurs. Ousmane aussi loolu la def dafa teel a gis nga nawle bi bu motu bu ci nekk rek waxambaane bu ci nekk rek. it <coughs> vraiment vraiment. mais bon. moom léegi léegi dafa dafa dafa màgget dafa actuellement ni il faut mu ñëwaat. Mm-hmm. mu régénérer mm-hmm. effectivement. est-ce que bëggati na. ah non il est obligé xam nga nag star bi léegi ci ci ñoom ñi xam nga star bi non il est obligé à cause de à gis nga papa Kéba li mu fi def. Hmm. Ah, may leen kon yéen wér-wéru leen li muy way amul ci àddina. c'est un coaching coaching hmm. hmm. de cela parce que sinon day am benn gàpp boo xam ne bii. Euh, mais c'est la faute à Papis xam nga euh, bu ma la déggee nga wax. Euh, j'ai l'impression que les responsabilités son partagées. Mhm. ci naka parce que ñoom ñii am nañ ci wàll euh, mais ñoom it am nañ ci wàll parce que tey ñoom ñoo war a ànd ak ñii. ñoom nag ñu leen xam nga ñoom euh, man parfois si dañ may gêner gis nga dañ naan am rendez-vous non seulement day tardé mais balaa moo génn mën la ah il mu julli. parce que mais yow mënoo julli après mënoo oh, dafa mhm. ñoom lu ñu la yaree ñoom duñ jël benn initiative parce que bëgguñu. seen mag gisee ko neneen. waaw hiérarchie bi bon donc hiérarchie bi da nga koy gis bu baax a baax a baax. mais Thione def na lu war def parce que hmm. Thione il a ouvert la voie. Hmm. donc yéen ñëpp pour pour l'avez suivi et tout. Hmm. maintenant kenn si yéen mooy jël responsabilité nekk. un bâton pèlerin tout dox. même. daanaka yaa suñu mag tey fekk nga lépp et que coché nga ñu bari comme ni nga ko waxee. mais man ci li ma digg ci bijou ak big taf li ñu wax man euh, ñun ñëpp kenn du jël benn initiative. am nañ kilifa Mapenda Ela Assane Ndiaye Ela donc ñoom ñooñu lépp ki nag ki mënu ko wax ñoom ñooñu ñooy woote wooñu ñu toog mm-hmm. ñu fondé lii parce que li ñu ko doon fondé bu yàgg li entreprise boo xam ne ba mu judd ba mu juddoo yàgg na mm. c'est dommage que jotuñu ko comme ni ñu koy waxee bijou jotuñu ko teg fi ñu ko war a teg mm-hmm. maanaam waaw waaw naka industrialisé mm-hmm. ndeysaan xam nga donc Assane Ndiaye bu fekkee may seraan ñu ngi may dégg Mapenda mooy mag Assane Ndiaye donc comme Mapenda moo fi nekk ci waykat ci ñi mag. ah mm-hmm. noonu Mapenda taaj li war a taaj ñu ñu ñëpp ñu topp seen ginnaaw jàmm na ñooy mais ñu teg ko ci lépp nag ci fi ñu ko war a teg. Ah, ànd ak ñoo xam ne ku mel ni Papis mi mel ni keneen ànd ak ñoo xam ne il faut que mu mais Papis mi mënuñ di ci mën a ñàkk parce que son expérience hmm. non parce hmm? que doo ko denc kon Papis mi di ci mën a ñàkk parce que Paco Jackson Paco Jackson Thiat bi muy wax mais da nga koy da nga koy da nga koy denc ba Paco Jackson tey comme tey dañu daje héritage colossal ah, non non grawul xam nga lu tax <laughs> xam nga lu tax tey dañuy ñëw dañuy ñëw parce que dañuy def plateau spécial pour Thione hmm. non luy lan la bëgg a wax. yàlla question lan a wax dëgg damay jaaxle. xamal jikko moom est-ce que du tey dama lay wax rek dañ koy waxtaanee. est-ce que du tey loolu moom moo tax euh, ngeen euh, pour ngeen propulsé wu. mu xaw ngeen ngeen yéex a propulsé wu. bari na li li ko waral bari na. di leen tee est-ce que du loolu <laughs> na bari na na. Ah. tubaab nee na. mieux vaut tard bàyyil waxi que jamais. d'accord xaaral bu ñu confronté bàyyil waxi tard d'accord na rafet rek. <laughs> gis nga nga gis nga Pago de te moom moom ngi ñëw. génneel si waxi tard yow ma dànkaafu bi ma ne maye ba yow. confrontation waaw waaw loolu nañu rafet confrontation nga jëm. laay non non non non côté humour bi xam nga dafa ñu côté nga xamante ne. le salaire de l'artiste mm. euh, mm-hmm, mm-hmm. jamais la preuve ki fi jógee il est toujours parmi nous. Ah. mais le vrai salaire de l'artiste mooy ce que Ousmane vit là il existe et ça c'est le plus important parce que artiste man bu ñu la déggul ci fait divers dégguñ la dara si lu ñaaw euh, dégguñ la fekkuñ la si dara loo xam ne bii vraiment wàccee na. Pape Thion wax na ko yàlla wàlli la ma fayee wax na ko. merci. xoolal mën ngaa espérer lépp dans la vi mën ngaa espérer lépp dans la vie te comme comme li ma gis nga dans la vie de de de y a un peu de tout de tout ça. xam nga man dans ma propre documentation euh, damay poser ay questions des fois ku si mel ni Noël gi. ñoom ñaar su ma déggee ñoom ñaar seen seen jotaay ñu toog di waxtaan. après je me permets de prendre Noël en temps pour comprendre le le monsieur ma ne ko Noël lii lii lii il m'explique ne man nii nii lañ ko daan defee nii lañ kii sagam donc euh, pour revenir à à à l'essentiel lii yëpp si vie viu coon ba si waxtaan bii ba fii mm-hmm. lii Keba wax ne ëllëg pour dajale tous ses grands frères loolu yëpp si héritage bi coon bàyyi la bokk ah, héritage am dafa gudd héritage am héritage projet CEDEAO bi beneen affaire mm-hmm. lii directeur général sama grand frère El nag dafa am benn wax bu am solo. Mm-hmm. Euh, bu ma for keroog parce que depuis lors je suis hors du ma sax suivre télé je suis pas concentré comme maa di. Euh, laa di a ah, parlé ah. avec le cœur. waaw dafa wax ne dépose dépo déposer les armes. waaw mm. ah, déposer les armes ba pare daal ne ayca si li mu wàcc si ginnaaw moo xam njabootam. Mm-hmm. wala moo xam liggéey yi c'est-à-dire interpellé état rek sax. wax il a parlé en wax boobu nag dafa fort. Mm-hmm. ba pare daal ne même les musiciens qui accompagnent son fils. wax boobu euh, je profite si télé bi mais dama ko naroon récupérer mm-hmm. waxtaan kook waa waa Raamdaan <coughs> donc euh, mu nekk ay ay ay kii yoo étincelle yoo xam ne. ñu si mm-hmm. basé woo. Ah, en tout cas dans cette grande aventure qui est le Raamdaan. qui a démarré en 83. ñi ci dugal seen loxo bari nañu. je pense à quelqu'un comme Ahmed Amar. Mhm. qui a été l'un des premiers euh, conseillers financiers de Thione nga xam ne jàppale nañ ko ci premier album am ñu bari ñoom Diop ñoom Ndiir tous ces gens-là ont contribué mhm. de très belle manière mhm. à l'essor de Ramdan. Ramdan c'est une philosophie d'abord il fallait croire. c'est une philosophie c'est un concept Thione a cru dimbale ko il a eu une mission accomplie. vie accomplie mhm. donc tey vraiment je pense que il a fait les mhm. ay rakkam yi ñoom yëpp ñu ngi ko ñu ngi ñu ngi dox ci ay tànkam mhm. mais tey je pense que comme hélas l'aventure coon taxaw na yàlla yàlla yàlla loolu la namoon je pense que du ñu bàyyi cette grande œuvre muy muy muy Euh, Père dañuy dem si côté côté humour bi nga xamante ne euh, Papis mi ngi ko doon wax sànq waxtaan bi yóbbu ñu ba kii mm. euh, Karajo bu fekkee ni ko élément boobu pare na ñu xool ko ñëwaat léegi léegi pour terminer ci point bu mujj boobu rek daal di tàggatoo. mine de def nañ trois heures de temps. waaw léegi mais moom comme jullit la kay jàmm la lay indil. moom du ñëw de. kooku. kooku jénki moom moo bëgg tam nekk ak kenn. non ku jigéen nga lay wax da nga yow kooku fajar lay ñëw ci yow. non mais kooku moom jullit la nga wax. ku jigéen ki jullit la. waaw nga ne fajar lay ñëw ci yow. fu ku ne fu ma toog. fu ma toog. day toog sama wet fu ni ma toogee ne moo ngi toog sama wet. kon ni ngi toogee ci studio bi nii moom mu ngi fii. mu ngi fii sama wet. nekkoon nag mu dimbali ñu. tin war a suuri. comprendre. du kenn dara ba lépp nice. mu def kenn du pàdd kenn du faxas kenn def kenn c'est que euh, euh, Jean moom moo fiir. moom bu non mais Jean góor la. waaw Jean góor xam nga mu fiir. Ah. Jean bëgg ku ma ku ma méttal bëgg def yenn yi. xanaa kon Jean ngay boole Pawlish. Pawlish xam na Jean ñam na Pawlish ñam na moom ñam na gis na Jean. Pawlish nee na Jean la nee dafa gis ñu ñoom ay muus Jean la gis. Jean la gis. <laughs> Jean la gis. ban ban Jean dóor ko mbéj. Jean ka def na ko lu ne. ah non non non. rab ku mu xët. non bu ku la gis eh, xam na yow eh, am na ku la laal. Eh, rab Jean Saba ma am na rab yoo xam ne bu la bu bu la xëtee sa gémmi day féete ginnaaw. Pawlish nag gémmiñam demul fen gi demul fenn waaw da kaa xubaraat mu tiir daaw. ba da ko xëbal. waaw ba pare ne ay groupe muus la gis. genre genre dafa am dooke te tey mën a doole nit ki. da nga koy yëg ku mën a tàpp mën a dóore da nga koy yëg sama loxo moom dooke. mais man yow man gis naa la ci benn euh, émission yaag guy gi. gu gi dama bëggoon mais ma jékki-jékki gis ngeen di xeex xeex boobu dëgg la lu dëgg. non guy gi dafa ñëw bugg maa émulé guy gi dafa bëggoon maanaam dafa bëggoon euh, yenn ma saax saaxa ma def vidéo na Ouzin Keita maa maa traité far yàlla nat mu ñëw di ma song nat far yàlla ma daan ko. waaw man kay ba gis naa yow nga daan ko ñu naan déet déet déet yee. Ah, moom dafa tiit mu guy dafa tiit. dafa tit ah attends kon Jean moo ko daaneel. lépp mën naa nekk. non non attendez. xam mën nga gis jëmb Ouzin Keita wala lu nekk si biir du Ouzin Keita. d'accord ma man mën naa gëm loolu. dama ne kon Jean ak ndeyaami ñoo sot euh, guy gi nga ne koy daaneel Eh, Pape Sa waay waay non eh, nday mi bu ñëwee moom eh, Sénégal xam na ñëw na nday mi ñëwul c'est que genre du la def yenn yi du du la comme du la gaañ waaye daray xubalaat si xobal boobu nga ngay gis da ngay tiit ba daanu. kon nag moytu leen Ouzin Keita ndax nee yàlla jox na ko benn rab bu tudd Jean te Jean du jullit. ak benn jinne bu jigéen bu tudd nde bu tudd ndeyami ndeyami nag moom jullit la ah fiis man nag bés ni ki tey man bant bu guddi la laale laale ndax man ay bonam mu rab ak jinne wax dëgg yàlla man moom da ngay waaroo eh, Papa Thione yow suñu demee. boo oh, xoolee li nga xam ne Pawlish Mika euh, eh, il est ni meloon ak léegi ça fait carrément opposé. il est mignon Pawlish mi léegi siiw na am na tur il est mignon mu ngi defaru léegi mu ngi. reer léegi ci restaurant yu mag yi. mu ngi sangu piscine. Hmm. ok nee na am na euh, néegam am na climatiseur. Ah. am na télé. am na trois voitures. Ah, ba pare am nga trois voitures. waaw ah. ok léegi yooyu yëpp ci waxi dof yi la. képp leen mayo Papa Thione man mënumaa way wax seetu man doot naa. li may way neexu mais damaa xam li may way neexu ma ne xaar ma Sénégal yi xaar ma jéem leen wax waxi dof te dama ko bëgg trop ku jël intention tamit bàyyi woo ko wala yow bu dee da nga am pexe ma ko man papa su ma la ñaanlee tey di fanaan de danga ma ci gën a conseillé ma gën ci dugg parce que waxi dof moom may lépp ci àddina lu ma am moo ma ko may kon dama ko bàyyi papa coon léegi il est mignon wala <laughs> kon attirant léegi tu es attirant tu es tu es mignon. eh voilà. bon euh, nga am kon fi mu ne nii. moment bii mënuma ko compter papa Thion. i ah voilà bilaay walaay ah. mënuma ko compter. sérieusement. xale papa Thion xale yi dañ maa nopp ba feebar. wala xew rek ngay dëgg léegi. waaw doo aspiré au moins nga casé wu xale yooyu la nopp ba takk ci kenn. non mais parce que moment bi duma xamee xam ne ku ma bëgg ak ma bañ parce que ñëppay ñëpp a mut ci. loolu de naa ko. waaw moo tax yow loo way dëgg la. lu mu ñu ma bëgg ak ñu ma bañ ndax ñëpp a ngi may ree ñëpp a ngi may ree papa teraanga bu yokkoo noon yu yokku te ñëpp a ngi naan coon waaw léegi ñëpp a ngi naan Pawlish Pawlish waaw <laughs> mais waaye yow moom ma xool mais fils Fodou laa yor ah. Fodou Fodou bi nga yor deux de un huit lay jar waaw parce que mais parce de kii nag moom euh, ñu def ko yëf yi bukki njuur non yow yow li lii moom. waaw ah. njëkkante la te njëkk naa ci. Papa Thione yow Papa li nga am lépp man amaguma ko. waaw bi. merci beaucoup Karajo ci élément yooyu ah euh, euh, ñu ngi koy wax sànq élément bi moo waroon accompagner sànq Papis bi ngay wax ci nit ki euh, humour bi nga xamante ne nekkoon na ci Papa Thione mu nekkoon nit ku baax wax dëgg yàlla nit ku oyof ah nit ku ëmbloon ah, nit koo xamante ne. amul woon benn façon Papa Thione il était un homme sans façon. Euh, wax dëgg yàlla nit koo xamante ne euh, ñun façon bu ne lañ doon wax Papa Thione nu nekk lañ doon waxee ak moom waaye wax dëgg yàlla à chaque fois il a su vraiment nu couver ah njaboot gi mu uuf leen uuf ba uuf ay njabooti jàmbur. ah amaana mën naa ne ñi yeewoo ci kër ga suba ngoon gu dégg bëccëg xaaj bi yëpp juru ci kenn mhm. te ñëpp fa la ñuy lekkee fa la ñuy naanee waaye tamit euh, euh, euh, kenn du ne déet ci ki nga xamante ne moom mooy soxna si nekk ci ginnaawam ah muy suñu mag ju baax ji ñu koy ñaanal yéen bi lii nga xamante ne mu oyof toll toll toll toll toll ci kawam ah moom ki ne Diouf wax dëgg yàlla ak njaboot gi nga xamante ne ñoom ñëpp ah, bana leen fi mm-hmm. Mouhamadou Moustapha donc ñu def tour de table tàggatoo parce que Pape Ousmane mi nelaw. non mais Pape tàggatoo. non ñoom xam nga mois bii nii semaine bii nii. yëpp xam nga moom tàmmatul yi tàmmatul eh, dama ko bëgg eh, kii <laughs> xaar ba fii ak ay ñaari weer ñett moom mu ñëw toog ñu def euh, euh, euh, li nga xamante ne. Mm-hmm. moom mooy genre daal di def ma daal di def confrontation ak moom. non père de moom ñëw ma de. <laughs> mi clair léegi laa koy wax. non jël Kéba. bu def na ba pare. Mm-hmm. Kéba def na pare dama far foofu moo tax. non non Kéba non Kéba bisu spécial rek bisu bu dee li nga bëgg yàlla mën naa la ko indi. da koo beral loxo kon si je comprends bien. waaw moom dafa am ñu muy beral loxo. waaw non daf ko beral loxo tegal ko or orchestre muy gérer ñu ñu mbeeraay ko loxo. <laughs> mbeeraay loolu confrontation loolu confrontation. effectivement bijou bijou bijou moom. Uh-huh. Euh, man bu ñu déggoo. bijou papis bijou moom jéem a nga jéem a comprendre uh-huh. Bijou moom li ma man sama xarit nga du ma def loolu moom li muy def da koo ñeme mm-hmm. Bijou li muy wax da koo ñeme mm-hmm. Alima ndeysaan sama yaay papa Ndiaye maa ngi koy nuyu mm-hmm. mais Bijou mii ma dama koo ñeme gisoo ni muy sànni xeer ñëw confrontation ak Bijou man man daw naa ci bi daaw bi may daw waxtaan ak man dinaa ko indi man daw naa bu yàgg bu yàgg boobu temps maa ngi pentolaa non man samay émission dama leen di tànn ñëw ma <laughs> ah, ñëw waxtaan ak madame sax ñëw doo ñëw non non non yaa ngi jàkkaarloo ak man ah. xam nga ne dina ñëw ndax sama xarit nga. waaw kay mm. ah, ah Bambali. Mm. waajalal sa bopp. Kals <laughs> waxtaane nañ ko ba pare. bu dee bu dee Kals dina compliqué bu dee Kals rek dafa dina doon compliqué. non non Bambali la yaa njëkk a jël sax ka ba ba ay ñoom Chérif yi <laughs> fële sama xarit nga xaaj journée spéciale ak orchestre. waaw mais nag bu jaaxaan njaxate dëgg des bijou ah. Ousmane effectivement ñëwul ah, soxlawul confrontation Ousmane li mu soxla moom mooy mu ñëw jouer en live comme ni ma ko jouer woon waaw confrontation xam na ah. waaw yem fa doo lii du confrontation doo ñu plateau non bi dafa seet bijou koy fekk ci scène bi xam naa eh eh wuyul ma fit eh. nga waaw xanaa xamoon nag li leen fi jële fit bi rakwaay la pour kañ la la wax rek gis nga ñii li ma tiital nii pour ma delloo avant genre bus yi dañu bëgg ku engagé ku ñeme dañ lay baab bëgg ñëw ah pour yéen da ngeen damaa ñeme ndax dama ñëw ah, loolu lay wax ni dégg nga mu naan li dama leen laaj pour kan la ndax bu fekkee pour jamono yi la man du mu fi ne fii ak quelque temps damay voyager pour ay trois ans quatre ans ah da ngay daw non ah, par exemple da ngay daw pour quatre ans yooyu laaj laay voyagé rek. kii incha allah dama foog ne na nga la <laughs> dem bu ngay dem. waaw ah man vendredi prochain balaa ngaa demal te ñëw non am na yu bari yu xew yoo xamante ne ma Ndiaye faa mu ñëw toog leeral. demal te ñëw jàmm dégg nga ah. Ah. man nag euh, damay lancer benn message rek. nga xamante ni euh, c'est normal. ma est-ce que après sax doo doo doo doo tàggatoo waale après ñu ñu faale ko. waaw waaw c'est normal ma lancer message bi euh, parce que. li ma jàngat keroog ci euh, li nga xamante ni mooy euh, yoof ci mhm. almeeri yi euh, ma gis ay affaires yu nice yu rafet yoo xamante ni tey Papa Thion ak ñooñu ay relation yu bien lañu amoon mhm. muy ku ci mel ni Papa Youssou Ndour maa ngi koy nuyu de passage Papa Baba Maal Papa Ismaïla Lo Mbaye mhm. Guèye Faye Papa Diouf ah Pape Diouf Pape Diouf. góor gi Ndiaye waaw góor gi Ndiaye. Ousmane Gange artiste yëpp li ma gis euh, li ma gis dafa rafet. Euh, euh, tey seen nawle boobu génn àdduna tey ñoom ñëpp bàyyi seen. yitte bàyyi lépp tey. ñëw ñëw taxawu ko ba à la fin. Mhm. ñu ngi leen sant di leen gërëm. Mhm. ndax lu rafet la ñu def kon nag ñun ñi nga xamante ni eh, ñoo tolloo même génération sama mbokk artistes yi. Mhm. na lépp nice. da lépp rafet ndax bu ëllëgee bu fi Mandiaye Seck jugee. Mandiaye loolu dañ bàyyi ba confrontation wala keneen ak keneen jugee fii. ñu def mu dinaa ci mën a am réplique nga wax léegi nii vraiment loolu lu ma touché la. fale fale woon ma jàlle la ko. voilà voilà fale woon ma jàll fale woon ma jàlle la ko. ñu ñaanal Papa Thione nag fi mu tëdd yàlla na ko gënal fii waaw vraiment papa ju baax la woon. man mënu ci sax lu bari parce ñoom papa Keba ñoom papa sama papa ak euh, papa Papis Ndiaye ak papa Tafa Goudia bi tey ñooñu gën a xam loo xamante ni sax maag bàmbaale xamuñu ko kon yéen wax ngeen lépp waaye nag euh, ñun ñi nga xamante ni ñooy ay doom cër relève bi yàlla may kattan may ñu gudd fan fekkee ak tal ba ñu ba ñu euh, def li nga xamante ni moom la fi paa yi defoon uh-huh. yal nañ ko suñu borom defal muy man muy bàmbaali muy waali ak suñuy rakk yi ñëwagul jërëjëf kontaan nañu wax macha allah jërëjëf ayca alors euh, merci beaucoup dañuy dañuy damay damay damay dem ci bambale comme nii laa koy def rek. Mhm. ayca bambale tàggatoo doo ah, kilifa euh, nañ bu baax a baax a baax vraiment. waaw vraiment ñun ñoo euh, ñu sax ndax comme ni ma la ko waxee bu fekkee pour wax rek maamaana dinañ wax pendant des heures te duñ fi jugee. Mhm. mais. des na suba vous et nous. waaw des na plateau yi dimanche. ak donc lépp ci mm. Papa Thione rek ci hommage bi incha allah. waaw ba tax lu waay wax rek doyul. Mm. Mm. xam nga mais daal dañuy sant yàlla ndaxte yàlla mi ñu ko joxoon moo ko jëlaat. Mm-hmm. xam nga waaw ba tax na dañuy ñaanal nag ñun suñu waajur yi ñu yi ñu fi yàlla bàyyil. ah yàlla nañu gudd fan. yàlla may leen wér. waaw ndaxte soxla nañ leen trop trop trop trop vraiment. metti na waaw. du courage à tout la famille bon le euh, on continue euh, la route. comme koy waxe ah xam nga moom tey jii euh, ku ko xam-xam ne ñafe na ba jël ay frères ku ci nekk mu teg la ci yoon. Mhm. ba keroog ngay dem di mën sa bopp. Mhm. waaw tey mën naa ne ñun ñi nga xamante ne ah pour l'instant man ak man man ak mag ma Njaay mhm. mën naa ne. waal euh, Wally mhm. suñu mag duñu def ñun tam lu dul topp ci ginnaawam mhm. Mhm. xam nga ci ni mu gën a rafete déggal ko jox ko cër ah, ba keroog ñi nga xamante ne yàlla li ñun tam dinañu dimbali amin amin waaw loolu nag yar moo ko mën a def ak lii nga xamante ne mooy mën a ràññee tey nga ràññee dangay mën a di ràññee li la war nga def ko loo warta def bu ko def xam nga maa ngi sant ñëpp nag vraiment ñi ma àndal sama staff bi sama famille sama fans yi bàyyuma kenn képp kuy soppay Faramareen ñu ngi lay sant bu baax di gërëm ah ba beneen yoon rek kon incha allah. jërëjëf mhm. dañuy kontaan bu baax sa teewaay. Mhm. Euh, euh, comme ni nga ko waxee léegi di sa frère sa mag. <coughs> Euh, muy suñu xarit aussi ah di Kals ñu rafetlu bu baax nekk gi nga xamante ne mi ngi nekk ci sa ginnaaw waaw Kals moom. kenn dootul naataable li nga xamante ne buñ naan maîtrise showbiz mhm. euh, ñoom wax dëgg yàlla bokk nañ ci éléments yi nga xam ne maîtrise nañ ko euh, mhm. bokk na ci aussi ñuy rafetlu euh, hommage bi nga xamante ne def nga ko ak baabaam di aussi jot nañ ko déglu mhm. ah ñun waaw waaw benn hommage boo xamante ne def ngeen ko ci Papa Thione baaba am di am na waaw waaw bu ñu ci mus bu mu ci jot a déglul xam naa ne temps moo xat waaye lu ñu waro yooyu yëpp ay ay ay ay bagage yoo xamante ne di ngeen ko am ci semaine bi yëpp euh, euh, sur la 2STV. Mouhamadou mm-hmm. Moustapha. alors merci beaucoup de ñu ñëw ci Papis Papis moom itam vraiment xam naa ni jamono ji yëpp euh, moment yu dur la ci yow. Mm-hmm. waaye bi la woowee tamit tànqam lu woo ñu kontaan nañu bu baax a baax et puis c'est tout à fait normal aussi. Mm-hmm. Oh, merci Big Tafa donc may kontaan rek ci invitation bi ndax fii sama kër la. di di leen remercier 2S di remercier Sénégalais yi di remercier ñi nga xam ne bii ñëpp kenn ku si ne fi nga nekk yaa ngi toog di naqarlu li xew waaye tamit di ñaanal euh, góor gi fi jóge ko ñaanal te xam naa tamit di ñaanal entité bi nga xam ne euh, ñoom ñooy suite logique am. waaw duma euh, pare nag sans remercier li li li tax nga xam ne moo tax tey jii ma bokk si ma ma bokk si plateau bi mooy Ramdan. waaw euh, ma leen di remercier ñu doon samay rakk ak samay mag yoo xam ne wax dëgg yàlla confiance bi ma papa coon jox ñoom ede nañ ma torop torop torop torop pour euh, loolu réaliser wu man ak ñoom ñooy ànd chaque jour du ma ne sax ay moroom lañ ay morom lañ ku lim juum si kaw ba si suuf kenn ku cinéma lay euh, massawu di la remercier si euh, gunge bi nga gunge di remercier euh, toute la famille tous les enfants de Diop tout le monde mm-hmm. tout le monde moom mi mm-hmm. ñëpp ba si Babacar mm-hmm. di remercier Bougane mon frère taxawaay parce que am na leen loo xam ne boo ko gisee mu sedd sa xol il faut nga remercier parce que remercier si si générosité si accepter la bokk te mhm. wax dëgg yàlla euh, comme ni ko Bambali waxee léegi la la route est, elle est longue encore mhm. te on a sûrement notre partition à à jouer ouais. alors damay ñaanal ñi nekk fii yëpp mhm. xam naa li nekk si xol yi nag tey jii waaw les les xol yi diis nañ trop euh, benn précision rek Papis parce que xam naa ne que album bi yéen a ci doon liggéey euh, muy Sachin Balago mi ngi koy wax léegi mi ngi naan maan Bijou, euh, euh, il m'avait dit la semaine passée, et il y tenait vraiment de sortir le morceau Rasoul, mhm. hein, euh, euh, qu'il a repris pour l'offrir aux Sénégalais euh, durant le mois de Ramadan, euh, mi mhm. ngi koy wax léegi. nee na je précise aussi il il y tenait vraiment on a même que j'ai déjà terminé et que l'album Sang yi serait son dernier album. Euh, moom mi ngi koy naan Pape Thion yaa ngi naan ay la mooy dernier album da koy jaay mu ne du ko jaay sénégalais yi da leen koy may. Mhm. loolu la waxoon euh, duma ko jaay dama leen koy dama koy may sénégalais yi pour tàggatoo ak ñoom. waaw loolu nee na loolu la ko wax pour tàggatoo ak ñoom euh, mu ne ko teel na di mu ne ko non bii mooy sama dernier album damay bàyyi way su génnee sa sa ça la semaine passée. Mhm. mi ngi si dëgg nee na ma euh, euh, maa ngi si fen waaye nag euh, wax dëgg yàlla yéen nag yéen a ko jege woon. macha allah comme lii wax na ko teg que Papis moo ci doon liggéey ak moom. Ah. moo tax ma xaar ba Papis bu ma egsee si Papis. ma wax ko ak dëgg la ndeysaan da dafa pare noonu. ma ne ko ça date de des mois. Mhm. passé bi ñu bi ñu si mujjeex téléphone. ma mu ma koy laaj ne ma alors ma ne ko li nga xalaatoon yëpp li ma si xalaatoon yëpp je l'ai repensé. parce que j'ai acheté de nouveaux sons yaa leneen luy gën a collé par rapport ak def naa ko te euh, je crois que euh, dama koo ko waroon su soxlaa rek man ma envoyé ko fichier yi pour mu réactualiser loolu te incha allah dinaa ko def. dëgg waaw euh, waaw à Sachine incha allah son vœu là on tous ses vœux incha allah bu ñu yàlla mayee fekkee ak kattan bi dinañ ko def. dañ ko réaliser rasul bi sori na trop su ma juumul mu ngi à pour cent. Mhm. waaw macha allah Aïcha euh, grand Tafa ñu ngi kontaan bu baax ci sa teewaay ci plateau bi. jë bii jour su ma la gërëmee ba pare maa ngi wax Big Taf maa ngi rafetlu déjà ànd bi et je pense que aujourd'hui euh, confrontation a fini de faire ses preuves. donc euh, di rafetlu taxawaay kër gi. suite à ce qui est arrivé nous tous. donc euh, di incliné wu pieusement devant la mémoire. de notre illustre ami et frère Thione Seck di yàlla yóbbu ko àjjana yu gën a kawe. donc di wax Kiné Diouf Diaga ak njabootam yàlla leen yàlla dolli xolu muñ. une femme brave qui a su être présent quand il le parce que moom aussi dafa joué ci tournant wu. Ramadan dafa am benn moment boo xam ne elle là par exemple. man moom bëgguma wax sax ci moom. Euh, donc euh, xam naa ci lu bari. Mhm. donc mu nekk jigéen ju ju ju sëyal coon. Mhm. jàppale ko. ku nar a wéet xaritam la woon. waaw donc maa ngi koy euh, maa ngi koy encouragé di bon j'en je profite de votre plateau pour remercier mon épouse ma tendre et chère épouse mhm. di nuyu samay doom. day Fatou Cheikh Mbacké mes jumelles ak Karim Taha vraiment c' est un vangeli coon temps yi rek coon daf ko dafa bëggoon jël benn appartement pour loger ses techniciens xam nga coon il est très social ñëw na ko seeti ne ko mu ne ko grand looy doy appartement bi mu ne dama bëgg sama technicien pour mu gën ma jege pour mu loger ko donc di wane rek que nit ku baax dem na di leen gërëm et euh, di ñaan ñaan su fi ñëwaatee ñëw fi ci beneen anam. incha allah. macha allah merci yow itam xam ne guddi na man man maag ñëw fa tàmmatul yi moom moom <laughs> euh, xam nga plateau yi ubbali fi yi dina ñëw de dafa tegale wo dina ñëw de gisoo man maa gis daaro laa teg rek ñu dagg ko non parce que waaw parce que je pense que aussi li ma doon wax yëpp waaw xëy na euh, li duuf ci nag bi xajul ci cin li mhm. mais wax nañ l'essentiel mm, te ñun ñëpp xam nañu ki ñu fi boole tey ki ñu fi dajale mooy le défunt coon mhm. tey kenn ku ci nekk am nga loo séq ak moom wax ñu la sax suñu mbokki deret yi ñi nga xam ne ñoo bokk deret mais képp ku mu ku mu bokkal euh, liggéey rek am na ay souvenir yu yu grave yoo xam ne da koy garder pour moom mhm. donc euh, dañuy ñaan yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam mhm. ndeysaan xam naa ni ñëpp dinañ wet waaye ki ne jaaga nara wet la xalaat nañ ko nag wax dëgg yàlla waaye nag euh, ñi ngi ñaan rek euh, ndax yàlla nag nee na inna allaha ma sabirin naag way muñ yi mm-hmm. kon nag ñi ngi ñaan yàlla may ñëpp nag xolu muñ mm-hmm. parce que ndeysaan grand Thomas Mboup ma nga ba euh, Italie gëj naa ko dégg mais depuis bis bi am grand bi mu ngi naan mu nag ma jaaleel ñoom Keeba ak Assane nag xale yi ñëpp nag ma leen jaaleel woona ma di jooy grand Pape Pape Nguuda Fall gis ko dégg ah, grand Ousmane Fofana moom it. Ah, ah, maître Jibi Waar mhm. Jibi Waar ndeysaan moom it am na lu ko manqué grand Baye Moussa Sey ñoom nga xam ne moom ñaata at dégguma leen mais bi affaire bi amee wala yàlla xam na ni ndeysaan musuma dégg Amara Fofana mu jooy. Amara eh, eh, eh. Ba su ma ko gis mu jooy militaire la boo xam ni mais dafa jooy comme c'est pas possible Ahmed Fofana maanaam boo bëggee xam daal ñun man ba léegi sax dama naan ndekete coon ñun ñu bokk ak moom sax xanaa ñun ñun bëgguñu ko ñu non ndeke ñi ñi mu bokkalul deret ñoo ko gën a bëgg dëgg la c'est grave mais nag loolu aussi comme ni ko dafa euh, euh, waxee sànq rek xaw ma papis mais nit balaa ñu laa gën a xam dëgg rek ñi bokk ak yow sax nit dina la jur sax te balaa nga koy xam dëgg rek mu wan la ginnaaw. tey Papa Thione ñi mu njaboote mhm. ko ñamal foofu rek xam ne ñu gudd na te wax dëgg yàlla yéen aussi mhm. def ngeen ci lu am solo reconnaissance mënut a weesu li ndax démb gi seetaan naa El Hadj wax ci Thione non El Elhadj Bakaay premier jour bi ñuy invité premier plateau bi ñu def ak euh, Lamine Nar Diop ak Abi Ndour ndeysaan Sen mhm, TV waaw ndeysaan dafa dugg keroog wax ci Bakaay euh, Bakaay wax ci coon loo xam ni wax dëgg yàlla da xam ni rek euh, àdduna lépp teraanga la mhm. àdduna lépp jëf ju baax daal moo jara def moo jara wax moo jara séq ak nit mhm. parce que da ngay séq ak nit sax ngeen am ay problème ba ay différence léegi xam nga mu jékki-jékki faatu bàyyi la fi mbaa nga faatu ba ko fi xam nga yooyu xëy na réeroo mënta ñàkk mais nañu jéem a fexe toujours ba nga xam ni mën nañu bañ a bokk gis-gis. Mhm. mais ñu xam ni que euh, ñoo bokk lépp. Mhm. waaw mi ngi mel ni opposition ak pouvoir pouvoir opposition non loolu réew la Sénégal la mais Sénégal benn la. moo xam kii ko yor mbaake mais ku ko mën a yor mbaa kii nga xam ni yàlla taggu say loxo xamal ni benn bopp la te kenn mënu koo xar ñaar. Mhm. loolu mooy indi tey jii macha allah ñuy jaale encore le président euh, Macky Sall. moom comme c'est le père de toute la nation. bon magul ci réew mi. mais yàlla dafa jël réew mi. teg ko ci loxoom teg ñu ne ko le de la nation. jërëjëf jërëjëf jërëjëf père dañuy gërëm ñëpp rek. Euh, bokk na ci ñoom Bamba ah euh, mm-hmm. maa ngi xoolaat léegi message mi ndeysaan ndeysaan. Mm-hmm. Euh, vendredi passé rek ni ngi ni vendredi passé mi ngi naan ma bi je souhaite Papa Thione joyeux anniversaire. message mu lay liiraat nii sax ndeysaan. Mm-hmm. waa studio ñoom ñëpp waa studio bu la maa ngi koy wax sànq Seydou waaye technicien am yëpp. ñoom ñi nga xamante ne euh, euh, njabootu papis gi ah euh, Koné Père Jim ñoom ñëpp ñu ngi message wax dëgg yàlla di mm-hmm. kontaan ci li nga xamante ne moom mooy plateau bi ak émission bi xaaju Sénégal Sénégal ñëpp sax laay wax. Mm-hmm. ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi kontaan ah. Mm-hmm. nit ñi di jaale en même temps aussi ah. maa ngi koy wax léegi grand tier ñoom Seydou Ba Seydou Ba fii la nekk fii ci 2S ñoom Tange Pawali ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. Roger Toubon ah sa waa sa sa njaboot gi. Mm. ñoom Papa Jean ah ñoom ñëpp ñu ngi ñi ngi ñi ngi jaale Kéba mm. aussi ñu ngi koy wax léegi damay bàyyi Kéba mu tàggatoo. waaw jërëjëf euh, Bijou jërëjëf Moustapha Big Taf sama sama sama jërbaat yow da nga da da nga da yaru lool. wax loolu nag moom mooy yar gi nga xam ne ñu ngi koy wax te mu nekk ci ñun. te nit ñi duñ ko waxal. Mm. loolu ñu ciy sant suñu borom ci liñ li ko nit ñu duñ ko waxal baa ñu koy gis si ñun. loolu c'est important donc ci man mu ngi ci ci Amara Amara wax nañ lu yàgg boo xam ne xawma lu muy wax parce que Amara Fofana da doon jooy. Mm. donc ñi ñi ñu jooyle ñi ñu jooyle mooy li Ousmane wax sànq est-ce que ñun sax <laughs> ñun bëggoon nañ coon parce que li muy wax ni man euh, j'ai très bien compris pourquoi Ousmane wax ko mm-hmm. donc parce eh, mais sant suñu borom parce que man bi affaire bi amee bi jour coon am nay doom am nay sœur am nay frère am nay mbokk sama xel ci kan la dem bay seen wëndeelu. ay Fat Fat Ballago. waaw ci ñooñu ah. mm. ay. ay Njool Sikim ay gàmmu ay gàmmu ah, ay daram daan Njool Sikim ma chaque jour mu woo ma téléphone ne ma. Mm-hmm. mu ne ma ne ma dimbali ma ba yow nag ma téye. Mm-hmm. chaque jour ma jot appel am wala bu fàttali ma wax de nag ma téye envoyé ma vidéo boo xam ne tàggoo boobu ñuy wax noonu man du ko weddi vidéo boo xam ne coon da koo denc loo ne ko bu jotee baax na bu jotul nga denc mais bu jotee ne ko tey. gis naa ko ak ñeneen am na anecdote bu doon expliqué sànq ci kii nu mu tudd Yacine Ballago xam naka. Sachin Ballago Sachin lii bu fekk léegi lii nga liir nii. Mhm. bu fekkee ne semaine passée la. waaw mais kon nañu wax nañu wax dëgg rek kon nag da doon tàggoo nag. Mhm. booy xool porte parole bi euh, waa Kër Laayeen. bi coon dem. Mhm. jox ko rendez-vous. ne ko dimanche dinaa julli ne ko waaw vendredi su ma jullisee dinaa siyaare. vendredi boobu avant julli mu woo ko téléphone ne ko sama yaram dafa sutante waaye dimanche dinaa ñëw demul fële de mais dem na ci waaw te ku ne xam ne wuy ji na murid sadiq la wuy ji na comme nga donc ñun daal man bu la waxee dara du hasard ay mbiram dara du kontaan trop dama kontaan trop c'est vrai c'est vrai que nag dafa dafa métti nga jékki-jékki rek ñu sa coon dem na comme coon biir jour bi sama yaay gaañoo ndeysaan ma dama toog la matin coon moom moo woo téléphone dama Kéba rek dootoo xale magum jëmm nga mais nag xamal ne muñal te xam ne mel bi dem na dañ maa woo ne ma coon seeg dem na la matin même heure heure neuf du matin la ma coon woo waaye bi coon dem tamit heure ba lañ ma woo téléphone. waaw laa lay wax. waaw mu nekkoon sama xarit loolu nag loolu moom famille bi yëpp dañ ma koy nangul ba ci xale yi sax am na lu ñu ci fekkee. Mhm. boo gisee ñu bari ndekete di xalaat xalaatuñu doom bu mu jur di ma xalaat man. ñu bari yoo xam nga ci dara donc ñu ah, bari ñoo xam ne man man la ñuy xalaat ah. donc mais loolu ak cant la ah. ak cant la tey nag di am dafa am rafet njort ka ne man de gëm naa ne macha allah jaf jafa mu jëm macha allah macha kontaan nañ trop ba pare sénégalais yi euh, bijou nekk te kenn mënu leen a fay eh. njaboo ñu delloo ñu delloo jàpp suñu fans yi suñu xarit yi may remercier tamit sama musiciens yi nga xam ne kenn jiitu leen fa mm-hmm. dëgg bàyyi ma kenn xam Roger moom ñoo ànd. Touba moom foo ko fekk moom ah, Thione Seck Kéba Kéba Thione Seck def sa waay Thione Seck Kéba mooy moom si Roger maa nga nag Moussa Taximan moom day bàyyi liggéeyam rek ne tere naa ko nag dàq naa ko ba sonn mais mu ne moom day dem day ñëw fii donc dama nga liggéey na day ñëw fii donc sant suñu borom bu baax daal mhm. dégg yàlla doole sant rek jërëjëf jërëjëf sant nag sama sama xel bi <laughs> noonu la noonu la noonu la Papa Kéba yow ci ñun nga bokk Euh, euh, ki nga xamante ne moom mooy Babacar Mbaye Bams aussi ah euh, ñu ngi koy gërëm bu baax di ko nuyu ku bëggoon teew la aussi moom it ñu koy nuyu bu baax di nuyu moom it mi ngi jaale ma penda di jaale Ousmane ah Kébaay ñëpp wax dëgg yàlla kat yi jaaga ñoom ñëpp. waaye nga baal ma nag nga baal ma bijou parce que bijou nag may baal parce que jaaga moom mënta ñàkk dèjà sama xel da dem ci kati yi kat yi kat yi bi nga xamee ne xale bu bi xale yi ku judd rek. katee nampal daanaka mooy nampal mooy yar ba mu màgg donc ñu ñu koy masaw moom kat yi ak jaaga euh, ak tépp la famille Kiné Diouf mhm. wax dëgg yàlla loolu da ngeen bañoon fàtte ko ndax mu nekk tey nag moom mooy coon sekk bu jigéen waaw waaw ah, macha allah moom la de macha allah daanaka naa ko yéen doonatu leen woon sax ay ay borom kër ak soxna ay ay doomu nijaay doom bàjjan ngeen woon ah, ah euh, euh, Kiné ñu koy ñaanal encore une fois de plus di ñaanal njabootam ki yëpp euh, euh, jiital ko ci ki nga xamante ne moom mooy Bougane Gueye Dany euh, Mumi ah Bintu Mouhamed Alioune ñoom ñëpp ah bàyyiwuñu kenn Aïcha Laminar ñoom ñëpp dafa sekk amul kenn koo xamante ne bàyyi nañ la ñoom ñëpp ñu leen koy jaale bu baax a baax a baax di ko jaale aussi gorom yi xamante ne ñi ngi ci kër gi ah, ki nga xamante ne moom mooy Didi ah Cheikh Meng eh. soxna ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn wax dëgg yàlla ku lim da ngay daal di jum ak ñi nga xamante ne yoroon na leen tamit ci kër gi ah euh, um, du woon sax juru leen waaye euh, ni ma koy waxee rek papa dafa njabootoon comme pas euh, bokk na ci ñoom mams ah xale ya ñoom ñu nekk ci kër gi yëpp ñoom Issa ñi nga xam ne ñoo nekkoon ca chantier ba ah papi Sané ñoom ñëpp ñoom ñëpp ku lim da ngay daal di jum mm-hmm. parce que bari nañ wax dëgg yàlla ñoom ñëpp papa Thione uufoon leen waaye raga gëm naa ni que dina oyof loolu ci ki nga xamante ne moom mooy jël relais bi ndax nee naa la tàmm na ko ba pare. Mm-hmm. waaw moom euh, euh, euh, li nga xamante ne moom la Papa Thione nekkee woon moom mi ngi mi ngi mi ngi ko doon nekkee ba pare. Mm-hmm. waaw donc Wally jàpp naa ne loolu du ko jaaxal waaw du doon lu ko jaaxal parce que am na bu ne wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla bu baax rek di ko ñaanal bu baax yàlla lafal ko cat te li nga xamante ne moom mooy lépp lu mu sóobu rek wax dëgg yàlla mu leer nañ naññ ndax baayam amoon na ngërëmam ah amoon na ngërëmal baayam Wally moom. Euh, dañuy rafet njort rek ci jëmmam ji. ay alors man it damay euh, tàggu tàggu ñëpp di leen jox rendez-vous vendredi incha allah di jaalewaat Sénégalais yëpp monde entier Afrique euh, monde entier d'une manière générale di remercier bu baax a baax itam ki nga xam ne moo di Sada classe culture depuis Guédiawaye mi mu habillé tey peut-être bon mën ngeen ko woo ci 77 140 54 75 wala 78 417 17 37 merci beaucoup di jaajëfal ñëpp. jërëjëf Mouhamadou ah, Moustapha incha allah jërëjëf waaye dañuy jaajëfal ki nga xamante ne moom mooy prince bokk na ci aussi nguuda ah ngumba ah ngumba ngumba ngumba njaay ah ngumba seen ngumba moom it eh, wax dëgg yàlla xaritu papa coon la woon ah di jarbaatam ah jooy na bay eh, bëgg de dee ah, eh, moom it ngumba maa ngi koy wax sànq ak alaaji mbay ñii jàpp ñii nga xamante ne ñu ngi message yëpp Euh, bu ma limee damay daal di jum waaye prince euh, Sissoko aussi euh, mu ngi jaale ndax nee na on a perdu un grand monsieur c'était c'était mon ami wax dëgg yàlla Pape coon xaritu ñëpp la woon bokk na si aussi Daba Ndiaye depuis Italie ah euh, euh, hmm. ñoom ñëpp ah muy ay jarbaatam nit ñëpp jaaxle wax dëgg yàlla Papa Thione moo ni toll euh, Papa ñu ngi koy gërëm bu baax ak Maguette sekk suñu infographe bi ah ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax waaye dañuy gërëm à chaque fois ñu ñuy àndal ci émission confrontation bokk na ci suñu sponsor yi maa ngi ko fàtte woon tey xam nga situation oblige waa EDK yeeg Jolof Chicken Nourou la Ju mu ngi ci EDK yëpp bokk na ci aussi waa Bower ah ci basin yi xamante ne ñu ngi koy sol a chaque fois Badara Couture ñu ngi koy gërëm bu baax Amélia ci make bi encore euh, ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Moussou ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di gërëm équipe technique bi nga xamante ne àndoon nañ ak ñoom bokk na ci suñu cadre yi euh, ki nga xam ne moom mooy Zoom Papis ñu ngi koy nuyu bu baax Papi Dieng ñu ngi nuyu aussi ki nga xamante ne moom mooy Laay ah Cheikh ñu ngi koy gërëm bu baax Barik ak ci ci ci son bi Bamba ñoom ñëpp Abdou Abdou Wade ñoom électro ah lumière duudu ñu ngi koy gërëm bu baax a baax à chaque fois mi ngi ci ay ca Marème tey moom moo fi nekk ci maquillage bi ñu ngi koy gërëm moom it di gërëm ki nga xamante ne moom mooy euh, persek ah euh, mbañik ci décoration bi à chaque fois Mouhamadou Moustapha a ki nga xamante ne moom mooy lampe Moustapha aussi ak AD ak AD ADN. ci ci ci multimédia bi. ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen jox dig daje si seen beneen numéro de votre émission confrontation. ah dafa mel ni dafa am loo fàtte. Eh, may eh, gërëm aussi El Hadj Mbaye mi ma dëkkal. Mhm. ak eh, série Maam Jaara ñoom Papa Thion rek la ñu bëgg. Mhm. dëkkandoo dafa fort. ñoom ñu ñu ma bëgg lañ. maa ngi leen sant di leen gërëm El Hadj Mbaye mbokkum yaayu Ama Balde. Eh, di gërëm sama mag sama mag ji nga xamante ne nag doom la ci papa Assane Ndiaye. Mhm. muy Ndaama Ndiaye. lépp lu ma bëgg rek mu def ko. ba may ñëw moom a ñawal li ma sol nii. ndeysaan maa ngi koy san di ko gërëm. jërëjëf eh, di gërëm ñëpp ah. Eh, ku ñu fàtte rek bis bi moo tax c'est un peu compliqué ñoom Pape saa ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm gërëm bu baax a baax a baax d'ici là restez scotchés sur les programmes de la ba beneen incha allah suba. fang kenn du ko jeex xoolal ma meuble yu rafet yi fii mooy tapis rouge. waaw waaw fii si tapis rouge ngeen di fekk ay chambre à coucher royal class ay chambre à coucher VIP ay bibliothèque ay meubles pour seen salle manger ay salon 7 places en cuir et en semi-cuir ak ay décoration intérieure si njëg bu yomb te ànd ak qualité. dëgg la waaye tapis rouge moo ñu tàmmal saa yu événement jotee mu dugal ci loxoom lan mo fi bees. am nañu promo liquidation chambre à coucher si sunuy modèle exposant si a jeex fii fii ci tapis rouge ñëwal jënd chambre à coucher complète ci six cent cinquante mille la ko montel la ko gratuitement may la matelas haute may la moquette may la quatre coussins te soo fi jëndee salon en cuir et en semi cuir ñu may la table basse quatre coussins yóbbul la ko ba sa kër gratuit. ngir gën leen a jege. ak dab seen bànneex. jaay meuble ci Sénégal tapis rouge mooy number one. hi maman ginaaw bi neex na de. Mhm. ñamal xool. ku bëgg lu baax kaay fii Jollof Chicken moo neex ku bëgg lu baax kaay fii Jollof Chicken